Quoi. <laughs> maman, maman. J'espère que madame Café aussi sera, <laughs> Miss Nescafé dina ñëw. moom vraiment café bi heure bi muy ñëw moom c'est c'est ah di nuyu Sénégalais wax ne vraiment merci pour tout. Mm-hmm. j'espère qu'on une très bonne émission. Inch'Allah on l'espère également Fatima madame Diop bonsoir. maa ngi lay ziar bu baax baax. yaa ngi ci jàmm. baax maa ngi nii rek sant sunu borom bu baax a baax j'espère que tu as passé une belle journée aujourd'hui et que ça va maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu également mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. naka noonu di dalal jàmm sunu invité yi nga xamante ne ñoom la ñu am tey ci plateau bi mais également di nuyu faatu di nuy également Serigne saari bu baax baax di ko ndokkale bu baax a baax comme les Sénégalais ont l'habitude de dire yenn saa ñu naan dañ lay ndokkale mais Serigne Saliou Saliou également euh, ñu koy félicité bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo fi jot a xew yépp may nuyu Nafisatou naka noonu maman Diallo borom xéwali ak Cheikh Mbacké mhm. sans oublier Mouhamed Diop sama doomu baay <laughs> c'est important <laughs> na fi borom internet bi jërëjëf Mouhamed yi mën naa ci lu ne waxal ma ko Diop maa ngi lay nuyu bu baax Khady maa lay nuyu yow tamit nuyu suñu ay invité nuyu Césac Euh, di ko féliciter aussi di nuyu Ndeye Fatou Maman Diallo Fatima et surtout les fidèles téléspectateurs yi ñuy seetaan tou les soirs ci grand plateau bi sëñ Mbacké maa ngi lay nuyu yow itam bu baax a baax a baax tout à l'heure vous aurez vos informations digitales. donc ce sera donc tout à l'heure incha allah Maman Diallo borom xéewali Adi ci loo ne. maa ngi nii rek si jàmm bu baax. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. maa lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen fay bu baax di dala jàmm suñu invité yi. yu nuyu Fatou Abdou dala jàmm aussi euh, suñu góor suñu xarit macha allah moom moom dama ko sopp ndax dafa ñemee wax dëgg. ci yow <laughs> macha allah maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Fatima Nafi euh, Cheikh Mbacké di ko nuyu bu baax a baax suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo toog di ñu seetaan à travers la Sen TV alors comme ni nga ko xamee chaque fois <clears throat> excusez-moi chaque fois bu ci kanamee dinaa ñëw euh, ci euh, xéwal yi wax naa leen suukaru koor baa ngi fi yéen a ko moom donc mu ngeen commencé woote dès léegi ci ngeen bës wala ngeen dugg suñu page officielle Sen TV daal di fay bàyyi sa numéro téléphone maanaam ñi gën a réagir laa jox ci xéwal yi ñi gën a partager commenter ak aimer mais duma fàtte benn yoon tamit sama ay partenaire bu ci kanamee léegi nañ ci ñëw xadi j'ai l'impression que li nga yor sa loxo bi dafa yokk de ah oui ba pare dafa bees tàkk ah naa loolu bees na yokk na dafa rafet <laughs> nag ci bëgg bu baax après ma compal la incha allah <laughs> alors voilà di di di bu baax ñoom Evelyne Mondjouba ñoom Louis Sarr sama xaritu catholique yëpp ñu baax Cheikh damoon naa la maanalaw ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal baadu luy fii ramadan na jaza barke borom tayif euh, Khady toujours ravissante et souriante égale à elle-même merci nañu la Mouhamed Diop sama bopp Daaru Xudoos euh, la ravissante Nafi Fatima sëñ Salih borom Ngor maa ngi lay ziare madame Fall borom Pari Ndiaye ak Ndam Tayif maa ngi lay ziare sëñ sëñ Abo la ravissante euh, maman moom li nga so xam nga ñun bëgg xaalis boobu léegi ñu rek traxoon maag sama papa Abdoulaye ñu ngi nuyu réew mi di jaar ñëpp rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ñuy seetaan dans la diaspora du ñu nelaw ñu ñoo leen di wétali ndax sori nañ seen njaboot euh, waa Italie particulièrement sama dëkk ragazzi sate quoi e non zappate et qui il show à Sen TV tey nag insha allahu rabbi ngor wakaam yof tund yëpp dana yëngu xam nga ku ñu woo Ablaye bi bàyyi Ablaye le macha allah am na solo bu baax a baax donc ce sera tout à l'heure incha allah voilà en attendant ñu dem seen rubrique euh, actu ramadan Mouhamed dama dama waroon njëkk si yow far ma juum sote la Mouhamed def naa lu ñaaw. ku dugg doom day Evelyne nuyu naa la. ku dugg na nag. waaw moom yàkkal na ma ngalax. waaw eh, yàkkal na ñëpp ku baax. moo tax nga yow doo def dara ci hasard <laughs> mais très rapidement comme que lancé nga Actu Ramadan ñu nuyoo rek nuyoo ak téléspectateurs yi. Mm-hmm. nuyu le grand Césac sëñ Saliou Guèye. Mm-hmm. et suñu sunu honorable invité yi nga xam ne ñu euh, ñu estimé lañu euh, ñu ngi def politique waaye fu ñu waxee doo leen xeebe donc loolu mun nañ leen ko seede euh, surtout sëñ Abo di sunu wëllare di ko nuyu bu baax baax sëñ Abo Mbacke Thiam. Euh, di nuyu euh, Fatou Abdou euh, nuyu Fatmata Diop. Mhm. également Nafi xam naa fan yi nga ñëwul nag xamoo da nga umpale Nafi daa plutôt Mawa dafa dajji beneen paquet. waaw gis naa moom moo tax moo tax mbir yi gën a bëri gën a bees yu bees tissu yu bees ay yu bees daal daa dajji euh, xale bi dafa mën a dajji na dajji na tabarkàlla donc foofu laay wàccee kàddu gi euh, bàyyi la rek yaa ngi woon ci lancé bu baax di jéggalu waat ci la bokk ci la bokk ci la bokk ci la bokk ci la bokk mu ngoog amul benn problème Fatima Khady ñu daal di tàmbale li nga xamante ne moom moo di actualité bi tey nag dañu koy doore rek xam ngeen ne fi mu toll nii euh, mbir benn mbir la muy li jëm ci wàllub rek passation de service bi mais également li nga xamante ne moo di prestation de serment xam ngeen ne 2 avril bi ñu ma incha allah le président de la république euh, Bassirou Diomaye Faye fas yéene naa prêter serment mais ñu gis ne itam ci wàllu woowee mu nekk ab tradition boo xamante ne dañ koy faral di nemmeeku ici au Sénégal mu nekk ñeenteel koy fas yéene dundu loolu tax naka ñu def ab jàngat ak taxaw seetlu xadi colonel ci wàllu woowu dañ ciy ànd ak Nanko ko Léopold Sédar Senghor bi doon njiitu réew bu njëkk bu Sénégal moo tekkil boppam ndombal tànkam bi muy am juróom-ñaar fukki ak ñeent laata juróomeelu mandaam di jeex Abdou Diouf amoon ñeent fukki ak juróom toog ci bopp réew mi le 1er janvier 1981 ginnaaw fukki at ak ñeent ci bopp réew mi Sénégal def alternance bu njëkk ñu fal ko le 19 mars 2000 maître Abdoulaye Wade prêté serment di maanaam waat ci kanamu askan wi le premier er avril 2000 nekk ñetteelu président bu Sénégal amoon ca stade Léopold Sédar Senghor ci kanamu ay junni junni doomu aadama fukki at ak ñaar ginnaaw bi mu nekkee ci bopp réew mi maître Abdoulaye Wade ñàkk nguur gi ci présidentielle bu 2012 bi ñu samp Macky Sall le 2 avril ci at boobee njiitu réew bu yees bi ci jamono boobu wat moom it di prestation de serment ci benn hôtel bu mag ci Ndakaaru ci kanamu daanaka ñaari junni doomu aadama ak i chef d'état africain ginnaaw bi lañu amal weccoo lenge yi ci diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ci palais république ginnaaw ndam bu rëy bi mu am le 24 mars bi weesu Bassirou Diomaye fay moom it daañu ko takkal ndombal tànkam le 2 avril bii di ñëw ne président de la république bu Sénégal xew prestation de serment di waat bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye war a def mi ngi war a am ca centre international abdu Diouf ca Diamniadio bu ñu ci noppee lay weccoog Macky Sall yi ca palais de la république ñu koy jaajëfal bu ko mais également euh, ci loolu lañuy ñuy desandi ndax euh, ki nga xamante ne moom moo di le nouveau président de la république dina am lu ñu duppee état de grâce bu jukkee ci askanu Sénégal ngir xaarandi euh, permettre ko mu mën a def li nga xamante ne moom moo di liggéeyam am na nag ñoo xamante ne ne lu ci mel ni ñi nekkee ci rek administration bi maanaam secteur primaire bi ak collectif bi nga xamante ne moo ëmb liggéeykat yu nekkee foofu nee nañ nag ñetti weer lañ koy may xaarandi rek ñu xool mu indi ay saafara ci jafe jafe yi nga xamante ne secteur bi mu ngi koy eh, jànkonteel dekkonteel nañ ceek ki nga xamante ne moom moo di coordonnateur bi ñu teewlu ko Omar Dramé lay wuyoo Euh, travailleurs sociaux lañu ay syndicalistes lañu amoon na ay jafe-jafe yoo xam ne donc tegoon nañ ko ci table ci régime bi weesu nii jafe-jafe yooyu bokk na ci généralisation indemnité de logement ñu fexe contractuel yi au niveau de la fonction publique ak suñu condition yu ñu nekk du dund à Diamniadio ak surtout xeex lu ñuy wax inéquité salariale étant vraiment des républicains dinañ ko jox benn tant de grâce permettre ñu mun a s'enquérir dossiers yi suñ toogee nag euh, te ñoom amuñu lenn loo xam ne lu concret def nañ ko ci sens boobu dañuy doyloo mbuum ci mboy mboy ba rek déposer nañ préavis de grève yoo xam ne day durer un an donc à tout moment mun nañ enclencher donc mouvement d'humeur je pense que doy na temps de grâce boobu <laughs> su nekkee nag vraiment ñoom euh, defuñu benn effort dinañu lompoñal administration sénégalaise mu ngi noonu ñoo ko déggandoo mu mel ni nag ku ci nekk yaa ngi yëglu xadi colonel ci secteur boo mënti nekk ah, ñi nga xamante ne ñu ngi ci secteur de l'éducation ñi nekk ci euh, administration bi ak feneen ak feneen ku ci nekk nag ak na nga ko gisee peut-être ñu ngi xaarandi euh, ki nga xamante ne moo di le nouveau président de la république ñëw soobu ci liggéey bi ak ak li nga xamante ne moo di les questions de l'heure questions yi nga xamante ne moo soxal askanu Sénégal bi comme ni ñu ko promettroon euh, bi ñuy campagne ba tax ñu teg leen ci bopp réew mi en gros grosso modo lii bokk na ci li gënoon fës ci actualité bu tay bi. am na solo bu baax. dina jox euh, rendez ci actu Ramadan demain incha allah. incha allah ok ñu jox ko rendez-vous kon demain samedi incha allah bu ko defee mu dellu si ci li gën a fës euh, ci actualité bi en attendant ñu dem ci actu réseaux sociaux on dit ak Nafissatou lu gën a fës ci réseau yi. <laughs> li gën a fës ci yi dafay bokk ci euh, prestation de serment bu euh, njiitu réew mu bees mi di Bassirou Diomaye Faye mhm. euh, am nañ ci ay informations yu yees parce qu'on nous apprend sur la toile que la cérémonie se déroulera le 2 avril 2024 fële ca CICAD suivi de la passation de service loolee nag pratiquement site internet yu bari moom dañu euh, xëyee wax ni itam ca boobu les prestations de serment une quinzaine de chefs d'État ñu ngi leen di xaar fii ci euh, Dakar et puis euh, bi lay information pratiquement tey bokk na ci gën a fës ci après-midi bi Euh, ci toile bi tout comme euh, on a vu en parallèle ci page u Omar Yaya Sow muy wax ni euh, qu'il est en train d'être conduit à la brigade de Thionk dellu waxaat ni qu'il assume tous ses propos et il reste plus que déterminé à se battre loole nag Sénégal di ñu xamal ni c'est une bagarre entre Euh, Yara et Sow et puis di ñu wax ni euh, Omar noonu ne lañ ko arrêté conduire ko à Thionk arrestation Omar Sow bi nag ce serait lié à une bagarre avec euh, Ousmane Yara nekk secrétaire général bu palais présidentiel ginnaaw information yi nga xamante ne Sénégal am na ko ba tey à la sortie d'une audience de Ousmane Yara benn altercation moo fa daal di am entre les deux hommes et puis ñu daal di yegg sax ba ci euh, Songo et la gendarmerie daal di procéder à l'arrestation de Omar Sow euh, Yara de nationalité malienne moom nag ñuy fàttali ni médiateur la woon entre njiitu réew mi génn di Macky Sall ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane euh, Sonko gis nañu nag sur X ancien Twitter ñëpp wala la plupart des internautes def ci ay tweet pour ñaawlu ko capitaine Touré moom wax na ni qu'il a appris par voie de presse convocation monsieur Omar Sow par la gendarmerie de Thionk dellu waxaat ni euh, bu dee bile convocation est la résultante de ses positions politiques il doit être relâché immédiatement euh, daal di koy chuté ni euh, ñoom ils se battent pour que de telles pratiques soient bannies à jamais ci réew mi Ayoba Faye itam dellu waxaat ni la liberté d'expression est un principe inaliénable en démocratie waxaat tam ni le Sénégal doit dépasser ce stade où les gens sont convoqués arrêtés euh, pour avoir dit des choses sur le euh, président et puis gis nañu euh, commentaires yi nga xamante ni moom moo daal di tukkee toujours ca boobule information ba tey ci X la ñuy des xadi parce qu'on a vu sur la page de Madiambal Diagne muy wax ni njiitu réew mi présentement mu ngi en conseil supérieur fële ca magistrature dellu waxaat ni il y a eu beaucoup de supputation délibération sur l'ordre du jour de la réunion qui n'a pas été communiquée à l'avance aux partisans waxaat itam ne de grosses surprises sont attendues bi lay tuit itam di dinay alimenter énormément de discussions toujours euh, ci toile bi hier la visite de proximité bi doxoon ci diggante euh, Bassirou Diomaye fay Macky Sall ñu àndoon ci ak Ousmane Sonko mu ngi ndi di def xëye la chronique Khady parce que tey ba tey ci plateforme digitale yi benn internaute euh, ci page déjà sur la page officielle de Bassirou Diomaye fay dafa daal de posté la photo Euh, bind ci séance de travail au palais de la République en compagnie du président Ousmane Sonko après keneen daal di koy reprendre mais comment un président de la République peut appeler un simple citoyen président dans une seule République président Diomaye doit commencer par respecter les Sénégalais qui l'ont élu euh, président s'il veut qu'on le respecte euh, ak hashtag yooyu la di un peuple un but une fois alors lii itam ñu ngi koy commenté bu baax a baax xadi euh, ci euh, toile bi mën nañu xool euh, la vidéo image image de de des commentaires as ah, li ma joxoma ci dara rek <laughs> ma jaaxle di ah. foog léegi boo ko boo ko mënee jox image yi rek. Euh, bëggoon naa ci am avis euh, sëñ Saliou quand même parce que il faut dire que lii mu ngi euh, alimenter beaucoup de de discussions surtout ay commentaires ci toile bi parce que d'aucuns disent que c'est encore une erreur de communication de la part du nouveau président ndax bu demee ba bind ci page que dafa nekkoon en séance de travail sëñ Saliou ak le président Ousmane Sonko alors que c'est lui le président qui a été élu officiellement ban ban ban ban ban ban avis sëñ Saliou peut-être nga mën a euh, apporter ci loolu. bon moom il disait euh, séance de travail avec Ousmane Sonko ou bien c'est quand il a été reçu par le président de la République. Mhm. boobu lay wax. waaw mu ngi nii. ci ci image yi. bon il est en compagnie du président Ousmane Sonko. Mhm. ok bon moi je crois que sénégalais yi souvent dañuy euh, tardel seen bopp ci yoo xamante ni pour man ce sont des détails parce que. c'est normal que le nouveau président soit reçu par le président sortant parce que dafay dem donc laaj na bala muy dem au moins mu ñëw comme on l'a dit dugal ko ci pale bi peut-être waxtaan ak moom yenn yi c'est très normal d'autant plus que li fi dese président Macky bareetul mais quand Bassirou va euh, à la présidence de la République ànd ak Ousmane Sonko je crois que loolu c'est des choses que les gens peuvent se comprendre est-ce que le protocole koy daf koy daf koy daf koy tere moi je que xam nañ aussi Ousmane Sonko ce que représente euh, Cheikh Bassirou Diomaye Faye donc gisuma daal vraiment en quoi c'est vrai que chacun aussi peut se faire une opinion par rapport à cela mm. mais est-ce que on a tordu le protocole républicain je ne le crois pas d'autant plus que il a été reçu par le président et ce qui est sûr et certain que le président Macky Sall bi leen recevoir xam nañ ñi muy recevoir ñan lañ su fekkee ne Ousmane Sonko c'était la République aussi le président Macky Sall mën na ko ko signifier que ne délégation bi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw kii kii kii lay nekk parce que jusqu'à au moins jusqu'au moment où nous parlons officiellement c'est toujours le président Macky Sall qui est aux commandes donc su fekkente ne la présence de Ousmane Sonko c' était quelque chose boo xamante ni ça va à l'encontre du principe républicain le président aurait pu lui signifier que Ousmane Sonko ne doit pas être dans la délégation mais ce qui est sûr et certain il n'est pas venu là-bas par surprise le président Macky xam na bu baax ñi ki war a ànd ak Bassirou Diomaye Faye donc man gisuma loo xam ne nekk na ci euh, Ousmane Sonko n'a pas brûlé le protocole de la République donc euh, je crois que Diomaye war na continuer di woowee Ousmane Sonko président. président voilà. que moom mooy président am léegi. non non en fait président boobu c'est bon loolu peut être la mais quand il dit le président Ousmane Sonko pas président de la République mais président par rapport bien sûr au PASTEF. c'est ça aussi xam nga loolu dàkkantal la rek. loolu dàkkantal la le président Macky Sall aurait pu dire président Ousmane Sonko et je crois que loolu gisuma gisuma gisuma ci ngaañ quand on parle du président de la République kooku moom benn la mais Ousmane Sonko quand on parle du président Ousmane Sonko ça veut dire que c'est le président du parti PASTEF jusqu'à aujourd'hui ñi nga xam sax ce sont des anciens présidents on dit le président Wade des fois nga dégg ñu ne le président Moustapha Niasse wala nga dégg Moustapha Niasse il aujourd'hui il n'est plus président de l'Assemblée mais ne serait-ce même par respect bu ñu koy tudd dañ le président Moustapha Niasse mm. donc pour man loolu signe de respect la rek mais c'est pas parce que le Ousmane Sonko est au-dessus du président Diomaye Faye je ne le crois parce que euh, tey lu ñu mën wax aussi le président de la République l'actuel président de la République actuellement Ousmane Sonko c'est-à-dire Ousmane préside le PASTEF d'autant plus que aujourd'hui le PASTEF est revenu au giron politique dans le giron politique du moins donc c'est le président Ousmane Sonko donc que Bassirou le diise pour man gisuma ci loo xamante ni euh, en tout cas luy luy luy luy euh, tordre le protocole de la République la mm-hmm. bon maintenant ñu sommes nous sommes nag au Sénégal chacun peut se faire une idée et ku nekk aussi sa idée mën na la ko nangul mm-hmm. waaw Aïcha je pense que je pense que leer na xam peut-être pour préciser li nga doon wax léegi. ci le conseil supérieur de la magistrature. c'est vrai qu'il y a des chamboulements là ba parce que Abdoulaye Ndiaye a été nommé le, président, nouveau président de la Cour suprême. Mm -hmm. donc je crois que loolu loolu lu fa tukkee la. bon am na yeneen aussi fa parce que ay ñoom Seynabou Ndiaye Diakhaté aussi ñoom dugal bon am nañ lu ñu leen nommé mhm. mais ce qui est sûr et certain mooy Abdoulaye Ndiaye aujourd'hui est le nouveau président de la de la Cour suprême. Mhm. Aïcha même sur euh, internet Khady euh, mhm. pour chuter fii sëñ Saliou pour commencer fi sëñ Saliou chuter on se pose la question à savoir euh, nomination yu mujj yi parce qu'on a vu euh, qu'on a pris beaucoup de d'ASP en CDI gis nañu itam ay euh, nomination yu bees fële ca HCCT gis itam euh, li nga xamante ne moom la sëñ Saliou wax léegi les internautes se posent la question à savoir pourquoi euh, en deux jours wala deux jours yi des pratiquement ci reñu Macky Sall muy def ay nomination certainement loolu moom incha allah ñoom buñ <laughs> ko tontu seen bopp mais liñ ci mën a jàpp rek mooy nga fës na loolu ci réseaux sociaux yi on a fait aussi en zoom sur la deuxième femme de Bassirou Diomaye Faye Euh, alors les sites internet wax nañ ni Amis des Snappers Showbiz Women des patriotes mettent en garde la deuxième dame de Diomaye fay alors jàpp nañ ni actuellement la deuxième dame de Diomaye Faye nekk le cinquième président du Sénégal et au cœur des d'une discussion polémique euh, sur les réseaux sociaux moom moomu la di Absa fay jàpp nañu ni vraiment c'est une vraie Dakaroise boo xamante ni euh, certes ca France dëkkoon mais fii ci Sénégal dafay publier ay vidéos sur son Snapchat elle le milieu du showbiz et était même euh, la fans numéro un de euh, Carlou D Sidy Diam Borom et puis les patriotes nag euh, nee nañ bugguñu première daam buy snap buy tuddee bu ñuy tuddee ay événement bu woykat yi di woy buy fréquenter showbiz nee nañ jarul sax muy créer ay fondation alors lii nag euh, mu ngi alimenté beaucoup de commentaires Mouhamed ci toile bi comme quoi que li ñu doon waxtaanee démb rek les exigences commence vraiment à à à dépasser les limites Mouhamed ah. man est ce que newul est ce que loolu yëpp ëmbul projet bi rek. waaw <laughs> ça entre dans le cadre du projet <laughs> rupture la ñu bëgg kay. Fatou loolu ci projet bi la bokk Ndiaye. ci projet bi la bokk. bi est-ce que maîtriser naa ko nag. Hmm. Ah, le programme mais le projet non ah. ayca le projet c'est le programme. Ah, kon de def naa gaaf kon. bañ sax ci biir programme bi on projet. Hmm. alors mais mais na fi jeey. déedéet déedéet xam naa xale yi ñoo leen. xale yi rupture lañ bëgg rek mais d'une part aussi na fi. Hmm. xaw nañu am fu ñu am dëgg gis Euh, làmb yi xam naa promoteur yi dinañu mer. sous le haut parrainage mais sous le haut parrainage bi ngay xam ne Sénégal dañoo mën gis nga ñu folleeku dootoo leen dégg fu ñu leen tuddee. ci déedéet léegi nag PDG yi la tuddee. ministre de la République la ñuy tuddee. artistes yi également ku nekk di nga dem gis sa way sa waykat euh, ñoom Cheikh Mbacke Mboub dinañ wuti géer su ko defee nga baal nga baal ma noonu la nar a demee malheureusement ah noonu la nar a demee fondation yoo xamante ne ñu lay tagg di la way alors que yaa ngi jox koo xamante ne moom am na ba pare alors que au fin fond du Sénégal am na koo xam ne bu xëyee du ndekki du añ du reer je pense que ne euh, disparité sociale boobu inégalité boobu la ñu war a résoudre première dame mën na am xëy mën na contribuer au développement de son pays mm. mais du ko yemale rek Dakar wala borom am am yi wala borom tuur yi di wut ay sénateur ak yeneen na dem ay gox yu sori sori jàppale askan wi fa ak jigéen ñi mm-hmm. loolu moo ci am solo Aïcha en tout cas patriotes yi ñoom euh, lancé nañ le signal euh, fort Khady wala joxe nañ seen ay avertissement euh, par rapport à la deuxième dame de du président de la République du Sénégal ñu wax ci leneen loo xamante ni Sénégal bi moo ñu ko xamal tey en exclusivité frontières mu di Adji Sarr mi nga xamante ni euh, wax nañu ni actuellement il est en Suisse euh, sous statut de réfugié euh, politique loolee nag Seneweb moo ñu ko xamal en exclusivité wax ni selon seen ay sources policières ki nga xamante ni moo fi accusé woon Ousmane Sonko de viol elle est actuellement fële ca Suisse elle est hébergée par un avocat sénégalais dont l'épouse est de nationalité suisse boobu couple nag ñu ngi résider ci commune bu ñuy wax Véry Rié nekk Euh, Genève alors euh, ñoom nag seen interlocuteur bi ñu waxal wax na ni Adji est entrée en Suisse avec un statut de réfugié politique dellu waxaat ne elle est passée par voie terrestre pour arriver fële ca Mauritanie naka noonu nag la jaal de jël ab vol bu ko yóbbu fële ca Genève alors bi la article nag reprendre nañ ko itam massivement toujours euh, ci plateforme euh, digitale yi xadi même bu fekkente ni sur les réseaux sociaux on voit aussi euh, beaucoup d'internautes yoo xamante ni jamono ji dañu nekk alaat la traque bu ñu ko mën a woowee noonu ji mu ngi euh, créer beaucoup de polémique ba tey euh, ci plateforme euh, digitale yi ñu jeexalee ko peut-être ak ñaari vidéo bi ci njëkk nag dafay wane répercussion yi nga xamante ni coowal Cobra ak savon am na ko ni ki démb ak barki démb ci ñiy liggéey ci TikTok bi parce que malheureusement seen ay live léegi dañ koy restrendre benn tranche dage bi nañu déglu wala ñu seetaan vidéo bi xam ngeen nag lii métti na ay ci bopp boroom en fait depuis 23 heures et quelques dañu indi benn restriction ci ci live yi donc live yi dañ ko limité benn euh, comment dire benn tranche d'âge bi dootu ko mën a gis ce qui veut dire yow mën na bloquer ses ci live bi ba sa jaay dafay wàññeeku wala sa public bi nga waroon atteindre ci live bi dafay wàññeeku lan moo ko waral juste parce que am na ñaari jaaykat yu fi nekk di saagante di rayante di yàqante lu mel ni keteme def outrage à l'ordre public ba ñu woo leen dugal ay restrictions yu bees ci application bi au Sénégal et c'est vraiment vraiment compliqué et triste parce que mënoon na gën a rafet mënoon nekk loo xamante nii ñun ñëpp ñëpp ñëpp yan bi wala coow li wala ay bi duñu duñu duñu jàll donc léegi ñi nga xamante ni ñëpp ñi ngi ci application du ci liggéey di ci def fula di ci def farata am ci classe am ci personnalité dañuy subir aussi daan yi nga xamante ni ñaari nit rek ñoo ko waral donc war nañ xoolaat suñu jikko xoolaat suñu bopp xoolaat suñu su kon nuñ koy waxee jàng aussi mer tey suñu bopp jàng mer war a jug toogaat jàng mer war a réagir ay Aïcha ñoo ko gisandoo Khady je pense que résumé na en quelque sorte ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci TikTok parce qu'il faut dire que par le biais des lives quand même il y a de start-up beaucoup de euh, yoo xamante ni euh, ci TikTok bi la ñuy parvenir à liggéey maanaam jaay seen ay marchandises mais malheureusement euh, conséquences yi nga xamante ni moom moo tukkee ci diggante Mame Ndiaye Savon ak Mamy Cobra moo leen jural lii tey certainement restrictions yi dinañu ko lever bu ñoom ñëpp nag tegoo ci charte bu normal bi c'est important euh, comme on termine avec une bonne blague. Si la président, il a deux femmes. Mhm. la habitants. Est-ce Sénégal, on peut avoir deux femmes? Si la président, il a deux femmes. Mhm. la habitants, la population. Ouais. Qui sommes-nous pour avoir deux femmes? Ah non, non, le président, il a deux femmes. Le président, il a trois femmes, que c'est moi-même, je troisième. Ah, il a, deux femmes au bled et, une femme en Europe, c'est moi. Ah, c'est toi. C'est moi. les, populations peuvent se marier à deux femmes aussi alors. Ah, euh, population sénégalaise a toujours oudjante. Ils ont toujours oudjant. Le Donc, Sénégal, ils aiment le oudjante. C'est quoi le oudjante ah, ah, Les Sénégalais, le Sénégal, ils aiment le djongoma, le femme 1, le femme 2, le femme 3. de djongoma, quoi ah, le Djongoma le Djongoma, les Sénégalais, ils vont connaître. si moi je vais là c'est bien. Alors, ça veut on peut marier deux femmes. Mais tu pas avoir longue vie, c'est ça le problème. Pourquoi Parce que quand tu maries la femme, l'autre il va le ginger avec le cristaux de menthe, toi tu vas manger. L'autre il va faire toi tu vas manger. Toi, tu En suffisant de il va toi. C'est ça le problème dit. Sinon, tu peux marier que si tu veux, tu maries quatre. Au Sénégal, tu peux prendre quatre femmes. Ah, au Sénégal, on peut prendre quatre femmes. Tu prends quatre. Mais si j'ai des femmes sénégalaises en France, est-ce qu'elles vont accepter d'avoir deux, trois femmes Ah, moi, je sais pas. Moi, c'est en tant que je suis la troisième. ay ñii ay créateur de contenu digital lañ xadi ñu nekk si TikTok bi mais seen ay vidéo dañ koy reprendre bu baax a baax il faut dire que aujourd'hui il est tombé il est mhm. euh, sur une euh, sénégalaise c'est pourquoi je l'ai repris mais day jël ñu bari ñu muy dajeel ci mbeddu France yi di leen poser ay euh, questions comme quoi que nous on fait l'actualité partout actuellement hein et c'est drôle mais wax na ay dëgg aussi wax na dëgg Mouhamed Diop xam na ci dara moom <laughs> ah alors Ahmed xam nga bàyyi ma lese deux ay ca xadi moo gënoon fës ci toile bi la ñuy leen di jaaxe jox leen dig daje demain incha allah dans d' autres chroniques digitales euh, ma remercier bu baax a baax Kentra pour la belle tenue le maquillage Afy Fashion. Afy mhm. Fashion lan. make thank you. <laughs> Euh, merci beaucoup borom brocart yu rafet yi. dëgg yaa ko fi yaa ci toog. yooyu yëpp ci toog. <laughs> ñu koy bu baax a baax Nafissatou Dieng moom itam mu leen di jox rendez-vous demain samedi incha allah euh, ci euh, spécial bi nga xamante ne dinañ leen ko euh, proposer ñu jaaree noonu dem seen rubrique l'islam ak jamono ondu ci ak El Hadj Ahmed Khalifa Niass. Euh, même euh, la prophétie dañ ko discuter de manière cartésienne ndax carte euh, décarte moomu sax wax nañ ne bëri na lu mu inspiré woo ci imaamul Ghazali te imaamul Ghazali boobu mooy itam espagnol la woon dégg nga am na ci borom xamul ñoo xam ne ay portugais la ñu woon booba Reconquista amagul ba. Elisabeth euh, la Sainte euh, di ànd ak jëkkër ji euh, Alfonso di kii di leen di daaru seen kaw maanaam ba loolu lañ génnee jullit yi espagnol yi ak juif yi génnee leen Espagne ak portugais ñu ci la ñëwee Afrique du Nord ñeen nañuy nekk Fass ñeen nañuy dem Tunisie ñeen nañuy nekk Algérie dañ leen a tasaare woon parce que loolu sax defe naa ne danaa ci def euh, ay waxtaan yoo xam ne yu war a mën a jëriñ nit ñi la parce que nii ñi xamuñ ne à un moment donné l'islam sax lislaam sax moo ëppoon France dem ba Russie Russie yëpp nekkoon nañu musulman Ukraine euh, Hongrie Roumanie euh, Bulgarie Allemagne itali France yooyu yëpp nekkoon nañu ay réewu jullit Espagne Portugal Angleterre Angleterre am nañu seen monnaie yoo xam ne boo ko xoolee euh, kii islamique lañ ci def laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah même viking yi viking yi ca nga xam ne ñooy tey Suède euh, kii ñuy wax les pays scandinave scandinave yi ci boppam nekkoon nañu yaa junne at ay jullit yooyu yëpp dafa dafa xëccu après waaw kon nag su fekkee ne loolu yow nit ñi xamuñ ci dara nit ñi xamuñ lu xew ci lislaam xamuñu di ay royaume bi fi nekkoon ay xam-xam ay kii déedéet léegi sax bu dee yow da ngaa <laughs> jàng arab dañuy dañ lay wax ne la est-ce que naka la di mën jàngee médecine ci arab te médecine arab yi ñoo ko sos Ibnu Sina muy Avicenne médecin la woon philosophe la moo nekk sama tàpp yooyu ngay gis dégg nga mais kooku moom moo jàngal gaay euh, euh, baatu chimie ci ci euh, kimia la jógee ci arab ça quantité wala quantum la joge arabe yi tey yi téléphone yi ñu yore ak ordinateur yi ki ko sos Mouhamad la tudd Muhammad al Xawaarismi Xawaarisma benn dëkk la ci euh, ci wetu Iran boo xam ne benn réew la boo xam ne sax amoon nañu royaume bu tudd noonu waaw royaume ñoom nag ñu mal prononcé ko xam-xam bi mu génnee mënuñoo wax xawaarisma ñu ne algorithme nekkoon ay alga ay rythme mais Mohammed moo génn lu mu doon wut daf doon génne wut benn solution li ñuy wax solution di tout ci wàllu miraas donc ci la moom moo defar algebre aussi algebre li mu firi aljabre mooy jàng damm damm kii dafa dammoon ñu di ko jàng pour mu delluwaat place am delloo boobu ñu koy delloo place am moo tudd jabru ci da baatu algèbre jóge donc ñoom ci affaire mirage dañ doon liggéey te ji nga loolu ñu ko tuddee ñu tuddee ne euh, jàng damm-damm la kenn mën mënta def algèbre te amru te defoo ko ci ay fraction voilà euh, un euh, un demi un quart un tiers un quatrième un cinquième un huitième waaw loolu moom moo tax moo moo tax ñu tuddee ko algèbre maanaam mu dem dafa bugg dañoo bëggoon a def équation yoo xam ne dafay régler mbooleem kaawu miraas te miraas moo gën a compliqué ci àddina parce que miraas mi fii su fekkee ne waa ji ay doom yu jigéen rek la am niñ koy miraasee bokkal ak bu dee ay doom yu góor rek la am Uh, chers téléspectateurs on est de retour ci seen plateau GP le grand plateau ñu fas yéene wooy waxtaan wi waaye balaa ñu cee ñëw euh, damay dalal ñi nga xamante ni ils viennent tout juste de nous rejoindre bokk na ci Kader Dia Kader bonsoir. bonsoir euh, Fadi Colonel ñu ngi lay nuyu ziar bu baax. ñu ngi hmm? borom côté bële. waaw waaw yow xam nga da xew fu mu toll nii aux deux galons. ziar nañ la baax a baax. côté bële jërëjëf sama rijaal dëkkandoom laa fa. waaw ah, loolu après ci suuf la incha allah <laughs> nuyu baax baax euh, Omar Faye nuyu euh, Serigne Saliou Fatou Abdou ak euh, sunu ñaari gan yi vraiment kontaan trop ci fekkante fekk ñoom waaye tamit nuyu waa club Nabia incha allah. Oh, ñu lay fay bu baax a baax Omar Faye borom leeral askan wi. maa ngi lay ziar. delloo ziar yaa ngi si jàmm. ñu sant bu baax naka ajuma yi. ça alhamdulilah. naka waa Sen TV. ñu ngi fi leen di di leen ziar bu nuyu sunu sunu gan di nuyu Serigne Fat Abdou. di nuyu yéen ñëpp. Mhm. yow ana seen <laughs> o. moom duma leen bàyyi. duñ leen bàyyi. je vais adresser le premier à adresser une lettre au président de la République maa ngi njëkk a ñaxtu <laughs> première lettre bi président di jot man maa koy bind envoyé ko ci seen yoon la ndax facture yi ñu yónnee ñu ak problème yi ñi am duñ ko fay mhm. moom moo il faut que ça soit clair te amul lan moo tax ñu jox ñu ay facture yooyu duñ ko nangu duñ ko fay mhm. léegi nag ñu ngi waajal xam na lañuy ñuy waajal mhm. gisee sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall. macha allah. muy ñaar fukki fanu weeru koor. muy dimanche. xam nga loolu rëy la de. ci weeru koor weeru sell yi. si la ñu daje ñoom ñaar. moom la ñuy waajal dimanche. wàcc kàmmin jàng xasida yi yëkkati zikrulaa bi. te li nga gis yëpp ñaar ñooñu la. yàlla ak bi Sëriñ Tuubaa moom Cheikh Ibra Fall lislaam kii moo ko doxal kële moo indi yoonu murit kii moo tax ñu appliqué lii yor borom baatu laa ilaha illallah muy maam Cheikh Ibra Fall moom lañuy def dimanche góor yàlla yëpp ñu koy waajal il faut nit ñi xam Baye Fall yi ni ñu mel dañuy gis Baye Fall nii rek te xamuñu kuy Baye Fall. Baye Fall lépp lu mu mën a def bu yëkkati doomu aadama moom mu suufee da koy def bu yoroon benn danku ceeb ñu soxla ko mu jox la ko te moom mu bañ a lekk. xeetu jàng boo gis nag fu mu mënti toll. Mhm. Baye Fall yi egg na ci. Mhm. du ci alxuraat du ci école du ci lépp nag façon secteur boo gis rek Baye Fall egg nañ ñooñu nag ñoo ko nar def cees bi ànd ko ak ñëpp xalif général des Baye Fall sa Thiès ñu ànd ko ak Serigne Cheikh Ngounda Fall yéen ñëpp invité nañ leen incha ku ci am sa xéwal tamit na ko ci def te xam ne bës boobu bës bu réy la te dañ siy ñaanaale Sénégal tawféex rek tawféex ci réew mi ba abadan. macha allah moom la ñuy ñaam. macha allah kon doo Fatou mi ngi noonu noonu mi maa ngi noonu. Mhm. ñëpp xamandoo ko. bu dimanche naka ñëpp waajal. am na solo. waaw rencontre Serigne Touba ak maam Cheikh mhm. waaw am na solo bu baax a baax Omar fi nga ubbee ñu koy euh, nuyu di ko remercier bu baax a baax balaa ñoo ñëw ci ci débat bi dañuy dem maman joxe quelques xéewal. voilà Khady euh, yaakaar naa ne sama jot na. fi mu toll nii nag <laughs> téléspectateurs yi euh, xam naa ne yàkkamte nañu ko ma jox leen ci xéewal bi donc mu ngeen commencé woote dès léegi ci 88 628 89 90 ngeen bës 2 wala 88 628 28 28 wala ngeen dugg suñu page l'officiel Sen TV comme ni ma ko waxee woon daal di réagir maanaam ngeen euh, commenter partager ak aimer bu ko defee ñi gën a réagir nag ñu lay jox ci xéewal bi am na ñu moo fi jot a seen ku ci mel ni Mariette Thomas Mariette nattu euh, am nga fi vingt cinq mille francs sa numéro téléphone nag mu ngi nekk 77 749 87 ak li ci topp bu ci kanamee léegi naa la ko yoon yónnee par Orange Money soo jogee ci Marietou daal di may laa Djeylani jàlloo Jeylaani tamit vingt cinq mille francs si yow sa numéro téléphone euh, mi ngi nekk soixante dix huit euh, deux cent quatre vingt cinq soixante dix neuf ak li ci topp quatre vingt huit la six cent vingt huit quatre vingt ngeen bës deux wala quatre vingt huit six cent vingt euh, huit vingt huit vingt huit bu dee am na kenn ku fa nekk rek régie ngeen jox ma ko ma daal di koy baaxee ci suukaru koor gi bu dee amul kenn ku fa nekk nag ma daal di ñëw baax sama ay partenaires allo. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo def. sant yàlla. yaa ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah. tur bi naka la. Youssou Ngom. Youssou Ngom. waaw. Youssou fan nga ñuy woowee. Touba Mbacké. fan ci Touba. Touba Mbacké Ndaam. macha allah naka foofu naka euh, climat bi mu ngi féex wala mu ngi tàng. waaw ah, fan yii de mu ngi féex. mu ngi féex. waaw. Ah. ba yaa ngi waajal suñu guddi gi rek. waaw yaa ngi koy waajal. maa ngi koy waajal baax. waa tubaa nag lañ koy préparer actuellement. guddi gi. waaw. mooy guddi rencontre euh, sëñ Touba euh, sëñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima ah fii xam nga lu ñun naka jekk ñu ngi ñun tout le ñu ngi ci yooyu rek. bëgg naa xam daal préparer fi mu toll fi mu toll nii. tubaa bëgg naa xam na nga koy waajalee. xanaa di xaar mu yegg si rek ci ñu li mm-hmm. waaw nag comme na woon rek benn rek. waaw. waaw. allo Youssou allo. oui. ayca dafa mel ni Youssou dem na allo. allo. sëñ bi noo def. yaa ngi si jàmm. yàlla bu baax. alhamdulilah est-ce que doo wàññi télé bi comme ça déggante bi mën a neex allo. ayca 88 la 628 89 90 ngeen bës 2 wala 88 628 28 28 boo leen duggee da ngeen di wàññi seen télé ngeen déglu ak téléphone bi bu ko defee nag euh, déggante bi mën a neex ma daal leen mën a jox seen suukaru koor ba jëm kaw lépp lu ma fi yor rek orange ñoo ko jox ma la koy jaarale par orange money pour ay euh, client wam moo ma leen di jaajëfal bu baax a baax donc bépp transaction boo leen def par orange money ngeen jaarale ko ci application Maxi It euh, chaque jour mun ngeen am mille francs parce que orange un million teg table pour ay clients donc nag euh, mën ngeen dugg sax ci boutique orange def seen ay dépenses lu mat ba cinquante mille francs di ngeen mën a gagné euh, suukaru koor dix mille francs jëm kaw Nescafé tamit ñu moo ñu accompagner café boo xamante ni macha allah kenn dootu ko présenté ti cent pour cent naturel de qualité supérieure saa yi ñu ànd ak rek moom la ñuy naan bu ko defee ñu mën a nekk en pleine euh, Bridel qualité incontestable les frais de vache euh, mu ngi nii très riche en calcium baax ci mag waaye baax tamit euh, ci ndaw am na bouteille bu mag bi moom laa téye nii am na bu yem bi am na bu ndaw bi waaye tamit am na brique bu 50 centilitres bi fépp foo leen ci Sénégal mën ngeen koo am. Ecobank mi ñu andil Ecobank mobile euh, pour permettre ay clients wam ñu mën a am accès seen ay services financiers de base par mobile mën ngeen télécharger Ecobank mobile par Play Store wala par App Store wala ngeen dugg ci seen canal ngeen def dièse 22 22 bu ko defee nag euh, ngeen mën a am accès seen ay services financiers su ma jógee ci Ecobank dara jaajëfal bu baax a baax Sénégindia numéro 1 de l'immobilier au Sénégal Canal Plus mi nga xamante ni macha allah weeru koor gi moo ñuy accompagner ak ay chaînes yu neex a neex. mais du ma fàtte benn yoon tamit jus pressé ya mi ñu andil prix bu 1 litre bi moo nekk nii bari ay saveur lool sa tànn sa bu la neex la am na ananas am na bisaab am na cocktail am na goyaaf bu tàngee neex waaye bu sedee tamit mooy gën lool donc euh, jus bu neex la jus bu naturel avec de vrais fruits béko marque bi nga xamante ni euh, macha allah mu ñu andil gamme électroménager de haute qualité bu yaatoo yaatoo lu ci mel ni ay réfrigérateur ay machine à laver ay lave-vaisselle ay cuisinière professionnelle donc képp koo xamante ni bëgg na. équipé këram ak ay marque Beko mun ngeen dem si showroom Electronicor bu ko defee doon leen ko rëccu benn yoon Matidi tamit duma ko fàtte benn yoon mu nekk une marque spécialisée dans la fabrication de sac à main et euh, de montres et maroquinerie de luxe au design africain pour hommes et femmes xam ngeen Korité baa ngi ñëw donc képp koo xamante ni bëgg na ci euh, montre Matidi yi ak ci sac à main yi nga xamante ni fii ni Sénégal lañ ko defaree mun ngeen doxantu nang seen showroom am nañ benn bu nekk ville ci avenue Lamine Gueye bi am nañu benn bu nekk si City Plaza euh, zone de captage Mermoz noonu de la Sonatel ak euh, benn bu tamit euh, sali wala ngeen dugg seen site internet ngeen def www.matidi.com Lama boutique mi ñu andil Bazin Fousnega mu nekk basin boo xamante ni euh, macha allah dafa rafet lool 100 pour cent coton mu am brillance bu amul fenn basin boo xamante dafa ànd ak benn parfum ut bu neex foo romb ñu xam ne ne yow basin Fosniger nga sol ñu defaree ko ak benn ak matière boo xamante dafay mun adapté woo ak climat wu Sénégal xam ngeen dakaar dafa tàng donc basin bi boo ko solee doo sentir benn yoon tàngoor euh, ci yow ba pare dafa xeeñ neex lool 100 pour coton la korité baa ngi ñëw ñëpp war a sañse basin bi bari na ay couleur am na pour góor waaye am tamit pour jigéen képp koo xamante ni bëgg na ci basin Fosniger bu lama boutique bi dangeen doxantu nànk marché HLM juste en face guy gi ah, bu ko defee nag ngeen mën a jënd seen ay basin fausse-nègre ngeen mën a sañse ci korité bi su ma jógee ci bassin Fosniger damay ñëw ci bijouterie la solution aji Thiam mi ñu ànd bijou yu nice yi gis ngeen fan yëpp yi may takk ak yi ma takk tey ute na donc euh, bijou yi rafet na trop dañuy jaay lépp loo xamante ni mooy euh, or diamant euh, vingt dix huit carats ba vingt quatre carats dañ koy jaay korité tamit baa ngi ñëw bu ñu waxee jigéen wax or parce que ñëpp bëgg a or macha allah dafay yanjal jigéen bi ma takk. Euh, rafet na lool ba pare design bi benn la fi euh, motif yu raar di xale ko leen takk tamit macha allah rafet na trop donc képp koo xamante ne bëgg na que ça soit bague que ça soit euh, bracelet wala chaîne wala ay boucle d'oreille lépp lool leen bëgg rek ci bijou boo leen demee bijouterie la solution incha allah doo leen ko rëccu su ma jógee ci bijouterie la solution. ma daal di ñëw ci Touba ameublement ci décoration plateau bu rafet bi euh, boo leen bëggee décorer seen kër ay chambre à coucher salon salle à manger lépp loo leen bëgg ci équipement kër rek boo leen demee Touba ameublement incha allah euh, doo leen ko retrouver doo fàtte benn yoon tamit euh, Yassir Yassir mu nekk benn application boo xam ne daf ñu simplifier suñu vie au quotidien mun ngeen ko télécharger seen téléphone par Play Store wala par App Store ko defee nag ngeen mën a ravitailler wu actuellement ci supermarché bi supermarché bi mu ngi nekk ci biir application bi boo ci duggee rek supermarché boo ko bësee nag euh, da ngay def sa ay achat sans pour autant nga bouger nga bouger boo déplacé wu benn yoon di nga gis livreur boo xamante ni euh, dina la indi sa ay livraison ba sa biir kër et la livraison elle est gratuite pare ci biir supermarché bi aussi korité baa ngi ñëw mën nga jënd seen ay ndugg foofu boo ko defee nag euh, doo leen sonn benn yoon embouteillage doo leen sonal benn yoon donc nag mu ngi noonu Khady Colonel bu ci kanamee léegi ma daal di ñëwaat ci xéewal yi ak sama ay partenaires à l'heure continuer leen di aimer euh, partager ak euh, commenter ci kanam incha allah mu choisir ñeneen ñoo xamante ni daañu jot ci xéwal li ñu ñu soobu nag euh, ci waxtaan wi doore ko docteur ak li nga xamante ni depuis démb moom mooy def actualité muy président Macky Sall bi dalaloon démb le président Bassirou Diomaye fay moom itam mu ondoon ak Ousmane Sonko tey visite boobu ban lecture nga ciy def waaw ñu ngi ñu leen di nuyu Euh, di nuyu également euh, ñi nga xam ne ñoo fi mujj ñëw léegi di samay xarit war naka waa Rufisque ñu ngi lay ñu ngi fa. ça va bien macha allah. ça va euh, di wax rek ne damay tàmbali di di rafetlu li xew biir Sénégal mooy muy lu xam loo xam ne dañ ko suweete woon mais wóoruñu woon ne dina dina dina nekk. Mhm. parce que képp kuy citoyen sénégalais dix-huit millions foo munti dëkk li la war a gën a soxal mooy Sénégal am jàmm parce que ñun ñi nga xam ne peut-être une grande partie du temps ñu ngi koy def au niveau international euh, di gis li xew ci bitim réew si autour de nous au niveau africain même en l'international en Europe et partout bépp réew boo xam ne jàmm amu fa citoyens yi dañu am dañu nekk dans des difficultés extrêmes ki nga xam ne yàlla suturaal na ko mu am koom-koom ki ko amul góor jigéen mag ak ndaw dañu nekk ci ay difficultés damay rappeler tout le temps euh, su may gis des des deux côté ah euh, du côté de l'opposition, du côté du pouvoir, quelle que soit la situation, les non-alignés, les euh, membres de la société civile. Euh, bi ma gënee nekk jeune boobu xëy na man ak caat ñoo xawoon maase <laughs> moom caat laa koy woowee mooy suñu caat caat assemblée euh, boobu j'étais directeur régional de de des laboratoires Janssen Silag au niveau de au niveau africain Euh, ma majeure partie du temps maa ngi ko doon maa ngi ko doon passé maa ngi ko doon passé à Abidjan parce que Abidjan nag c'était c'était le cœur en tout cas de de de de notre business en fait de le business du laboratoire donc bien que j'étais directeur général euh, directeur régional j'étais obligé majeure partie du temps may nekk foofu parce que dafa doon gérer beaucoup de pays au niveau au niveau africain et chiffres yi foofu la doon ëppee alors période boobu euh, maanaam mënuñu woon comparer Côte d'Ivoire ak Sénégal cest boo ñëwee Côte d'Ivoire dafay mel ni da ngay cest dafay mel ni yaa ngi Europe par rapport ak Sénégal ni mu meloon loo xam ne lu ma dund la c'était dans les années 2000 à peu près un peu un peu avant ba ba ba ba 2000 2001 un pays mais exceptionnel képp koo xam ne société nga am benn multinationale nga nekkoon à l'étranger sa siège foofu nga koy def je me rappelle BAD y avait eu beaucoup de discussions après la dem Tunis mais BAD dañu xool situation bi gis na que fii business bi fii la gën a taxaw ñu def siège bi foofu nit ñi nekk ci jàmm euh, les étrangers di fa ñëw nit ñi euh, képp koo xam ne am nga société société bi pour mu dox du du am du am problème ba li xew-xew te ñoom c'était mën nañ ne li ko yëngal du woon lu kenn mënul xalaat période boobu ne foofu naroon na am euh, des remous jour bi ñu euh, bi muy am coup d'état bi Henri Konan Bédié bi ñu koy coup d'état man mi ngi ma fekk foofu Abidjan muy lu doy waar et bon ñun dañ amoon euh, des des relations avec l'hôtel l'hôtel Euh, du golf hôtel golf nag dafa nekk nekkoon benn hôtel boo xam ne y avait y avait énormément de monde ci loolu jour boobu cou couvre moo fa amoon ba ba may dem ñoom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci couvre-feu ñëpp jaaxle bés ma ñëw dellu si parce que dañ doon continuer quand di liggéey bés ma ñëw dellu si daje euh, ñëwaat même hôtel bi mu amoon nag ay euh, ay militaires yu fa nekkoon donc Guillaume Soro d'ailleurs euh, ay membre euh, ay ay militaires ñoo xam ne ci ci ci gouvernement bi mais Guillaume Soro aussi mi ngi woon foofu parce que ñoom foofu lañ leen dalaloon période bi ma ñëw affaire bi jaaxal ma kenn nekkatu fa hall bi dafa doon fees dell mais y avait plus personne bés ma wàcc di ndekki ay côté secteur yooyu bi ma wàccee gisuma fa kenn mais ma wàcc di ndekki normal mu am kenn ci généraux yi wàcc toog wàcc moom kese di ndekki teguma ci cinq minutes rek ñu ñoom ñu yegsi si à dire militaire yegg si daw si ñuy daw si maa ngi dégg garde rapproché bi di wax ak di wax ak euh, euh, kii bi le maître d'hôtel mu ne ko général bi bu fi duggatee na nekk face à la porte fekk man maa ngi doo à la porte ma toogaat xoolaat tam bopp ma ne man doomu Sénégal bu toog fii maa ngi doo à la porte général bi comme moom moo am problème doo keroog keroog laa géej wàcc ci ndekki ci suuf di def di def room service tellement affaire bi ma xam ne fii situation bi on était en danger mm-hmm. donc réew buy basculer ay ay yu ndaw moom mooy tax mu basculer donc xawoon amoon nañ tiitaange mais ñu gis na que le peuple sénégalais est un parce que da ngay dem ci bureau de vote yi et tout doo dégg nit sax wax affaireu élection yi nit ñi dañu ñëw taxaw ku si nekk xalaat na xam nga fi ngay dugal sa kii di nga wax ak naa dajek abo di waxtaan ak mooma ah. man xam naa fi may dugal sama sama sama xob moom xam na ko ñu def vingt heures et cetera lépp leeroon na lundi macha allah ñëpp dem liggéey lan moo gën a neex loolu et y a beaucoup de choses aussi qui sont importantes effectivement li ñu gis lu rafet la lu rafet la parce que président sortant bu euh, dajeek président entrant biir pale avant que passation bi di am dama jàpp ne dañu waxtaan ci li nga xam ne moom moo soxal réew mi dama jàpp ne daf koy préparer pour mu bu bu bu bu téyee réew mi mu téyee ko ci anam bi nga xam ne boobu la gën a rafete ñiy def politique nag ñoo war a jàng ci loolu ak doomu Sénégal yi tamit ñoo war a jàng ci loolu parce que la seule constante dans ce cas de figure là suñu réew la lu rafet la tey da ngay am fierte di dégg à l'international ñu ne ah Sénégal de def nañ une transition mais vraiment pacifique ça c'est une chose dégg naa également ñu bëri ñuy expliquer naan mais euh, j'ai vu bon duma ma réew bi mais am na benn réew bu naan ah président de bi ñu fal euh, bi muy bi mu amee ñeenti at am na beneen président beneen réew euh, mu ngi woon foofu lañ ko fale woon ci Afrique fii la te ba léegi kooku mu ngi foofu. sa vrai. donc ça veut dire que y a une fierté di féliciter également tous les acteurs politiques yi nekkoon euh, ci euh, ci jongante bi parce que c'est très important aussi ces acteurs politiques la dem nañ def nañ tour du Sénégal ku si nekk wax na li nga xalaat euh, il y avait 19 candidats ci 19 candidats yooyu mbir mi jeex na ku ci nekk féliciter. Euh, le président Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne moom moo gagné euh, muy vraiment jàngat bu am solo parce que tamit loolu ci fair play la bokk. beneen bi mooy tamit di euh, di ñaanal yàlla président président Bassirou Diomaye Faye li nga xam ne moom mooy c'est son quinquennat muy quinquennat bu dal. quinquennat bu am solo quinquennat boo xam ne. résultat yi nga xam ne dina ko am résultat yooyu dina dellu ci doomu Sénégal góor jigéen mag ak ndaw ak ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk bitim réew donc loolu vraiment euh, jàngat euh, pour pour une première appréciation en tout cas euh, de la chose et gis nañ aussi que y a cette benn sorte de de réconciliation nationale bu mbir mi àndal parce que réconciliation nationale dafa am solo nit ñi fàtte lépp li nga xam ne moom mooy gageer yi daan am te ñu dem fi nga xam ne moom mooy euh, mooy ci liggéey bi ñu ñaan yàlla liggéey bi ñu defee ko ni mu waree. amiin amiin maintenant après dinañ ñëw également ci yenn aspects yi. parce que j'ai j'ai lu en tout cas yenn aspect programmatique yu intéressant aussi yoo xam ne euh, su fekkee ne en tout cas mise en œuvre bi am na. dina indil euh, en dina am solo pour pour réew mi. c'est vrai dinañ ci ñëw léegi incha allah alors honorable yow itam bëggoon naa am sa avis par rapport à ndaje boobu président Macky Sall euh, boobu ba tey ñu ngi koy dégg mu ne buy dem daf fi bëgg a bàyyi réew boo xamante ne ci jàmm ak salaam ak dal la mu mel ni mu ngi ba tey ci logique boobu. merci beaucoup Khady dañuy nuyuwaat aussi suñu ñaar yi nga xam ni fekk si nañu ci plateau bi. di eh, di ko rafetlu bu baax a baax a baax. comme ni ko docteur Malick waxee président dafa nekk loo xam ni li xew ci biir réew mi avant élection yi ak coow yi fi am élection yi bi mu ñëwee ak ni mu jàllee ak li xew yëpp. mu nekk une leçon de démocratie boo xam ni Sénégal jox na ko monde entier. et c'est l'occasion de féliciter le peuple sénégalais parce que c'est un peuple mûr. peuple boo xam ni xam na lu mu bëgg amaana ñun politiciens yi ñoo comprendrewul tey ba tey ban peuple la ñu am moo tax lu coow bari bari bari bari bari ak lu mbir bari bari bari au Sénégal gis nañ ci lu ci bari. Mm-hmm. après élection nit ñi dañuy xëy dem liggéey ji contrairement ak yeneen dëkk yoo xam ni dañuy gis li nga xam ne moom moo fa aw bu yàggul rek muy Gabon. et que nit ñi tiitoon nañ nit ñi jaaxle woon nañ parce que man yàlla dafa def ñi ma jàngandool ñu ci bari ñeneen ñu ci ëpp. ci yeneen dëkk africain yi lañ nekk avant élection yi dañ ma doon woo di ma demander qu'est-ce qui se passe au Sénégal ak loolu mais après yi ñoom ñoo may woo di féliciter le peuple sénégalais pour wax que ni le peuple sénégalais c'est un grand peuple donc loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la et loolu la fi Léopold Sédar Senghor bàyyi loolu la fi Abdou Diouf bàyyi loolu la fi Abdoulaye Wade bàyyi et loolu la président Macky waxoon ne buy dem dafa bëgg un peuple boo xam ne un peuple réconcilié mhm. peuple bu jaar yoon te it kii dem ëllëg muy Bassirou Diomaye Faye quel soit le temps bu mu fiy def moom aussi buy dem aussi loolu lay ñaan yàlla bàyyi ko fi donc c'est quelque chose boo xam ne dañu koy saluer dañu koy rafetlu parce que loolu mooy tradition wu Sénégal et que li am solo mooy en 2000 lañ njëkk am premier alternance et que bi nga xamee ni dem nañ élection yi guddi avant résultat yi génn le président Abdou Diouf a appelé le président Abdoulaye Wade ko mu nekk loo xam ne lu taaru ci Sénégal le président Abdoulaye Wade en 2012 bi nga xamee ne perdre na le pouvoir balaa résultat yi di génn mu woole président Macky Sall félicité ko def passation de service ak moom ñaanal ko mu daal di dem. et que gis nañ aussi bi nga xamee ne tey jii élection yi si la ñu jëm bien vrai le président Macky Sall n'est pas n'est pas candidat mais candidat yi ci bokkoon yëpp yu ci ëpp avant résultat yi di génn. woo nañu ki nga xam ne moo nekk Bassirou Diomaye fay félicité ko ba ki nga xam ne moom lañ jàppoon que ni élection yi ci ñoom ñaar la doon joué moom aussi woo na ko félicité ko le président Macky Sall woo ko félicité ko mais loolu doyul le président Macky Sall woo ko recevoir ko palais mu ñëw mu waxtaan ak moom ci Sénégal waxtaan ak moom ci li nga xam ne moo nekk réew mi waxtaan ak moom ci li nga xam ne fa la ñuy jëm muy passation de service bi. Mm-hmm. mu nekkaat beneen leçon de démocratie boo xam ni quand on est sénégalais dañuy fier di gis image yooyu noonu parce que dafay tax fu ñu dem ci àdduna bi ñu mën a siggi gis nañ liy xew lépp ci Sénégal mais yàlla def bi élection yi amee amul ay euh, CEDEAO ay acteurs yu bëri. am na ci yoo xam ni bi leen la notre président du groupe parlementaire di recevoir Maodo Lamine dama ko doon fekkee mais ñoom ñëpp njàqarle ak tiit la ñu amoon ci Sénégal mais après élection yi ñoom ñëpp ay félicitations la andi donc encore une fois il y a qu'un et le gagnant c'est le peuple sénégalais c'est le peuple sénégalais qui a montré que c'est un peuple mûr c'est un peuple boo xam ni am na lu mu bëgg encore une fois ñu ngi féliciter et di remercier le peuple sénégalais di féliciter aussi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko ñaanal yàlla defal ko ndam ci li nga xam ne moom la euh, a am voilà taxaw di di saafonte di di waxtaan gis président Macky Sall defal leen euh, visite après tout ce qui s'est passé quand même. waaw mais comme ni ko ni ko Malick waxee ak Abo Mbacké Thiam aujourd'hui je pense que euh, pour la première fois Sénégal depuis boog des années. Sénégal am benn sentiment bu unanime sur une chose moo lay wane ne on a un peuple boo xamante ne dañu bëgg jàmm. parce que boo xoolee image yi ñu ko statut boo xoolee image yi ñu ko partagé. même les détracteurs d'Ousmane Sonko et même ceux qui sont de Pastef qui disaient toujours des choses yoo xamante ne ci le président Macky Sall dañ ko partagé et dañu bind sax ci suuf pour montrer leur fierté le Sénégal dont nous sommes fiers parce que loolu lañ doon xaar dañ doon bëgg Sénégal boo xam ne même le président de la République et son adversaire politique ñu toog parce que le président Abdoulaye Wade il a fait la prison il a fait 26 ans d'opposition mais dem na prison génn prison ñëw dugg ci gouvernement Abdou Diouf bi mu jotee pour mu nekk président de la République nekk na ko malheureusement nag le président Macky Sall ak Ousmane Sonko dañu yeggoon ci extrémité boo xamante ne même le pays était clivé dañu demoon ba diviser le peuple sénégalais mhm. maanaam da jàpp ne y une presse boo xamante ne pouvoiriste une presse opposante des hommes d'affaires qui sont du pouvoir d'autres qui sont de l'opposition des enseignants ou des syndicats du pouvoir ou de l'opposition dans tous les secteurs da nga doon gis clivage boobu nga xam ne amoon na mhm. maintenant li am bërki démb nga gis ko mooy euh, la li ñuy wax euh, nu mu tuddati court dafa courtois déjà mooy mhm. sunu tradition républicaine Senghor ak Abdou Diouf il y a des photos qui montrent Abdoulaye Wade Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall et aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye et ki nga xam ne moom mooy le président Macky Sall mais non il y en a certains qui s'interrogent pourquoi Ousmane Sonko ci biir mm-hmm. le président Bassirou Diomaye Faye ba léegi nii nga xamante ne le conseil constitutionnel a sorti un communiqué pour dire de manière définitive qu'il est élu président de la République du Sénégal mi ngi door a officiel. parce que keroog bi ñuy xaar liste définitive bi sénégalais yi mënuñu woon wax kan mooy bokk ci élection yi waaye ku dul bokk. il a fallu la liste définitive il pas de recours jusqu'au jeudi aujourd'hui c'est le vendredi waxtu bi ci ngoon gi sànq le conseil constitutionnel génnee. fii taxawul ci kanamu askanu Sénégal waat. il ne pas encore président de la République de manière officielle mhm. que ci lay joxante léegi su fekkee ne le président Macky woolu na ko et wóolu Ousmane Sonko ou bien même parce que ñun xamuñu les dessous aujourd'hui de cette visite gis nañu des photos gis nañu des vidéos mais xamuñu qu'est-ce qui est-ce qu'il a appelé Macky Macky Sall dafa woo Ousmane Sonko wala est-ce que du Bassirou Diomaye moo ne ko pour mu gunge ko et aussi la République est incarnée par un seul mais ça c'est ce sont les faits mais li ci ginnaaw mooy Bassirou Diomaye Faye est devenu président de la République grâce à Ousmane Sonko xam nga neexul wax parce que fi mu toll nii il incarne la première institution du pays. Mm-hmm. maintenant kooku ci yu mel nii nga gis ko mu ànd ak moom je pense que du loo xamante ne peut-être mën nañ ci mën nañ ci mën nañ ci épiloguer sori ci maintenant nag bu ñu demee ba nga xamante ne toog na ci fauteuil présidentiel bi nga xam ne c'est un seul fauteuil pour une seule personne pour une seule république c'est lui Bassirou moom mooy signer décret moom mooy def moom mooy dindi maintenant fi ñu war a dem après au delà de cette visite mooy les perspectives yi nga xamante ne tey Sénégal war na dem foofu loolu peut-être que au cours du dinañ ci gën a mën waxtaan. alors Serigne Saliou dañu gis euh, ci période de campagne bi yëpp en tout cas depuis bi ñu génnee que euh, Ousmane Sonko da doon chaperonné entre guillemets ki lee di Bassirou Diomaye fay moom moo doon njëkk a jël kàddu moom moo nekkoon ci kanam ñu gis également ñu war a dem pale ñu àndaat ñoom ñaar est-ce que bu ñu demee ba Bassirou Diomaye Faye le président jël pouvoir Euh, Ousmane Sonko dafa war a continuer di nekk ci wetam. ça dépend rek su boobaa ban euh, fonction lay occuper parce que fekkee ne dina nekk son directeur de cabinet wala mu nekk son conseiller wala mu nekk son premier ministre wala mu bañ ko nekk sa ça dépendra tout simplement mais ce qui est sûr et certain c'est que Ousmane Sonko et très conscient bien sûr des enjeux et que Sonko ne fera absolument rien qui puisse gêner le président de la République sax moom c'est clair. par rapport à la visite bi nga xamante ne moo amoon ci palais présidentiel c'est normal que le président Macky avant que muy dem mu recevoir Bassirou Faye et loolu ne serait-ce que même pour l'image que cela montre euh, Malick wax na ko léegi cette image de réconciliation nationale parce que loolu dafa am solo bi affaire bi amee ba léegi on n'a pas vu le président sortant et le président entrant gisuñu leen ensemble uh-huh. loolu dafay conforter l'image c'est-à-dire de cette réconciliation bi Bassirou Diomaye fay waxoon bi mu demee euh, hôtel Radisson donc je crois que loolu ne serait-ce que pour ça c'est une très belle image et c'est normal aussi doo xëy xëy rek kii dem te xamuloo lan moo nekk ci palais de la République ce qui est sûr et certain ils ont parlé des dossiers de l'État c'est clair visité loon na ko pale bi parce que je crois que c'était la première fois aussi moom muy dem ci palais bi loolu c'est je crois que c'était normal mais gisuma daal loo xamante ni euh, comme je l'ai dit euh, ci euh, ci kanam ci ginnaaw tuuti loo xam dafay tordre le le le protocole républicain et en plus soo gisee même image ci ñoom bi ñuy def yenn yenn yenn terre yi tu ne voyais pas Ousmane Sonko on voyait seul le président de la République en tout cas les deux présidents ñoom lañ doon gis te toujours da gis aussi Sonko même photo yi dafay nekk en arrière plan ce qui veut dire que il est très conscient que xam na ne kii c'est le président de la République donc je crois que à ce amul amul amul problème maintenant le jour où le président Bassirou Diomaye Faye procédera à des nominations su boobaa dinañ xam quelle place occupera occupera Ousmane Sonko c'est vrai que depuis lors ba léegi les gens sont en train d'épiloguer sur la place de Sonko et cetera et cetera que les gens sachent projet là politique Sonko est la base de projet politique je crois que moom xam na ci lu bëri Sonko su fekkonte ne c'est quelqu'un boo xamante ne ni dafa bëggoon a jël projet bi kon ba ñu proposé ne dañuy reporter élection yi ñu wax ko ko il avait l'opportunité de dire que nañ ko reporter parce que les propositions étaient là pour que ñu reporter ko moom mën a dugal candidature am Karim Wade dugal candidature am donc dès l'instant que moom mu bañ loolu en disant que non il faut qu'on respecte la loi c'est-à-dire que li nga xam ne moom la conseil constitutionnel wax mm-hmm. donc kooku ñëwul pour gêner l'actuel président la République parce que ce qu'il faut savoir c'est que ce projet la s'il échoue sax veut dire que c'est Sonko qui a échoué et je crois que Sonko ñoom xeexuñu ba ñëw ba heure bi pour que seen projet échoué et ce qui est sûr et certain à ce niveau-là en tout cas man ci li ma gis ci li ma xam je sais que c'est quelqu'un qui ne va pas du tout gêner l'actuel président en tout cas l'actuel président de la République donc sous sous cet là mën na ko euh, gêner mu bañ a doon tayee fa parce que par exemple bu fekkee nommé na ko euh, on va dire premier ministre est-ce qu'on ne risque pas ñu am un premier ministre beaucoup plus influent que le président de la République. Ça dépendra tout simplement de de de. parce qu'il est influent quand même. bon comme on dit que mënuñu nekk li nga xamante ne ñëwagul daal mais li mu bëgg mooy. ñoom conscient nañ xam nañ bu baax li ñu war a doxal xam nañ ko xam nañ li nga xam ne moo war a tax seen projet jëm ci kanam xam nañ li nga xam ne aussi buñ ko defee seen projet dina dina taxaw donc sous cet angle là moi je crois que vraiment il y a pas de il à se faire et aussi je suis un peu chaque fois sénégalais yi ils sont pessimistes par rapport à ça parce que man j'aurais pu entendre que ñu ne waa ñoom ñaar ñi suñu kii est-ce que vraiment Sénégal du gën a jëm ci kanam suñu joxante loxo comme ça mais chaque fois les gens vont se dire oui est-ce que kii du gêner kii est-ce que et cetera et cetera donc am na ñoo xam ñoom toujours ils sont sur langue pessimiste. Mm-hmm. man nag je suis sur langue pessimiste je sur langue optimiste dans la mesure où ñoom ñaar projet bi xam nañ nuñ ko tëggee biñ nekkee prison aussi wax nañ lu bëri waxtaanaat nañ sur ce projet la et Bassirou Diomaye Faye aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ce projet là. Mm-hmm. donc pour man daal vraiment y' a pas de y' a pas inquiétude à ce faire. Ah li ma bëgg a dolli rek si li docteur Malick Diop waxoon léegi cest dire que policiers il faut qu'il fasse beaucoup attention parce que li fi xewoon de 2021 jusqu'à aujourd'hui on a l'impression aujourd'hui que la tendance est complètement renversée mhm. parce que de 2021 jusqu'à presque 2024 bi ah Sénégal ci fitna la nekkoon et souvent loo xamante ni waroon na mun ñàkk parce que fitna yi li ko fi yëkkati woon yëpp pour man jàppoon naa ne loolu war na mën a ñàkk. on va pas revenir sur vraiment les origines de tout ce qui s'est passé. mais am na loo xamante ni je crois que bu ñu jugee ci lii avec les actuels gouvernants war nañ ko mën a moytu parce que xam nga li am solo mooy la stabilité de ce pays là et les gens viennent d'en être conscients et que président yi aussi nañu def beaucoup attention sur leur entourage parce que gis nga entourage yi dafa am ay bout feu ñoo xamante ni chaque fois ñoom comme comme on t en c'est-à-dire que jàmm bëgguñu dara ñooñu la maam booy jow di wax les rentiers de la tension c'est-à-dire que chaque fois pour ñoom jàpp nañ ne dëkk bi fitna moo fa mën nekk et puis les gis ne moi j'ai l'armée j'ai la gendarmerie j'ai la police je peux faire telle ou telle chose kii ne aussi man je gère la la justice kuñ fi jàpp mën naa mën naa ko tëj loolu mënul c'est-à-dire mënul yóbbu réew fenn on a il y a eu ici des des des, des arrestations à outrance man mi di wax j'en suis un exemple patent man je sais que ne li ma wax président Wade waxuma ko président Macky Sall su ma Wade jàppoon dinaa ko nangu. mais sur le régime de Macky Sall je n'ai pas dit le un de ce que j'ai dit à Wade. su se ah. j'ai pardonné ah mais mais mais je n'oublie pas. j'ai pardonné mais je n'oublie pas. voilà j'ai pardonné mais je n'oublie pas. mais cela ne pas dire qu'aussi il y aura une impunité dans ce pays parce que. mënoo jël ni nit tuumaal ko ci loo xam ne nii deful dara nga jël ko nga tëj ko man exemple laa ci bu ci gën a tuuti mais ñi nga xamante ne Sénégal dañ la doon tooñ ci loolu dafa bëri la preuve tous ces gens là ñu accusé fii xëy dañ def benn loi d'amnistie gën a leen ce qui veut dire que ça ne reposait sur absolument rien et le président Macky il a compris cela parce que ministre yi nga xaman ne ñoo nekkoon ci post yooyu que ça soit Antoine Diome que ça soit Ismaïla def dernier remaniement bi daf leen a yëkkati leen parce que xam na ne ñii lu mu dugg ñaar ñoo ñoo ko ci dugal finalement il s'est rendu compte que ñii amuluñ ko benn njariñ mu jël leen mu déplacé leen. aujourd'hui le président de la cour d'appel. oui bien sûr donc xam na ne ñooñu musiba bu mu dugg ñooñu ci boppam. Mhm. dañ ci am une grande part de responsabilité. très bien heureusement que muy muy mu yeewu ci à la fin. Mhm. jël ay décisions parce que même la loi d'amnistie là son entourage les gens ont tout fait pour que loi boobu moom wañ ko dugal. non ils ont tout fait même à propos de euh, des remerciements tardifs d'Amadou Ba. mais Macky Sall daf ci jouer un grand rôle. Ah moo tax man sous cet angle là xam naa ne les gens vont s'étonner man sous cet angle remercie Macky Sall. remercie xam tax parce que acte yu mujjee posé ça va dans le sens de la paix et de la réconciliation mais la nuit bi nga xamante ne ci lañ doon joxe résultat yi Amadou Ba devait faire une rencontre avec la presse. pour wax. loolu c' te en vue de contester même résultat yi nga xam ne mu ngi commencé woon génn parce que ñoom ñu ngi mm-hmm. mais le président Macky Sall qui a pris son courage à deux mains en leur disant loolu ngeen bëgg a yëkkati teg leen ko ci suuf loolu moo tax nga gis ñu ne déclaration bi ñu bëggoon def bàyyi nañ ko mais comme que moom xam na leen il allait même prendre la décision de remercier Bassirou Diomaye Faye si Amadou Ba n'allait pas le faire loolu moo tax ba nga gisee le lendemain bi ñuy xëyee ñu commencé ñoom son entourage commencé di ko remercier mais ça c'était pas dans leur plan mm-hmm. et loolu daf may ramener aussi le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade parce que bi nga xamante ne ab le président Abdoulaye Wade gagné na nit ñi di joxe résultat yi ba nit ñi xam ne président Wade gagné na mais l' entourage de Diouf commençait à vouloir jalgati résultat yi Abdou Diouf a pris son courage à deux mains il a coupé l'herbe sous les pieds de ces gens là daal di woote am na d' euh, waa parti socialiste ñu bëri ñoo xam ne dañ ko ci mere woon mm-hmm. en 2012 aussi ça a été la même chose avec le président Wade bi am na ñoo xam ne nii dans l' entourage commencé woon nañ di ko véhiculer ba utiliser certaines télévisions pour ñu wax ne euh, le comment dirais-je n'a pas gagné le résultat donc souvent président yi dañuy toll foo xam ne nii ñoom xam nañu le poids qu'il représente pour l'unité de cette nation et c'est là où je dis mhm. je remercie le président euh, comment dirais-je Macky parce que il a pris son courage à deux mains bi mu enclenché la dynamique de la paix la dynamique de la réconciliation il y a eu beaucoup de il y a sa à am na xam bu leen toppoon fi ñu egsi fii peut être mën nañu fi bañ a egsi parce que les gens l'avaient dit que il ne faut pas libérer les gens là il ne faut pas libérer les Sonko tout tout il ne faut pas cette loi d'amnistie bu mu jàll et cetera et mm-hmm. mais moom conscient de la stabilité de ce pays parce que il n'est jamais trop tard pour bien faire quand même il a pris son courage à deux li mu buggoon doxal doxal na ko et c'est ça qui a permis d'avoir lu ci gën a am solo mooy c'est la stabilité gis nga stabilité bu amul ci dëkk mhm. le premier ennemi du développement c'est l'insécurité insécurité dëkk bu mu am mhm. quelque que soit dëkk ba nu mu naatee dara dara du fa am loolu moo dal Zaïre mhm. euh, comment dirais-je l'actuel Congo démocratique Congo c'est le pays le plus riche de l'Afrique mais c'est le pays le plus pauvre de l'Afrique parce que toujours ils sont dans une instabilité euh, comment dirais-je heureusement que maintenant le peuple sénégalais aussi s'est élevé. Mhm. les gens à un moment ils ont compris que aussi la dynamique euh, comment dirais-je de garsa garsa boobu aussi am na fu mu waroon yem. les gens nit ñi ne teg toog di xaar élection yi parce que nit ñi élection lañ bëggoon fajee li ñu doon fajee lépp. Mhm. bi ñuy wax dañu ñun dañu bëgg a voter dañu bëgg a voter dañu bëgg le jour même on a reporté les élections les gens sont allés dans la rue. pour xeex ba am nañu ci ñun dañu bëgg a dem voter. Mhm. Et là, je crois que le message a été très bien compris. Le Conseil constitutionnel a joué un rôle, en tout cas le rôle qui est le sien, faire de sorte que ces élections-là, cette élection-là, puisse se tenir, même si fait les partisans du report aussi se sont toujours demandés pour dire qu'il faut reporter, il faut reporter. Parce que report bi, lu mu doon aussi musiba la. fii bu ñu fi reporté woon fii ba keroog muy ñuy egg report bi le pays day installer encore dans une instabilité heureusement tout est bien qui finit bien et je crois que là aussi il faut remercier le peuple sénégalais il faut remercier aussi surtout la diaspora diaspora bi mhm. des gens yoo xam ne dañuy sur cinq kilomètres dañuy taxaw pour voter mhm. sous la pluie je crois que ñooñu aussi il faudra les remercier. c'est important alors Kader yow itam ma ma bàyyi la nga jox ñu euh, sa xalaat ci ndaje bi nga xamante ne moom moo amoon entre ñaari njiitu yi. waaw euh, lu ñuy saluer la d'abord lu ñuy rafetlu la lu ñuy euh, loo xam ne seeni nii amuñu ci genn njottu que ni euh, ci bonne intention lañ ko defee mm-hmm. mais ñu nangu ni tamit c'est inédit c'est pour la première fois ñu gis un président nouvellement élu di dem di au palais avant li nga xam ne moom moo di prestation de serment dem fekki le président sortant. parce que lu ci bari dañ daan gis le président sortant dañuy bàyyi ba jour bi nga xam def na prestation de serment am pare na ñu daje toog gannaaw bi mu koy jëbbal lépp ñu ànd gonge ko mu dem kenn ku nekk dem mais vu que ni cette fois-ci contexte yi changé na et que li ñu gis moom mooy y a des frères ñoom ñu retrouver wu. et comme j'ai toujours di que ni Ousmane Sonko bi dugg kaso ak Ousmane Sonko bi génn kaso du nekk benn parce que Macky a pris le temps de créer beneen Ousmane Sonko bu bees. et que si loolu moom moo am. Mhm. parce que Ousmane bi dugg kaso. bi muy dugg kaso am na lu bari loo xam ne si manqué woon na ko xam xamu ko woon ci naka la état di doxee am na xam-xam am na popularité mais en fait dafa sous-estimé woon li nga xam ne seen moom moo di euh, pouvoir bi nga xam ne état am na ko ci citoyens yi. Mhm. donc bi mu duggee kaso nag il s'est rendu compte de tout ça et que à partir de là il savait que ni il ne pouvait compter que sur lui-même donc forcément. lu bari xew na fa et la là seul Macky Sall moom moo ko secourir ci situation bi mu nekkoon et que à un moment aussi le président Macky Sall aussi moom itamit xam na ni. Euh, li ko def alors compter sur lui-même ak Macky moo ko soutenir bu ñu la déggee dafa mel ni que ñi mu àndaloon dañ ko abandonné woon. dañ ko abandonné depuis très longtemps. Ah très très longtemps bien avant même qu'il soit arrêté depuis. sax bi mu fi jógee di dem Casamance ak retour Casamance beeg cag-cag bi ci xew ba ñu teg ko këram lu ci bari dama wax ni les vrais militants de Pastef bokkatuñu woon ci la communication de Ousmane Sonko Ousmane était plus proche de Yewwi que de Pastef mais Dieu a fait les choses dem na ni mu demee ba mu àgg fi nga xam ne ni moom moo di ci kaso bi gis nañ ni nga xam ne ni aussi noonu la ñenn ñi doon prôné li nga xam ne moom moo di seen ay discours de campagne ak le projet ak division bi nga xam ne commencé woon na am entre le camp de Diomaye le camp yu bari xewoon na fii nekk ci kaso c'est pas bénéfique pour un candidat boo xam ne si ne ni da nga bëgg a dem diriger réew mi donc forcément il fa que ñu seet ay voies et pour génn mais li ci mën a am solo rek mooy tey liy am am na génn na mi ngi ci biti mais génn bi li ko sabab ba nga xam ne si ni ma ni ay frères ñoom ñu retrouvé wu mooy li may wax toujours entre Macky ak Sonko y a grand frère et petit frère et loolu moom moo feeñ loolu moom mooy liy dëgg loolu moom la ñu wane. que ñoom ñaar ku le ku jàppoon ni animosité moo nekk seen diggante ku jàppoon ni ñaar ñi ay ennemis jurés lañ dinaa la rey wala nga rey ma loolu mu ngi seen ginnaaw sunu ginnaaw depuis très longtemps waxtaan nañ juboo nañ retrouvé wu nañ kenn ku ci nekk am na lu mu nangu am na lu mu bàyyi te reportu élection bi ak li ci xew yépp réeroo wuñ ba ni nga xam noonu la amee donc bi ñu dajee ci pale bi wane na ko. Mhm. léegi nag bi ñuy dem kan moo dem le président Diomaye. fekki le président Macky Sall bien que prêté gul serment mais quand même est le président boo xam ne moom lañu ñu élire accompagné par Ousmane Sonko. li ñuy wax ni Ousmane dafay gêner du gêner mais je pense que c' est le moment aussi ñu xam que on a élu Diomaye Faye et que Diomaye le président bu demee ànd ak ki nga xam ne seen moo di Ousmane Ousmane war na mën a xam ni am na ay lignes yoo xam ne waru ko dépassé bien que. pour le moment mën nañ tolérer lépp parce que euphorie euh, victoire bi ak ex au pouvoir toujours dina am benn lu muy animé loo xam ne c'est yu bàyyi dañuy bàyyi mu jàll même s'il y a des couacs des manquements ou des lignes yoo xam ne franchir nañ ko toujours dañ naan grawul mais quand même il faut que c'est le moment ñu xam ne aussi de faire quelques réglages ku ci nekk xam fan mooy sa place que le président de la République du xarit du morom mais mais Kader dama la dégg nga ne le camp Ousmane Sonko le camp Diomaye ci ñoo xamante ne ci en tout cas li ñu wan sénégalais ils sont appelés à travailler ensemble. waaw non loolu lañ bëgg loolu lañ bëgg te loolu la xaar mais ci période campagne bi quand même traversé nañ fi ay situation yoo xam ne benn bu ci nekk mënoon na tas li nga xam ne moom moo di parti Pastef bu ci nekk aussi mënoon na def benn fossé boo xam ne si kenn ku ci nekk di nga wu sa morom Dieu que ni a reporté les élections dellu si nañ di amal ndax dina am du am un moment ils ont été libérés et que ñi nga xam ne si dañu commencé woon am ay position ils se sont retrouvés parce que après li nga xam ne moom moo di discours Ousmane Sonko bi mu génnee li mu xamal Sénégalais yi li xew ci waxtaan beeg dialogue beeg yooyu yëpp ñu bari ils ont été surpris parce que kenn bëggatu woon nangu ni ay négociation mi ngi am jógee ci Ousmane Sonko ak Macky Sall le fait qu'il a confirmé ça refroidit ñenn mais après on a dit que ni bon c'est parce que boo xoolee benn moment amoon na benn fissure bu on le dit que ni Ousmane maitrise plus le projet que quiconque ci biir Pastef on l'accepte mais comme maintenant c'est Diomaye qu'on a élu li des moom mooy lan lay doon après lan la moom Ousmane Sonko doon secrétaire général lay doon au niveau du présidence ou bien est-ce que dañ koy fal poste premier ministre mais lu mu ci mën doon il faut quand même ñu xam ne c'est ni le président de la République seul moom moom moo da jël certaines décisions et bu boobaa bu fekkee ne si na nga ko conseillé ci certaines décisions wala ci ay personne et que mu passé outre parce que am na des décisions yoo xam ne moom moo ko mën a jëlal boppam et que loolu mën a indi benn cassure ci seen diggante il faut ñu préparer à ça parce que quoi qu'il en soit quand même sunu avenir moo nekk en jeu on n'a pas deux présidents on n'a qu'un seul président la république donc mënut nekk ñu di ko séparer et je pense que seen amitié du ci yàqu Sénégal duñ ci gaañu et que quoi ñaar dinañ retrouver wu mais que quand ñu mën a def la séparation entre Diomaye. entre non il y a pas il y a il y a pas séparation. ils vont se retrouver ça veut dire c'est se. non non c'est-à-dire man ci mooy xaw a doy waar daal. mais li ma wax ah. li ma xam ah se retrouver. non quand des gens se retrouvent ça veut dire qu'ils sont séparés. bul dagg ils vont se retrouver. non non ils non non non non euh, il fait allusion à deux camps yi muy wax. deux camps yooyu moom ça n'existe que dans sa tête aussi. xam nga moom carrière moom kenn s'en jamais ça que dans sa tête loolu xam man bëgguma coon sax. non non non franchement ça des divisions artificielles que les gens ont essayé de faire mais l'histoire a montré que dès le départ le jour où ils sont sortis déjà semble a montré qu'il n'y a aucun problème entre les deux. La preuve, le lendemain, ils ont fait une conférence de presse conjointe entre les deux. Ils sont allés battre campagne à Ziguinchor. Dès le départ, ils étaient ensemble. Après, qui m'a dit qui Et le jour J, au final, ils sont rencontrés à Mour. Donc, je crois que vraiment, il ne faut pas essayer de créer des divisions artificielles par-ci, par-là. Je crois ce type de y a une situation nouvelle qui est là le fait de vouloir créer des divisions artificielles loolu amul ci biir kooku aussi il faut avoir l'honnêteté de dire c'est vrai peut que am na ñoo xamante ni ñoom ci biir Pastef loolu nekkoon na seen mébét mais quand même vouloir dire que parce que li ci gën a am solo mooy c'est Ousmane Sonko c'est Diomaye mm-hmm. maintenant dans le Pastef peut-être que am na ñoo xam ne loolu mënoon nekk seen mébét mais j'ai dit que li ci gën a am solo mooy les deux entre Sonko et Diomaye il y pas de problème au point de se retourner. mais il plus que problème vous confirmez qu'il y a plus que problème. parce que dans tout ce que vous dites c'est des peut non avec les peut on peut supposer que li la wax ni la. moom moom ngay moom ngay weddi moom nga dégg la rien de. non vous parlez et que vous dites des peut ah, mais les peut-être dit que ni vraiment. au sein du camp. du camp mais je dis les deux pontes. Ah. entre les deux pontes. il n'y a pas de problème. Très bien. Il ne faut pas créer des divisions Alors, artificielles. Kader, je crois qu'il est temps de changer de discours. Non, je ne suis pas dans Chacun de nous est libre de choisir quand bi mu farak ni mu bëgg analyser mais parce que quand vous me faites changer mon discours c'est parce que am na loo ci gis. man je suis comme ça. wutaluma farumaak ma sàmba farumaak ma dem. non du question faral. grand wutuma ci ku ma ciy faral wutuma ku ma ciy neexal. je suis là et lu ñëw fekk ma fi lu dem bàyyi ma fi te ba léegi nii histoire ma doon raison donc j'ai pas besoin de changer de discours aw ma kan je suis libre ngeen may ma ma jàll vers Omar Faye moom itam oh. mu jox ñu impression om par rapport à tout ce qui s'est passé média yëpp au niveau national comme au niveau international xam nga la ñuy wax c'est historique c'est inédit c'était inimaginable et c'est ça le Sénégal Sénégal boo ma ci ni nit ñi dañuy am esprit de dépassement on peut se battre c'est normal que les gens se battent mais am na moom ni bu ñu fa tolloo boobaa foofu nag beneen dimension la li neex ci image bii mooy malgré xeex yi malgré le problème yëpp tu as vu ils se sont loolu lu jaaxal àdduna bi la te li jaaxal àdduna bi fii la war a xewee ci Sénégal lu rafet la d'autant plus que ñoom ñaar ñëpp du ñu mag waaye ki ñu fal tout tànk la ñu am image bi ñuy jox xale bi xale parce que ku ci ne tey doon nga xalaat ne booy bu ñëwee dañuy fayantoo est-ce que ils sont ceci ils sont cela donc il a jour aujourd'hui un comportement d'un sage et c'est xelu sénégalais yi Diomaye def na ko ku waxal yàlla rek xam ne li mu def nii rafet na te sénégalais yëpp ko rafet lu rafet nag dañ koy protéger jéem a xool nan lañ koy considérer pare yëkkati ko nag te xam ne ku ne boo ñëwee ñii dañuy ñëw tey bu subaa ñeneen ñëw ku ci ne dina ci roy ku ci ne am nga ci grandeur cette réconciliation bi président wax sëriñ wax na ko léegi mais déjà avant quoi que ce soit commencé na ko et fi ñu ko waroon commencé am na mooy entre et le président sortant et le nouveau président Macky ne man kat am na fu ma jaar ak yéen metti na. ñeneen ne ñun kat souffrir nañ ak yow waaye yëpp yëpp am nañ esprit de tey taxaw wan Sénégalais yi beneen image. loolu rafet la waay rafet la te loolu c'est la démocratie kii gagne c'est le Sénégal kii gagne à tous les niveaux tey fu nit nekk doon homme d'affaires wala bëgg investir da nga ne man mën naa yaakaar ci Sénégal ndax li ma fa gis lu rëy la. ko ñu ñëpp sénégalais nañ ko war a def te ba pare il y une générosité man du wax Diomaye ak Sonko ay problème problème je ne di pas Pape Abdou nee tey la conseil constitutionnel wax ne définitivement Diomaye et le président de la république maintenant c'est officiel c'est fini mais ñoom ñaar ku ne rôle bi nga joué ba ñu toll fi ñu nekk tey bu ñu demee rencontrer Macky Sall xel nangu na ko toog waxtaan parce que tey même jomaay kese dem fi Macky Sall du doy sénégal yi il faut ñu gis ñoom ñett ñu taxaw ñu ne ah cette réconciliation nationale ça existe vraiment ndax tey à travers l' élection de Diomaye Sonko ànd nañ ñëw nañu ànd ñoom ñëpp kottante waxtaan mu rafet lii lañ bëggoon maintenant am na situation bu amoon dañuy ñaan yàlla à travers Diomaye président ñu bañ ko dunduti mooy les péripéties bi sëriñ wax ndax ku ne rek am na foo jaar de Senghor à Abdou Diouf Ablaye Wade ba ba ba ba Macky Sall dund nañ ay situation d'insécurité wala d'instabilité yoo xamante tey mënoon na jural réew mi dara waaye dañuy ñaan nag à travers ñii li ñu ñàkkoon ñun ñoom ñu compléter ñu ko ba toutes ces situations dootuñu ko dund ci réew mi c'est là où on attend Diomaye jàkk mu ci marché yi mu ci ñaxtu yi mu ci lépp ba pare maytu nag li sëriñ wax sa très important entourage surtout entourage parce que président bu amul esprit de dépassement rek mënoo jiiti nga am tolluwaay rek mënoo jiiti te mën nga ànd ak ñu xamante ne dañ lay pousser sur le créneau ba xamante ne bu subaa lu mu lay jural kenn du xamul nu mu toll war naa ko fii nee naa leen les premier jours de Macky Sall yàqal na ko lu bëri à travers son image et à travers le Sénégal. mooy cër bi nga xamante ni ne ñu ko Ablaye Wade delloowee ñëw ak accueillir ko jox ko cëram yëpp gunge ko ñaanal ko bàyyi ko mu dem fay ko loolu. dès le début il a essayé de se rattraper. trop tard parce que Sénégal moo bëgg rafet. moo te ñii commencé nañ ko def déjà dañu dalal xelu Macky Sall. Mhm. ñëw nañ ci moom waxtaan ak moom defar ko ba mu rafet. ñu war a dem fële centre centre bu Abdou Diouf bi daje fa ay chef d'état ñëw le monde entier gis ñu mu am image yoo ma ci dañ koy wane loolu nit ñi rafetlu la te loolu si ak consolider ñu rafetlu ko dem maintenant il faut saluer wax naa ko keroog lundi la générosité de Sonko il faut saluer ça nee na Karim pouvait choisir quelqu'un d'autre il ne l'a pas fait d'autres qui sont de partie dañuy war a dem élection demuñu ñu ne kon kenn du dem mais mais au moins lui il a eu bi nga xamante ni demul mun a jamaay demal loolu aussi na si ñuy jàngat bu ñu àndee il n'est pas dit que c'est pas moi war a dem mënuma dem jox naa nit mu dem donc loolu dama bëgg ñi nga xamante ni ñooy doon ay ñooy yor parti doon président wala créer seen parti ñu jàngat si lii tey demul nekkul président jamaay mooy nekk président ñu ngi ànd di dem maintenant yii nag mooy commencé indi problème problème gu fi am lii mënuguñu fi am benn appréciation bu ñu def lu dul mu am passation de service Diomaye toog fu mu toog mu commencé poser acte et à travers les actes les Sénégalais vont interpréter et vont analyser c'est là où on attend maintenant Sénégal dina am ñu far fii am ñu far fële am ñu neutre mais lépp lu ñuy ut nag mooy comme ni ma ko waxee je serai le président de la République d'ailleurs li mu njëkk a def mooy bàyyi na ndombu tànkam yépp yi nga xamante nii ne nekkoon na ko ci ci ci ci ci ci Pastef ça c'est un acte fort ça veut dire que lui aujourd'hui dafay nekk ci powu président de la République du Sénégal et très franchement c'est c'est la là que les que les que les dégg les mhm. li am yépp nit ñi rafetlu nañ ko mhm. nañ ko rafetlu ba gis le contraire mhm. mais lii moom image bu rafet la adduna bi yëpp ñu ngi ko rafetlu te xamuñu woon ne Sénégal egg na à ce niveau de démocratie et egg na à ce vraiment de dépassement des esprits. vraiment loolu rafetlu nañ ko te ñu leen di ñaanal yàlla nag fi ñu jëm. yàlla na leen yàlla jàppale loolu daal la ñu am ci yéene bu rafet. très bien Mohamed. oui euh, Khady euh, li ñu nekk di dund wala lu ñu gis au niveau du palais de la République man dama jàpp ne du dara lu dul euh, début d'une transition politique significative parce que lépp loo gis wala li ñu dund ñun en terme d'élection présidentielle en 2024 processus la ginnaaw élection bi ba ñu ko tëggee. Euh, le peuple sénégalais tànn un président de la République en l'occurrence euh, Bassirou Diomaye Diakhar euh, Faye amul wala dégguñu lu jëm ci ay contestation des candidats ont félicité le président élu euh, ba tey ni ko Fat Abdou waxee conseil constitutionnel joxe euh, lu jëm ci euh, résultat yu mujj yi confirmer justement victoire u Bassirou Diomaye kon ñu ngi jëm ci transition benn président jeexal fégal di dem keneen di ñëw ci ak processus bu nga xamante ne nii Euh, bu aw yoon la leneen lu ñu ci mën a jàngat aussi bokk na ci lu ñu gis parce que ñun itam euh, en terme de communication dañuy liir lu bari image yi lu mu wane courtoisie la euh, ñu ngi koy rappeler léegi sourire main sur l'épaule te loolu mën na ko jàng en terme de communication loolu yëpp dafay am lu lecture buñ ci war a mën a def jàngat booy xool image yooyu dafay wax te loolu lu lu am solo la maintenant ñaari euh, euh, président yi kenn ki sortant kenn ki ñu fal wax nañ ko fi léegi def nañu tête à tête waxtaan nañu dossier yi nga xamante ni nii et c'est dans l'ordre normal des choses parce que réew bu nekk am na président bu yees bu ñëwee dossiers yi nga xamante ne nii peut-être urgence la yu ñu war a mën a tenir en compte wala dossiers yi nga xamante ni daf ko war a teel a teel a jël euh, en charge loolu tête à boobu euh, dafa dafa dafa am solo mais euh, toujours est-il que il faut rappeler que à travers cette rencontre bi ñu gis au palais de la République day wane na également la fa génn ñëpp wax nañ ko muy le président de la République qui accepte d'organiser la passation justement euh, te loolu dafay conformé wu sëñ Saliou ak la tradition rek <laughs> on l'a di mais ci ñu lu nu fekkee <laughs> Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade Macky Sall aujourd'hui tey Macky Sall ak Diomaye c'est une tradition mënuñu woon xaar leneen sénégalais yi xaaruñu woon leneen lu dul lii te loolu encore une fois dafay dafay gën a dal xel yi en tout cas lépp solo mooy docteur wax na ko sànq xat yi euh, wan nañu àdduna bi yëpp que nous sommes une référence en démocratie et que ce peuple sénégalais mature bi nga xamante ne nii dem na voté ji te amul jafe-jafe demaat toog këram xaar résultat accepté ko moi je pense que ne sénégalais yi la ñu war a féliciter encore une fois et je ne cesse de le dire sénégalais yi ñoo wan yoon bi parce que du may dañ di ko wax politiciens yi boo leen tëjoon ci nekk feesuñu ko mhm. aujourd'hui jàpp naa ni sénégalais yi ñoom ñooy dimbali sax le plus souvent les politiques ci su yenn situation yi te je pense que ni loolu sénégalais yi wane dafa gën a taaralaat démocratie euh, sénégalaise dafa gën a yëkkatiwaat tey adduna bi yëpp Sénégal la ñuy waxtaane mm-hmm. te loolu aussi yaakaar naa ni Euh, euh, sant la sant goo xam ne euh, amul am amul àpp parce que réew mi aussi loolu la ñu xamee Sénégal mun nañu nag affaire bi mun nañu dem ba weng mais du ñu daanu dañuy jubbantiwaat rek ñëwaat te loolu et je pense que ne lu lu lu am am solo la bu dee compétition la ñu nekk dañ koy wane ku ci nekk da ngay défendre sa camp da ngay da dem jusqu'au bu mais bu résultat jotee wala ñu plébiscité kenn da ngay gis ñëpp rangé wu te loolu loolu mooy loolu mooy aussi euh, démocratie ak surtout loolu mooy taaral suñu démocratie beneen affaire bi mooy ci mbirum Sonko il faut que les gens aussi xar yi à un moment donné ñu arrêté di dem di chercher une histoire bu nga xam te ni qui n'existe même pas aujourd'hui oui ban dualité mais léegi yéen léegi léegi sénégalais lan lañ wala boog ñenn ñi lan lañ bëgg Ousmane Sonko euh, dem toog këram bàyyi jomaay euh, même bu dee jomaay la ñu fal bàyyi ko nii rek euh, te man xam naa am na aptitude nekk président la parce que sénégalais yi ñoo ko fal et puis dina am état derrière lui mais que Ousmane ko toog këram rek jàpp ñaam euh, jàpp ñaam borom nii loolu mënul nekk parce que dañu jaay sénégalais yi projet projet bi nag du jomaay kese du Ousmane ko kese c'est tout un ensemble ay nit yu ko togg la proposer ko sénégalais yi ñu jënd ko aujourd'hui nag dëgg yàlla Euh, gis un Ousmane Sonko derrière Diomaye amul lenn lu ci luñ ci war a commenter wala luñ ci mën a wax c'est normal maintenant il faut que rek ñu ñu dissocier ce qui se passe mooy un président de la République a été élu muy Diomaye kenn la moom la ñu fal moom la Sénégalais yi fal sànnil seen xob muy Jom Bassirou jommaay Diakhar fay et le président de la République du Sénégal même su fekkee Ousmane Sonko joué na ci rôle bu ama am solo et il n'est pas le seul encore une fois il faut le rappeler c'est toute une équipe c'est c'est tout un euh, voilà y a des y am na ay mbir yu nekk ci ginnaaw ki ki yu def que Diomaye egsi fu mu egsi tey mm-hmm. mais gisuma dualité boobu et je pense que ne ni ko sëñ Saliou waxee Ousmane Sonko moo la gën a xam loolu et je pense que ne ak mbir mi nu mu yëkkatikoo nii dina gën a ak un peu recul dina gën a euh, bàyyiwaat xel loolu c'est important ñu xam ne Bassirou Diomaye la ñu fal et que moom aussi on aimerait bien le voir à côté de lui parce que c'est Pastef c'est c'est c'est la coalition Diomaye ñoo ko ñoo ko porté tey fi mu yegg si fii mais euh, jàpp ne Ousmane Sonko dafa war a effacé wu wala warul warul euh, mënu ko yàqal ci dara Bassirou Diomaye Faye est le président de la République maintenant nag il faut accepter qu'Ousmane Sonko nekk ci wetam nekk ci wetam ne cela veut pas moom mooy jël décision à sa place non on a élu président de la République quand même Ousmane Sonko muy Ousmane Sonko muy Guy Marius Sagna muy pour ma sax lu tax ñu mën a jël Ousmane Sonko Ousmane Sonko Bassirou dualité dualité non non affaire bi gën na yaatu loolu sax donc je pense que ni Sénégalais yi nañu gën a focus ci euh, le président binu nu fal Euh, wax rappeler ko les urgences de l'heure et puis ñoom aussi ñi porter sa candidature ba mu gagné tey ñu xam ne sénégalais yi moom la ñu fal et que gunge ko mu liggéey je pense que loolu mooy mooy ëpp solo que ñuy ñu ñu ñuy débattre sur des des choses yi nga xam te moi je pense que ne maanaam yàq sa wax la wala tardel wala soulever débat bu nga xam te existé wul et que les Sénégalais vont continuer à à en parler wala di ci wax te amul te on a des urgences qui nous attendent am na yeneen yu nga xamante ni te moo gën a am solo ci euh, ay futilité yi nii euh, dualité qui n'existe pas et que ci loolu la ñu war a dem mooy urgence voilà. mais mais mais ak ñi nga xam ne si ne ni ñoom ñoo di les partis politiques yi adhéré ci ñoom ñoom ñooy plébiscité ki nga xam ne si moom moo di Ousmane Sonko tout le temps ci seen page Facebook yi réseaux sociaux yi rajo yi télé yi donc à un moment il oublie même que c'est Diomaye qui a été élu mais suñu bëggee taxaw. mais Kader analyse boobu yow yaa ko def. non non pas man. non non non cette analyse là bu ñu plébiscité seen leader. bu ñu plébiscité seen leader. oui mais non Kader Kader yow yaa wax loolu yow noonu. Mouhamed c'est vrai qu'il y a des gens oui, oui, non, mais non. qui, qui s'adressent je lui concède ça. non non je lui concède ça mais ça n'a rien à voir ak li ñuy jàpp ne que Ousmane la ñu bëgg a def euh, euh, président wala wala wala créer une benn dualité moom ak moom ak Diomaye Faye loolu période de campagne. Ah. période boobu passé nañ ko. maintenant fi ñu toll ci ay institutions lañ toll mais pas ci la man loolu dépassé naa ko mais juste que c'est un constat bu ñu gis ci réseaux sociaux yi ci place publique ci débat et tout et ñi koy def moom mooy les vrais membres yi nga xam dañoo bokk ci biir Pastef. très bien Kader alors dañuy amal une très très euh, courte pause dellu si waat léegi incha allah continuer débat bi. seen émission Grand des émissions Ramadan au Sénégal fii ci Sen TV la chaîne leader ànd ko kalpe bi gën a yomb gën a wóor moo leen kooru jàmm Orange est un service de Orange Finance Mobile Sénégal Orange Money. Nescafé ndogu bu sell ànd ak cawarté bridel meewu nag pire bi ngeen taamu bi gën a neex la banque panafricaine ak Yassir application bi lay yombalal say déplacement sa lekk ak say courses ci njëg bu yomb Sénégindia numéro ci wàllum immobilier fépp ci Sénégal indil leen yaatu ci villa appartement au standing Cheikh Lamine ca E résidence Évoque ca Bourguiba ak ay parcelles Diablisi Millennium City ca Njaaxirat ak Tulip City ca Bambila Canal Plus dundu leen korgu sell ak chaîne yi gën Precia Beko bi leen indil gamme électroménager bu yaatu Matidi pionnier du luxe africain depuis dix ans ak Sedima bi leen indil poulet terral cent pour cent local cent pour cent sénégalais cent pour cent halal Lama boutique indil leen basin Fusuneger cent pour cent coton basin bu am brillance bu amul fenn motif pour góor ak jigéen bijouterie la solution wa jigéen boo koy bégal la seetil or bijouterie la solution yu bees yi mu indi amul fen fenn Sen TV ak i partenaire am ñoo leen di wax ramadan mubarak si diiru weeru Orange Money def leen di sagal bés bu ne avec Orange Money faites vos transactions et bénéficiez d'un des 100 soukaru koor d'une valeur de 10 000 francs CFA offert chaque jour pour en savoir plus rendez-vous sur nos réseaux sociaux kooruk jàmm Orange Money fii la jot le plus sûr le plus rapide et le moins cher pour recevoir de l'argent de l'international gën a noppale Orange mu bés bu jot wërsëg yu bees la ngir doxal say mbir. teg beneen jéego di gën jege sa ay mbëbët kon boog dem ci ba jeex kaas ci kaw kaas bés bu ne tàmbalee ak cawarte jeexalee. ak yokkute Nescafé ci weeru sel am na solo ñuy taxaw suñuy mbokk xarit ak am di jàmm wala faj suñu soxla moo tax ak service de transfert express cash bu Ecobank mobile mën nga yónnee xaalis wala def retrait ci gàpp wala point express pi lu gën a jege te lépp ci 1 pour cent de frais dong la biir Sénégal ak zone UEMOA yow tamit téléchargel Ecobank mobile ci App Store wala Play Store ubbil compte express wala nga dédié ko ak sa compte Ecobank rek daal di commencer générer sa code wala def sa retrait ci point express wala gab Ecobank te lii yëpp mën nga ko am ci jazz 22 22 jazz Ecobank moo ngi leen di ñaanal paquet canal plus yii dund leen koor gu sell ak chaîne yi gën bu dara rëcc ci chaîne religieuse yu mel ni Touba TV Al Mouridiya Mourchid TV Asfiyahi Lamp Fall ak Malikia TV chaîne sénégalaise religieuse yi dañoo xew ci biir weeru koor ci dolli ñu ngi ci bouquet canal plus yi dem leen léegi gaaw abonné wu wala réabonné wu ji ngir dund mbégte seetaan programme yi gën a neex si télé daal canal plus rek moo ma si doy di déplacé wu ak application Yassir da ngay toog fi nga toog commandé lépp li la yitteel si sa supermarché ñu livré la ko ci lu gaaw rax si dolli ñu baaxee leen ay produit yu am solo lool ci njëg yu gën a neexati Yassir dina la livré si diiru ay simili yu néew bés bu jot diggante huit si suba ba minuit looy xaarati téléchargeel gaaw application Yassir kooru ren ji ay xéwal rekk la ak Yassir ci diiru weeru koor gi yëpp livraison bi doo leen ci fay dara Yassir la vie en plus facile subatel am ñu ko taamu waxtu tàggat yaram ak ñu koy bokk ak seeni njaboot jàkkam tax na ñun ñépp ñu taamu meew Bridel bàyyi ci meew nag tiir bu raxul dara meew bi sénégalais yi taamu Bridel meew bi gën neexal seen dund Bridel moo leen di ñaanal kooru jàmm defaral leen seen njaboot xëdd bu neex ak ndogu bu jéggi dayo bu ànd ak bànneex mu ngoog chers téléspectateurs on est de retour ci euh, euh, beneen parti seen émission euh, le grand plateau ñu dellu si si suñu invité yi wéyal waxtaan bi alors docteur il y a énormément énormément de défis ak enjeux yoo xamante ni ñu ngi xaar le président Bassirou Diomaye Faye tey ñu ngi ñii ñu ngi tudd rupture ñii ñu ngi bëgg ñi nga xamante ne peut-être lu luubal nañu alalu askan wi ñu topp leen ñeneen li ñu bëgg mooy mu mu gaawantu ci question de l'heure yi nga xamante ne ci ñu koy xaar tey état de grâce bi ñu ko may est-ce qu'il a le temps sax ci mu xaar ko. alors bon man au-delà de ma casquette médical je suis administrateur public donc euh, xam bu baax état nu muy euh, nu muy doxee euh, un état comme on dit du caaxaan. dafa am méthodologie euh, am méthodologie donc du loo xam ne dañ koy sorxo sorxo wala di ko di ko yàkkamti en termes d'orientation naturellement euh, sous régime changé les gens ne se rendent pas compte mais la continuité de l'État c'est une réalité c'est ce que je disais à beaucoup de gens une continuité elle est obligatoire mm-hmm. c'est ce qu'on appelle la, la, la loi de la continuité de l'État uh mm-hmm. -huh. alors maintenant dans cette continuité de l'État il y a une, vision qui peut, qui peut changer. Ça, c'est une vision, c'est des orientations. Mais il y naturellement état bu taxawee dafa am ay engagements yoo xam ne état da koy jël en permanence. Mhm. il y des engagements qui se prennent prennent prennent sur 30 ans. il y a des engagements aujourd'hui yoo xam ne euh, dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mhm. yoo xam ne président Macky Sall ko mettre en œuvre mais c'est des engagements du de la période du président Abdou Diouf. yoo xam ne moom la mise en œuvre fin mise en œuvre ci moom la ci moom la jaar mhm. les engagements du président Abdoulaye Wade yoo xam ne la mise en œuvre c'est le c'est le président euh, Macky Sall moo xam ne moom moo ko def mhm. euh, mais également aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye c'est la même chose donc il y a des engagements yoo xam ne précédents du président Macky Sall du président Abdoulaye en termes de mise en œuvre ça le, le chef de l'État qui est une institution et je reviens un sur des aspects yoo xam ne wax nañ ko fii euh, yu yu am solo un chef d'État c'est c'est c'est un chef d'État c'est c'est différent parti c'est différent euh, de telle ou telle chose mais c'est en termes d'institution j'ai j'ai quelques quelques anecdotes yu intéressantes euh, quand le 4 euh, je pense que c'est le 4 mars 1986 quand le président Mitterrand Euh, bi mu faloo mu nommé Robert Badinter qui était le président du conseil constitutionnel Robert Badinter lui a dit monsieur le président euh, sama euh, vous êtes vous êtes mon ami je vous remercie en tant qu'ami mais permettez-moi précisément de vous dire que je vais appliquer euh, le devoir d'ingratitude que la fonction euh, m'oblige de quoi il s'agit en, en, en en fait c'est-à-dire fonction bi lu mu la laaj yow na nga ko war a def sans émotion donc un chef d'État am na loo xam ne da koy def sans émotion et ça il y a pas d'inquiétude parce que état noonu lay doxee état c'est c'est c'est c'est un monstre froid c'est comme ça c'est c'est c'est c'est le fonctionnement normal mm-hmm. un autre élément également assez assez intéressant que j'ai vu c'était toujours euh, le président Mitterrand qui était avec euh, ki nga xam ne moom moo nekkoon son penseur numéro un qui s'appelait qui s'appelle Jacques Attali alors dañ ko élire bi ko élire moom moo doon moom moo yore woon lépp ñu dem ba muy waaja a prêter serment muy prêter serment mu nekk ko euh, monsieur le président euh, non daf ne ko François ne ko François dans quelques minutes Euh, je ne pourrai plus te tutoyer parce que tu seras à ce moment en termes d'institution le chef de l'État après mu laaj ko dara mu ne ko dama lay ñaan benn dernière faveur mu ne ko lan la mu ne jox ma rek faveur bi mu ne ko jox naa la faveur bi mhm. après kooku daf ko saaga pour montrer en fait en termes pédagogiques que boobu c'était François mais instant bi mu prêter serment ce n'est plus François mais c'est le président des euh, de de de de, de c'était le président boobu noonu de tous les Français mais loolu euh, fonction bi moo la koy jox mënoo si dara maintenant il faut savoir bu nit ñi yàkkamti aussi parce que à un moment donné il y aura naturellement au-delà de la fonction du chef de l'État ku ci nekk di nga am say fonction. Uh-huh. donc gouvernement am na euh, des contre-pouvoirs tels que le, l'Assemblée nationale et cetera ku ci nekk c'est en fonction de fonction bi ñu lay jox foofu ngay am ay euh, ay applications mais Sénégal on rentre souvent dans des détails qui qui n'auront pas de valeur dans quelques jours. Mm-hmm. bu ñu yàkkamti euh, les choses vont se faire comme il faut et euh, les défis donc sont sont sont sont énormes je pense que le premier défi mooy la réconciliation nationale de mon point de vue premier défi c'est la réconciliation réconciliation nationale parce que balaa ngay mettre en œuvre des politiques publiques foog nga boole ñëpp soo boolee ñëpp nga ne ah damay liggéey pour ñii ñëpp mais foog ma liggéey dans des conditions yoo xam ne ñëpp dinañ dinañ euh, dinañ booloo quel que soit maintenant euh, les catégories socioprofessionnelles les acteurs politiques les syndicats tout le monde sénégalais d'une manière générale et je pense que loolu c'est important pour un pays comme gis président sortant ak entrant li ñu def je pense que c'est un exemple boo xam ne doomu Sénégal war nañ ko xool mhm. xool ne ci exemple boobu war nañ ci mën a war nañ ci mën a mën a roy d'autres défis également c'est des défis euh, majeurs mhm. euh, naturellement dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques nga ko xamee euh, dans un pays euh, pétrolier et gazier il est important de savoir que euh, le système de management public va être différent parce que les ressources dinañ changer par rapport à légalement à la, à la situation. Parce qu'Abo le sait, euh, ce qu'on ce qu'on va retrouver dans deux ans, ce qu'on va retrouver dans trois ans, ce qu'on va retrouver même cette année mm -hmm. en termes de recettes recettes yi dafay dafay changer en fonction également de li nga xam ne moom mooy euh, yegg si comme euh, comme ressource euh, naturelle maintenant Euh, il y a il une jeunesse importante au Sénégal une boo xam ne tey les moins de trente cinq ans c'est pour cent c'est beaucoup il y a euh, bëgg na ay résultats tout de le cadre des de de ce sur des aspects que j'ai lus, en tout cas, je ne suis pas dans la, la, les, les, les, politiques publiques, des aspects que j'ai lus et qui, de mon point de vue, peuvent constituer quand même euh, des, des, réformes majeures telles que tout ce qui est euh, direction générale, direction dans le cadre de l'État, que ça soit fait de manière apolitique. Et ça, c'est important, parce mmh. que euh, dans un pays comme le nôtre, Moi, je pense que nous avons des, euh, des ressources humaines euh, très très compétentes qui sont à l'international, qui sont dans le pays, qui n'ont absolument rien à voir avec le, le milieu politique et qui aujourd'hui ont la capacité euh, suñ leen dénkee dara ñu mën ci liggéey te suñ ci liggéeyee li ci ñi ci euh, ñi ci bénéficier wu mhm. c'est les Sénégalaises et les Sénégalais. Autre aspect aussi je pense qui que c'est un aspect important le fait que le président de la République sorte carrément des, des instances euh, de son parti. C'est une, une, chose, bon, en termes d'observation, hein, on a entendu parler de ça, mais sous, si la mise en œuvre est continuée comme ça, mm -hmm. peut-être que les chapelles purement politiques, d'où n'est euh, en tout cas une priorité, sur mettre en œuvre euh, dara. Donc l'eau également, c'est des aspects que les Sénégalais, les Sénégalais attendent. Ils attendent également euh, le chef de l'État sur, euh, sur le coût de la vie. Mm -hmm. sur l'emploi, sur les, la santé, la santé, l'éducation, sur l'industrialisation, également. Euh, et tout ça, aujourd'hui, doit être fait dans un cadre où euh, il y a quelque chose d'extrêmement important qui a été fait euh, pendant tout le cycle de 1960 à aujourd'hui. Oh. Président Senghor, Amna Moumoudef, Amsolo. Président Abdou Diouf, Euh, yokk na def na également lu am solo. Mhm. président Abdoulaye Wade donc euh, mon grand-père est secrétaire général de ABO. il a fait également énormément de choses. Mhm. Euh, le président Macky Sall a fait énormément de choses et nous souhaitons que également dans ce cadre-là mu. fexe ba également euh, am des résultats probants et euh, pour le bonheur des Sénégalais. c'est important alors honorable ba tey ci ci défi yi tey euh, le président Bassirou Diomaye Faye buy jàng ci ci le président Macky Sall lan la war a éviter ci en tout cas ndorteel bi loo xamante ne am na yu yu président Macky def yu mu warul woon. waaw merci beaucoup Hadi xam nga Dieu a fait que le PDS le Parti démocratique sénégalais a soutenu. Bassirou Diomaye Faye. Uh-huh. parce que ñun on avait un candidat notre candidat c'était Karim Meïssa Wade ñu yaakaaroon que ni moo gën ci réew mi moo ni am maire profile uh-huh. mais yàlla def loolu sottiwul parce que dañoo jàpp que ni suñu candidat dañu ko génnee ci élection yi ci loo xam ni jaarul yoon ñu jàpp que ni am na ay mbir yoo xam ni xew na biir conseil constitutionnel le PDS jël lépp loo xam ni loi ak règlement. may na ko ko pour xeex li nga xam ne teg nañ ko suñu candidat ñu xeex andi commission d'enquête parlementaire parce que combat yi ci bëri assemblée doon andi aussi li ne moo jëm ci loi bi nga xam ne moo andi report élection yi bi nga xam ne conseil constitutionnel daf ci uh-huh. na yoo xam ne posé nañ am ci biir réew mi am a vu tey malgré report na Sénégalais yoo xam ne neexul leen woon am na ci des choses positives, amener des choses négatives, mais ça a permis cette réconciliation nationale-là dont on parle aujourd'hui. Mhm. Parce que ça a permis à des prisonniers politiques nous gagner, ça a permis à Ousmane Sonko nous gagner, ça a permis à Bassirou Diomaye Faye nous gagner dem battre di campagne ànd ak ki nga xam ne moo nekk son Sonko peut-être que suñu borom ah, euh, noonu la ko bëggee woon que il fallait que ñu jaar foofu noonu pour li parce que bu amuloon report loolu mënul am parce que tout s'est le report xëy na yàlla moo jaarale woon ni fii laay jaarale ba siiru Diomaye fay ngir mu jël réew mi te loolu kenn mënu ci dara parce que ce sont des faits yoo xam ne mi ngi taxaw et que bi loolu amee ñu xam ne ñun xeex nañ def nañ lu ñu war a def mais en tant que des légalistes en tant que un parti boo xam ne lépp lu muy def ci yoon loo koy teg quand la Cour suprême a sorti sa décision et que le ñu wax que ni le président Macky Sall jàpp date le 24 ñu yóbbu ko Cour suprême pour violation code électoral bi ñu dem cour suprême dàq ñu nga xam ne ñun loolu lañ bëgg président Macky Sall jàpp date le 24. Mhm. Euh, ne si la ñuy dem élection ñu ñu ne comme que si la ñuy dem élection kat li ñu waroon def lépp li xam ne moom lañu waroon def ñun pour suñu candidat def nañ ko. ci loolu si la am y' a beaucoup de candidats yoo xam ni dañoo solliciter le soutien du parti démocratique sénégalais parti démocratique sénégalais nag du parti bu ndaw parti bu mag la et comme disait le président Abdoulaye Faye xalum ndéef la. mën naa gëm nga yaakaar ne amul ay xal waaye boo dugalee sa loxo xam ne am na ay xal et que ci loolu mu am candidat yu bëri yu sollicité le soutien du Parti démocratique sénégalais. Et que c'est l'occasion aussi de féliciter et de remercier les militants du Parti démocratique sénégalais, mais aussi le candidat Karim. Parce que Karim Maïsawad, il a été le candidat mais il n'est pas le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais et j'ai vu quand Karim a dit ni léegi maintenant li ñu waroon xeex yëpp xeex nañ ko dañuy jël mbir yi delloo ko président Abdoulaye Wade certains disaient que non non pourquoi Karim def loolu alors que en tant que militant discipliné loolu la waroon a mën a def parce que Abdoulaye Wade seul moo mën a engagé le parti démocratique sénégalais président Abdoulaye Wade le secrétaire général national bëri na lu ñu ciy wax ci biir waaw waaw loo yëg yow absolument c'est te xam nga euh, Karim moo nekk Qatar euh, dem imposer le président de la République Abdoulaye Wade à ce qu'il reçoive euh, Bassirou Diomaye Faye alors que mag la situation am la <laughs> même xam nga xam nga tey loolu yëpp ñuy yàq moo ñu ñuy yàq ak ñu buggul woon le soutien du PDS à Bassirou Diomaye fay ñoo koy wax et que Abdou Karim Wade bu ko ci woo xam nga lan la lay wax man waxu du joxuma la ni dama lay jàppale je vais en parler avec le secrétaire général national du parti Abdoulaye Wade par li nit ñi di fàtte Karim il est le secrétaire général adjoint chargé des stratégies ak orientation au parti démocratique sénégalais ay à chaque fois que candidat woo ko wala à chaque fois ñu ngi xool nan lañ war a demee ci élection yi Karim day def ay conférence call ak ñi nga xam ne ñoo nekk ñu koy jàppale ci lu bari mu ñu yor wàllum structure ñu yor wàllum communication ñu yor wàllum élection alu groupe parlementaire wax leen ne leen situation bi fii la toll ak lii la ak lii ak lii la kii wax bu paree mu defar rapport le président secrétaire général national maître Abdoulaye Wade et que ci base boobu benn objectif lañ amoon mooy mhm. pouvoir bi bu mu ci loxo ki nga xam ne moo nekk Amadou Ba parce que jàpp nañ lépp loo xam ne tey dal nañu ñun ci suñu candidature c'est Amadou Ba qui est derrière tout cela mu ne benn objectif laa am di wax ñii wax ne que euh, Karim waxtaan na ak Amadou Ba mais condition yi mu tegoon Amadou Ba moom la ko nangulul moo tax finalement mu tourné vers Diomaye xam nga xam nga fa kii dinaa ñëwaat ci loolu yaa a beaucoup d'intoxication et de fausses informations mooy que ni bi nga xamee ni Karim Wade waxtaan na Bassirou Diomaye Faye bi mu génnee kaso moom moo dem seeti ji nootu président de groupe parlementaire Modou Lamine Thiam ne ko dama bëgg yéen waa PDS ngeen jàppale ma bi loolu jàllee mu jël téléphone waxtaan ak Karim Wade pendant des des heures ñoom ñaar ñu waxtaan Karim Wade waxtaan ak ki nga xam ne moo nekk Khalifa Ababacar sàll mm-hmm. mais ci loolu bi ñu demee ba war a jël décision le Karim et le secrétaire général maître ñu déglu la base. Mm-hmm. parce que base bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a. wax orientation yi bu ko defee le secrétaire général mun ñoo engagé et li ëppoon ci base bi am na ay tur yu jógoon yu ci bëri dañ ne Bassirou Diomaye Faye parce que pourquoi ñu wax loolu parce que jàpp nañu PDS am na ci ñeneen ñoo xam ne et Karim du liggéey ak ñoo xam ni ay dañuy yëngatu ci wàllum li nga xam ne moo nekk ay ay sondage et que am na ci ñoo xam ne du liggéeyandoo nag ñoom pendant lu yàgg et bi ñu demee ba ñu war a dem ci élection yi à chaque fois Amadou Ba ak Bassirou Diomaye Faye dañ doon nekk ñoom ñaar dañ doon xaw a témbo mais lu ñu gën a dem Amadou Ba di gën a ñu ne léegi bu ñu jàppalee yeneen candidats yi malgré l'apport du PDS du def effet ci li nga xam ne moo nekk vote bi et que tey bu ñu jàppalee Bassirou Diomaye Faye dina permettre Amadou Ba nu mën def fraude électorale mais dina permettre aussi ñu mën a gagner ki nga xam ne moo nekk Bassirou ki nga xam ne moo nekk Amadou Ba parce que jàpp nañ ni opposition moo war a jël pouvoir bi et ki nga xam ne ñoom ñoo yoroon force bi c'était li nga xam ne moo nekkoon Bassirou Diomaye Faye d'après les sondages mais yemul ci loolu à la veille bi ñuy jàppale Bassirou Diomaye benn jour la ñu ko wax mu def tole ci réew mi et ñi ñuy jàkkaarloo am mbetteel ils ont créé de fausses euh, déclarations ils ont parlé de comité directeur boo xam ne s'est jamais réuni récemment ñu wax que ni Abdoulaye Wade bëggul gis Bassirou Diomaye Faye et que Karim moom moo def lii Abdoulaye Wade xëy ci ngoon si vendredi. ñu dem ci siège Bassirou Diomaye Faye yóbbu message su président Abdoulaye Wade yóbbu message su Karim Meïssa Wade Bassirou Diomaye Faye wax ñu li nga xam ni moom moom la waxtaan ak Karim ba Bassirou Diomaye Faye expliqué ñu rôle bi nga xam ne moom joué woon na ko ci l'intercoalition Yewwi ak wàllu bi nga xam ne amoon na et que ci loolu ñu jóge fa ànd dem ci li nga xam ne moo nekk meeting ba Mayoro Faye a parlé au nom du PDS mais yamu ci lool bi wax yi bare le président Abdoulaye Wade recevoir Bassirou Diomaye Faye y avait la chargée de communication Nafissatou Diallo mi ngi fa woon mhm. Maguette Sy mi ngi fa woon ak Alioune président Ablaye Wade ñu bàyyi ko pendant des heures moom ak Bassirou Diomaye Faye ñu waxtaan ñoom ñaar lu bari. bi ñu waxtaanee ñoom ñaar ba pare am ñu génnaat aussi wax na loolu ba tey dañ ko mise en scène la ci guddi gi président Abdoulaye Wade def benn audio jox ko la chargée de communication Nafissatou Diallo muy vidéo wax ne damaa bëgg ngeen génneel ma ko ngeen tasal ma ko ci militants yi pour wax que ni je soutiens Bassirou Diomaye Faye et que bi loolu amee audio dañuy toog mais ñëpp xam ne la relation bi PDS ni ñu bëggee le président Abdoulaye Wade mais bi ñu déggoo vidéo président Abdoulaye Wade bi déggoo audio bi militant yëpp dañoo jóg wax ne ñi nga xam ne dañoo bëgg a wéet di waxi Abdoulaye Wade ak ñi nga xam ne dañoo bëgg wax ni Abdoulaye Wade waxul ni ñu militant yëpp dinañ jóg wane que ni Abdoulaye Wade mii li ñu wax moom li mu wax ñu loolu la ñuy def mais yemu ci Karim a sorti somme colossale la Karim Wade somme colossale ci guddi gi la chargée de communication ñoom ñuy woote ay téléphone les fédérations pour ne nañu respecter consigne bi fédération yi nekk ci yëpp ak communes yi 557 communes yëpp kenn ku ci nekk ñu yónnee la xaalis ne la jàppale leen waa Pastef ci li nga xam ne moo nekk bisu vote bi te li nga xam ne lool moo nekk déplacement yi parce que monde rural bi bëri na ci ñoo xam ne bëgg nañu PDS mais pour ñu jógee dafay métti kenn mosul gis engagement bi Karim Wade am ci élection yi mu am ko te loolu yëpp lan moo ko waral. Mhm. parce que le peuple voulait un changement. et am na tey on voulait tey dëkk boo xam ni dafay jaar yoon dëkk boo xam ni justice on parle de ce qui s'est passé au conseil constitutionnel mais ñun ñu la PDS bàyyiwuñu bàyyiwuñu. parce que tey li taxoon ñuy xeex bokk na ci loolu avoir une justice indépendante am dëkk boo xam ne dina permettre bu ëllëgee ku def lu dul yoon ñu mun laa teg ci biir li nga xam ne moo nekk yoon et yooyu yëpp tax ñu jóg jàppale li nga xam ne moo nekk Bassirou Diomaye Faye et que jàpp nañu tey le peuple sénégalais moo bëggoon changement li may wax ne la élection yi référendum la woon et que le peuple sénégalais a voté massivement pour Bassirou Diomaye Faye et que ñun jàpp nañ ni attente yi nga xam ni le peuple sénégalais ñu ngi koy xaar ci moom et que défi yi nga xam ne et que il a beaucoup appris ci li nga xam ne mooy le président Macky Sall parce que tey gis nañ li xew ci réew mi xam nañ li sénégalais yi di bëgg xam nañ li sénégalais yi di bañ xam nañ li sénégalais yi di xaar et je sais que Bassirou Diomaye am na conscience ci loolu vu son parcours vie fu mu jaar vie li nga xam ne moom vie li nga xam ne moom la partem daj ci li nga xam ne moo nekk ci fan ci ci ci at yi mujj yi nii yaakaar naa tey dina permettre loo xam ne une réconciliation nationale mais aussi un pays boo xam ne dina permettre Sénégal yi mun a am fierté nekk Sénégal ba li ñuy xaar ci moom yëpp mu yeggale ko en tout cas loolu lañ koy ñaanal ñun xaaruñu ci dara séentuwuñu ci dara bëgguñu ci dara. est que Amadou Ba comme l'a demandé tout à Khady est-ce que Amadou jël na téléphone woo Karim posé ko ay condition parce que loolu day dabaaw. loolu bu may wax li may wax mooy lii. Hmm. Amadou Ba jëlu téléphone am woo Karim xam nga Karim Wade benn jour damay wax ak damay wax ak damay wax ak le notre chargé de communication Nafissatou Diallo mu ne ma Karim nee na man may doomi Ablaye Wade ak ni Ablaye Wade mel ci man. man tey ma xeex ba perte sama nationalité bële ci sama wàllu yaay ak ni yaay mel ci moom ñu diw mi xaj ma ko man Karim Wade may nangu di ëlbatiku dem naan damay jàppale kooku wala damay ànd ak kooku noonu Karim Wade ne le fera jamais donc ñoom bi nga xamee ni jàkk nañ et que bëggoon nañu le soutien du père Karim wax na ko def na ay tweet mu ne que lan la Amadou Ba bëgg soxlawu sax PDS nañ ko voté mais na PDS ne jàppale nañu Benno Bokk Yaakaar mu déclaré boppam 53 pour cent wax na gagné na élection yi parce que am na soutien wu kii tey tweet yi ngay gis Karim di ko def yëpp saa yi génnee Amadou Ba lay attaqué donc nan nga mën a defee ay tweet di attaqué nit kooku wax ni moom moo la xañ ngay ëlbatu ko dem naa na ngay ànd ak ñoom ils ont perdu xamatuñu li ñuy wax ils sont dans l'intoxication ak désinformation mais ce qui est sûr mooy le PDS a soutenu Bassirou Diomaye Faye pour un changement taxaaruñ ci rien du tout c'est clair honorable ci kanam dinaa ñëwaat ci yow ci coppite yi ñu nemmeeku ci biir PDS Fatou Abdou mais ñu taxaw ci ci défi yi xaar Bassirou Diomaye Faye très rapidement waaw défi yoo xam ne aujourd'hui mi ngi xaar le président de la République euh, Bassirou Diomaye fay parce que euh, li ma doon wax l'autre jour que ne euh, même les 100 jours xëy na lu ñu def parce que un président aussi plébiscité que Bassirou Diomaye fay bariwul lu ñu ko gis ci Sénégal pour un opposant qui gagne au premier tour à 54 pour cent mais n'empêche dañu gëmloo xale yi que ne li fi amoon lu ci bari baaxul mhm. et que pour ñoom ñu ci bari jàpp nañu ne aujourd'hui quand ils viennent dañu nekk le messie maanaam dañuy indi solution léegi nag li leen di xaar moo tax mu diis tamit et bi ci njëkk ma mooy le coût de la vie les dépenses maanaam consommation courante yi parce que Sénégal li ñu gën a sonal aujourd'hui moom mooy dund bi nga gis njaboot yoo xamante ne dañu am jafe-jafe ndekki añ reer c'est une réalité au Sénégal à Dakar même dans la capitale et dans plusieurs localités waaye dafa nekk jafe-jafe aujourd'hui au Sénégal nga xamante ne tey ñu ci waxoon yépp ay effet d'annonce tout simplement la mais amul solution coût du loyer dañ koy wàññi boo demee di wuti nekk wala appartement mën nga joxe deux mois par trois mois ba tey loolu mi ngi continuer parce que les mille volontaires yi nga xam ne ministère du commerce waxoon na ko xadi amul benn suite malheureusement beneen bi moom mooy Sénégal ndox moo ko wër alors que on paye ndox ci lu cher dañ ne woon dañu koy jox jëlee ci kuréel gi jox ko kuréel gi ñu ne ñu dinañu am ndox de façon abondante et à moindre coût malheureusement ndox mi cher na te doyul yaa a beaucoup de localités pour ñu am ndox dafay guddi loolu également c'est un défi parce que gis nga dans les pays yi nga xamante ne ñoom dund nit ki daf leen daf leen soxal muy la santé d'abord il faut que dëkk bi di am ndox mu doy sëkk mais également mu war a bañ a cher ndox waru cher Sénégal mhm. parce que Sénégal li ko lépp ndox la énergie c'est un problème au Sénégal aujourd'hui Khady ñun dañuy am di produire ba di ko jaay c'est normal parce que kenn mënut a denc énergie faaw nga jaay ko mais loolu Sénégal war na ci mën a am njëkk loo xamante ne dina yomb ba sénégalais yi duñ ci am jafe-jafe mais également les réformes des institutions. parce que ñoom ci seen programme et même ci seen projet ils ont parlé de la suppression du con au conseil des cultivité territoriales et du conseil économique social environnemental. benn bi 9 milliards 160 de francs CFA HCCT moom la ñuy jural budget ci Sénégal amul njëriñ. <coughs> au conseil économique social environnemental amul njëriñ. ñoom Malick ñi xam nañu ne tey le président de la Macky Sall qui signe des décrets pour nommer certaines personnes au conseil constitutionnel environnemental mais loolu euh, ci jamono joo xam ne le conseil le constitutionnel a sorti quand même un communiqué pour donner les résultats définitifs de l'élection présidentielle qui proclame Bassirou Diomaye Faye comme président de la République les choses courantes la ñu war a évacuer peut-être moom après dina ci ñëw pour leeral mm-hmm. mais au même moment on prend un décret pour daaneel le président de la cour d'appel on prend un décret pour nommer des membres du conseil économique environnemental benn kuréel goo xamante c'est pour caser benn clientélisme politique mais ça pose problème loolu je pense que ne ñu war a ñëw c'est une exigence en 2012 lorsque le président Macky Sall di wàcc ci tarmac bu aéroport Léopold Sédar Senghor il avait dit que dafay supprimer Sénat parce qu'il y avait des inondations Quatre ans après, en 2016, il met en place le Haut Conseil des collectivités njariñ li foofu j'espère que du nekk quand même annonce nii rek pour les premières années parce que les premières années bu ñu mënoon ñoom du ñu lekk sax dinañ ko def Bassirou Diomaye Faye et son équipe pour montrer aux Sénégalais que dinañu def lu baax mais wax ji mooy dëkk ci cest dire que que les cinq ans qu'ils sont au pouvoir ñu mën a fexe ba indi ay yeesal surtout ma réforme des gestions mais également la bonne gouvernance mmh. parce que ñun suñu réew mii xadi mmh. les scandales sous le régime de Macky Sall eh, dañu succédé wu ba pare y' a pas de coupable y' a pas de responsable malheureusement. Mhm. il beaucoup de détournement de deniers publics. Mhm. boo xamante ne rapport Cour des comptes yi génnee na ko et jusqu'à présent amuñu ci benn réponse mën nga lim tey ba jeexal. wax nañ fi Prodac kenn xamul fu mu mujj. Mhm. wax nañ fi armement 45 milliards kenn xamul fu ñu mujj kenn xamul dëgg la. kenn xamul du dëgg bi ci nga xam ne moo gën a fës ba mobiliser peut toute la société civile mooy les mille milliards de francs CFA yi nga xam ne détourné nañ ko des ministres de la république yuy dem di jëli li nga xamante ne mooy en espèce koppar sans pour autant sénégalais yi ba tey ñu am ci lu leer je pense que loolu kañ la ñuy xam nag ñun ban gouvernement la ñu am mooy gis nga bu ñu defee prestation serment pare le deux xadi mm-hmm. ba moom Bassirou Diomaye Faye mu def former son gouvernement mu former ndax c'est un gouvernement de rupture ndax c'est un gouvernement de combat par rapport aux priorités yi Sénégalais di xaar wala gouvernement la boo xamante ne dañuy taf yëngal pour peut-être euh, lëndëmal xelu Sénégalais yi pour ensuite ñu génnaat ci quelques années plus tard pour faire comme le régime là bi nga xam ne Sénégalais dañu leen sanctionné parce que bu fekkoon ne am na lu ñu fi def lu Sénégalais jàpp duñu leen gagné au premier tour avec 54 pour cent. c'est vrai alors Serigne Saliou euh, euh, euh, président Bassirou Diomaye daf fi fekk Sénégal boo xam ne yaa a énormément d'attentes am secteur yu bari yu taxaw ndax on parlait pratiquement que de politique mu fekk fi jamono joo xamante ne également jeunes yu bari dañu ko jàppe un peu commence un sauveur yan bu diis. waaw xale yi day yaakaar lañ ci am te gis nga yaakaar boobu nag ça ne de pas d'aujourd'hui gis nga en 2000 bi ñu fi jëlee le président Abdou Diouf. ñu soutenu président Wade yëpp yaakaar lañ ci amoon. Uh-huh. par la suite gis nga ni mu demee. le président Macky bi muy ñëw moom bañ na ko ba sax APR yaakaar lañ doon wax. Uh-huh. donc ñoom te porteur d'espoir. Uh-huh. nit ñi yëpp aussi amoon vraiment yaakaar ci ci moom mais na mu commencé ci boppam mooy moom la moom moo baaxul woon parce qu'il fallait s'attaquer aux priorités de Sénégalais mais président Macky Sall dafa teel a moom sa réélection en 2019 parce que le problème de Karim Wade xam nga ñu wax naan c'était une demande nationale c'est vrai parce que ñi jàppoon nañ ne sous le président Wade aussi amoon na yàqu-yàqu uh-huh. mais su fekkoon ne dafa jaaroon fa mu war a jaar Sénégal yi duñu ci am problème mais malheureusement dañuy au bout du compte on s'est rendu compte que Karim rek lañ soxla woon donc moom mi ngi doon déjà visé li nga xamante ne mooy ñëw parce que donc moom dafa teel a yàqule ci loolu et il a perdu beaucoup de temps ci xeex ak Karim Wade finalement ça a li nga xamante ne moom la moom la bëggoon comme résultat parce que soo xoolee PSE bi même bi ñu ko tracé dañu waxoon ne en 2017 il nous faut une autosuffisance moom boobu ma ne deadline bi mais gis na ba bi ñu fiy jógee nii autosuffisance boobu amul woon alors que autosuffisance bi dañ ci compté woon pour que dund bi ga mën a mën a mën a yomb uh-huh. dund boobu nag Fatou na ko léegi fi ñuy xaar les nouvelles autorités mooy comment réduire d'abord les dépenses de l'État et aussi vraiment le le le coût de la vie parce que c'est extrême ma cher loolu je crois que bu buñ ci attaqué wo xool nan la ñuy def ba wàññi dund gi te loolu aussi il faut que nécessairement ñu joxante loxo avec les organisations commerçantes mënul ñàkk il faut ñu xool avec les commerçants yi nga xam ñoo nekk fii que ça soit INOACO en tout cas toutes ces organisations là pour que ñu xool comment maintenant réduire d' abord yenn denrées yi parce que loolu Sénégal yëpp dañ ko bokk. parce que lépp luy jëm ci loo xam dañ koy consommer chaque jour. loolu moom ñëpp a ko bokk donc lu ñëpp bokk nag soo fekkee ne wàññi nga ko euh, cest une frange de la société ñoo koy soxla yooyu c' est yooyu du ay priorité priorité bi mooy d' abord dund gi. xool aussi la problématique du logement loolu aussi les gens en en parce que ba léegi l'actuel gouvernement gouvernement sortant pu trouver de solution par rapport à la question du logement donc yooyu c'est des priorités yoo xam da koy attaqué loolu boo ko attaqué ba nga xam ne résoudre nga yooyu nga nag nga songaat yeneen yi mais daar daar moom il faut nga xool nan nga mën a wàññee d'abord les des denrées carburant bi aussi il faut ñu xoolaat ko parce que loolu euh, dafay réduire encore trans parce que ñi jël transport dafay bëri donc lépp loo xam ne dafay jëm dans le la poche même des des de Sénégalais ou bien le panier de la ménagère loolu mooy priorité bi nga xamante ne ñoom war nañu attaque maintenant institution yi Fatou Abdoulaye déjà di ces institutions là xaalis ba nga xamante ne moom lañ ko fa budgétiser mën nañ ko réorienter en les supprimant bien sûr HCCT ñëpp xam nañ ne c'était pour caser une clientèle politique mais wax dëgg yàlla gis ñu seen benn plus-value dans la politique de l'État CSE aussi ça la même chose donc yooyu boo fa ko supprimer supprimer salaire yi nga xam moo fay dugg ak fonds politique yi et puis aussi le président l'actuel président de la République je crois il le nouveau président il en avait parlé mooy les fonds politiques fonds politique yi aussi moi je crois que loolu gars yi di nga ñëw yooyu ko a dindi même soo ko dindi woon si nga wàññi ko drastiquement parce que quand on dit que des fonds politiques de huit à dix milliards pour président de la république loolu c' un problème. et puis dans une république il faut que tout soit transparent moom déjà il a fait sa déclaration de patrimoine il faut contraindre. en tout cas yeneen ministères yëpp même su fekkee ne dañ koy def à l'OFNAC mais assujetti yi bu ñu defee aussi seen déclaration de patrimoine parce que même sous le régime du président Macky Sall am na ñoo xam ba léegi léegi nag il faudra que tout le monde ñi nga xamante ñëpp dañuy dugg ci dañ leen di jël si gouvernement bi ñu def seen déclaration de patrimoine ba ñu xam ñoom ñaata la ñu yore et que ça jël di ko denc amul solo tey France seen ministre seen conseil yi nekk sax dans les euh, comment municipalités soo cliquer nga gis ñoom li ñu am par comme patrimoine comme que nag ils sont dépositaires d'un mandat public mm-hmm. ku ci nekk la nga am nit ñi war nañ ko mën a xam booy génn aussi qu'on fasse la même chose ñu ne kii bi muy dugg lii bi muy gën lii la am et ñoom seen wàllu boobu dañu xam ndax yow këpp nga kees wala këppoo nga kees parce que fii li fi xew ci réew mi dafa métti. il y a eu des yu dul jeex yoo xamante ni jusqu'à aujourd'hui amuñu ci benn en tout cas amul amul benn leeral y a transparence mm. loolu nag c'est des choses yoo xamante ni je crois que avec une planification dans le temps bu ñu defee état des lieux nañ mën desuwaat ci loolu mais les priorités moom les urgences c'est d'abord faire de sorte que sénégalais yëg ne dund gi wàññeeku na. Mhm. baykat yi aussi nawet bi ñu jëm. vraiment ñu yombaleen leen mbir yi parce que aussi baykat yi son nañ. Eh avant ngay song yeneen yi suñ ko deful. départ bu raté lañuy ñuy def mais je crois que ils en sont conscients mm -hmm. donc ils vont tout faire pour s'attaquer à ça mais loolu aussi mënuñu ko def sans les organisations commerçantes sans le secteur privé eh il faut que ñu lëkkaloog ñoom mhm. waxtaan ñoom parce que puisque c'est un tout donc je crois que tout le monde doit s'y mettre pour que en tout cas ñu mën a euh, réaliser les les premières urgences. c'est important Kader. je pense que ni pour que ñu mën a àgg ci yenn attentes yi nga xam ne moom la Sénégal yi di xaar ci ñoom. Mhm. il faut que d'abord ñu déglu les députés parce que. je pense que ni liy réaliser li nga xam ne moo di rêve sénégalais yi liy tax aussi ñoom ñu réussir seen li nga xam ne moo di projet ci année bu njëkk bi moom mooy ñu xool le budget fan la Sénégal toll lan lañ voté à l' assemblée nationale naka lañ mën a def ba réaliser li nga xam ne moom moo di seen projet yi njëkk yi jëm ci salaire yi jëm ci loyer bi jëm ci dépense yi jëm ci yooyu mais bu ñu bëggee ñëw indi ay promesse te xamaguñu budget bi fu mu toll naka lañ koy jëlee fan lañ koy dugal fan ak fan lay dem salaire bi nu mu toll mais boo defee promesse aussi il se peut que ñu euh, fecc fecc bu gën a gaaw la musique donc pour éviter que ñu egg ci loolu moom mooy juste nañu xool li mën a nekk parce que si c'était aussi facile que ni ñu ko bëgg a waxee mais Wade du échoué Macky Sall mi du échoué kon donc ñoom bu ñëwee dañuy fekk loo xam ne dafay fecc dafay yomb rek ñu continuer mais bu ñu xamee ne tey ji ñoom euh, jaar nañ ci impôt dégg nañ Diomaye fay bu yàggul dara le président mu wax ni euh, parfois sax dañ daan ñëw. jël li nga xam ne moom moo nekk ci impôt pour dem def ko ci ay yeneen dépense donc cela dit que ni sunu kees bi amul lu fi nekk et que est ce que dañuy continuer dem di lebi xaalis pour di ko indi alors que ñoom ñoo prôné loolu mënul nekk day dakk ou est ce que dañuy ñëw ci multinationaux yi fi nekk wala yenn entreprise privée yi nga xam ne ñu ngi fi rek pour dem ci ñoom nangu li nga xam ne moom lañ yor est ce que dinañ ci génn wala dañuy ñëw ci particulier yi ne leen léegi désormais seen niveau de vie dañuy jéem a wàññi il faut que ngeen takk seen biir mais dangeen ngeen di fay ay impôts yoo xam ne si ne attanuñ ko kon donc amul njëriñ. ak lu mën a am mooy il faut que ñu xool budget Sénégal fu mu toll fu ñu ko amee fu ñu koy jëlee fan lañ koy dugal. partenaire yi fi nekk ñaata lañ fi dugal lan moom moo fi mën a nekk lan moo fi nekkul entreprise yi nga xam dañ leen dañ du fay ay impôt suñ leen ko fayloowee ban répercussion répercussion lay am ci li nga xam ne moo di seen ay entreprise est-ce que après du ñu wàññi seen personnel mhm. créer beneen crise donc li am daal mooy il faut ko ñu dem ndànk jéem a wax ak les sénégalais ni leen affaire bi ñëw nañ mais du ñu xëy rek mu sotti il faut que ñu dem ndànk ba ci kanam xool un mois deux mois trois mois lan lay joxe. fi ñu toll nii bientôt inondation yi mi ngi ñëw parce que bu cent jours yi di mot day fekk ci digg nawet la ñuy nekk est ce que Sénégal yi dañ pare pour pardonner leen loolu parce que bu ñu yeewoo ci ndox mi ne leen du lii ngeen ñu waxoon li fi nekk di xaar ñii di ñëw dafa bari et que il faut que ñu bañ a dem ak ay. promesse projet bi gis nañ ko yaatu na li ci ëpp doole concerné na li nga xam ne moo di institution yi changement yi ñu ci wax ak yooyu mais aussi ba tey les députés dañ ci joué beneen rôle parce que fi mu toll nii waaye boo day bokk ci wàññi pouvoir yi nga xam ne moom la le chef de l'État am buñ ko bëggee def war a dellu à l'Assemblée naka lay demee entre les députés de Yewwi taxaw ak ñi nga xam ne si ni ñoom ñooy euh, euh, waa Benno mhm. donc loolu aussi boo fa àggee nga ne leen damay wàññi pouvoir président pour jox le le premier est-ce que réellement les députés du peuple lañuy wax wala les députés de euh, de Yewwi wala fan li ñu doon bañ moom mooy amaat. Eh il faut que ñu teel a wax Sénégalais lan lañ bëgg. lan moo ci possible projet bi fan la jëm fan lay taxaw mais ak lu mën a am daal mooy gëm naa ni am nañ volonté pour créer benn changement mais pas que quand ñu def ko ci benn mois. mënta nekk parce que sinon crise day am te bu moytu tam danañ gaañ ñu baree bari donc ak lu mën a am rek mooy nañu xool. d'abord fan la ñuy jëlee koppar googu ba pare. très bien Omar. xam nga d'abord on attend sur le nombre de ministres. Mhm. dans le gouvernement. c'est vrai. il ci xaar. mais surtout éviter ce que Macky Sall a fait. ci ban fànn. Serigne duñu na ko sànq sax teggaliwu ko. ça dire que Macky bi mu jëlee nguur gi premier objectif c'était de réduire quelqu'un qui s'appelle Karim Wade avec la mise en place d'une juridiction d'exception qui s'appelle la CREI ñëpp ko xeex mat na ñaari at Sénégal talul dara lu dul ci CREI boobu jël ñëpp en otage c'est par la suite qu'il a pris conscience de cette situation commencé am beneen beneen comportement. Mhm. il faut faire l'état des lieux on a besoin. mais jox ko ñi ko war a liggéey nga continuer si sama yow. Mhm. état des lieux day am foo ñu gis na dafa lëndëm leeru ñu oo les principaux acteurs mais il faut pas en faire un débat jusqu'à orienter le président uniquement sur ça parce que lu ne am na ñu koy liggéey on a des organes de contrôle on a la justice qui est nañ def état des lieux bi président concentré wu sur ses orientations mais tey boo toppee gars yi ci lu benn logique bi comme ni ko Macky Sall defewoon rek da ngay jàdd ñu ngi leen ñun lii moo taxoon ñu fal la mm-hmm. beneen bi mooy il faut que le peuple soit patient surtout la patience On ne peut pas élire quelqu'un aujourd'hui et vouloir dire aux Sénégalais que le Sénégal sera en couleur. C'est pas possible. loolu mënul nekk. maintenant ci acte yi muy posé di nga xam ni kii fël la jëm te bëgg na dem ci la voie du changement mais da nga gis ñoo xamante ni dañuy tey nit te ñi lay gën a sonal mooy ñuy ànd ak yow. il n'est pas dit que politiquement tu t'es battu tu étais en prison tu as tout fait que tu dois avoir des postes de responsabilité non non non non xeex nga politiquement ba ñuy accéder au pouvoir yow li ngay ñaan mooy nañu réussir bu fekkee nag am nga compétence war nga mën a am ay responsabilité parce que aussi Serigne nit nag boo gañee yaay jiite yooyu aussi il faut ñu nangal ko en France mhm. aux États-Unis partout ñi gañee ñooy diriger c'est vrai il faut pas aussi nit ñi gañee am ay capacité yenn rek yor yenn responsabilité yi tamit nga nekk doo ko yor qu'on me dise aujourd'hui dans ce monde là que les Macron ou ailleurs bari équipe moo gagné ñu oowi ay nit ñeneen ñeneen kaa leen diriger amul fenn bu fekkee ne xam nga ne si ñi nga àndaloon tamit ñi nga xeex am na su ñu xamante ni am nañ ay compétences bu accéder à cette initiation il faut le faire. c'est vrai. ça aussi il faut nit ñi nangul ko. loolu mooy am mais du tere aussi ñu am une administration parce que lépp administration bi la te ñun dañ ko ñàkk. Nous avons perdu notre administration. Parce qu'on a tellement politisé l'administration sénégalaise, avec surtout certains postes de responsabilité, de souveraineté, à certaines directions de souveraineté. nga xamante ni ne comme ni ko waxee ñoom war nañ appel dañuy def appel d'offre ci af ci ci yenn appel à la candidature mais ça c'est pour les postes nga xam ne boo ëllëgee kenn du wax dara loolu rafet na mais suñu administration bëgg nañ ko jotaat tey fonctionnaires yi boo leen ko demee par partout mais ils ne travaillent plus. très bien parce que tellement dafay am ñoom ci ni politiquement jàppale nañu président ba accéder à certains pouvoirs ñoom dañu yaakaar ni ñoom fu ñu dem rek dañu war a dañu war a wu. très bien ça c' est des problèmes yoo nii ni war nañ ko rek régler beneen bi mooy les retraités nañu gëm yàlla toog seen kër. Uh-huh. bàyyi xale yi les retraités on ne peut pas retraité tu bénéficies de contrat spécial. retraités yi xëy ñu xëy rek am expérience. c' est dans le temps qu' ils ont eu l' expérience ba toll fi ñu toll. on a des jeunes qui sont là laissez-les à l'œuvre. nañu yor bu yàggee aussi ñun tamit dinañ am expérience comme ni ko mag ñi amee woon. mais retraités yi ci yenn poste de responsabilité on ne peut plus voir ça. nañu gëm yàlla bàyyi xale yi. te ñu am compétence ñu ñëw jiite ñu xool sa dont ils sont capables de faire. c' est important. yooyu mooy actes yi nga xamante ni ne actuellement mën na ko def beneen bi. c'est le secteur privé national te là il faut que le président fasse beaucoup attention parce que am na ñamante nii ne yoruñu amuñu bureau amuñu ay travailleurs amuñu dara seen saak la yor ak seen i prondol di gagner ay marché sans rien faire mhm. ñoo taxaw il faut regarder les véritables le véritable secteur privé et les véritables hommes d'affaires nga xam ne dañuy liggéey di fay taxe di am ay employés def lépp di liggéey bu réew nga xool ñooñu noo leen di accompagner il faut que président ànd ak secteur privé national parce que loolu tant que amuñu ko bu ñu solo suñu bopp parce que les emplois des jeunes ak yeneen emplois yi on peut pas le très bien l'État ne peut pas. il faut renforcer le secteur privé national. très bien favoriser la préférence nationale. loolu bu ñu ko deful. du ñu dem fan suñu partenariat aussi ñu signé avec les étrangers. Mhm. ñu xool bu baax partenariat yi. très bien te ñu bañ a imposer. l'État parce que parce que loolu aussi ñu bañ leen imposer coûte que coûte que les sociétés étrangères aussi waruñu am yenn privilège. très bien am na yenn responsabilité yoo xamante ni bu ñu xamee ne ñun seen bopp mënuñu ko on peut privilégier ces mm-hmm. et la presse. Mm-hmm. ngir yàlla il faut poser les véritables débats. on en a besoin. comme ça que ça passe ici dans notre débat. Mm -hmm. les débats que nous organisons ici c'est des sérieux. newuñu fi di def folklore. wala di mbalaxal nit chaque jour sëriñ ñu ngi nii fii dañuy toog di débat mais on pose les véritables débats et vous les Sénégalais. seetaan télé yi nga xamante ni on pose les véritables débats par des débats de divertissement. très bien Omar merci. divertissement boobu ñu bëgg a dugal Sénégalais yi ndaw rabine boobu sur des choses sérieuses il faut que ça bu ñu waree poser débat yi waxtaan. ci énergie ci agriculture ci élevage ci sport ak lépp ñu toog ndaw ngeen seetaan sénégalais yi bàyyi leen yéen. man man Sénégal rek laa gis da nga gis kuy reetaan koo xamante ni du wax def dara lu am solo ñëpp di ko seetaan quoi bu fekkee ne ay débat sérieux la n'est-ce pas. mais kenn du ko seetaan. mais c'est grave alors mais ñun les pays étrangers la gënuñu. samedi dinañ def divertissement mais les autorités il y a des débats situation bu am rek dinañ oote immédiatement. ñu def en débat ku nekk téere si ñu xam ne fii lañ bëgg a yor réew mi donc la presse à un rôle à jouer dans ce dossier maintenant ñi nga xamante ni nag parfois du ñu xam dara ci li wax parce que il faut oser le dire di def seen live te live yi ñuy def xamuñu ci salaamaaleykum ci ci réew mi mhm. ñu ñëw di ko imposé ñu doon ay consommateurs par rapport à ça Sénégalais dama bëgg ngeen yeewu très bien oh surtout pour les jeunes mhm. nañu dimbali les jeunes vous êtes vous ba tey ñu am un président jeune mais il faut l'accompagner mhm. en ayant un esprit de développement merci Omar bàyyi folklore bàyyi ndaw rabin si la bokk sax mais quand ñu bañ ko jël di ko chaque jour ñu ko imposer ça c'est pas possible dans ce pays très bien man Khady très rapidement par rapport par rapport ak attentes mhm. je pense que loolu am solo la euh, man li may xaar déjà mooy Sénégal bëri na secteurs yi nga xam ne dañoo feebar e secteur de l'éducation nu nañ ko wax euh, wàllu santé agriculture am na ko ko fi wax léegi industrialisation moom ci campagne bi dafa ñëw carrément ci programme mu euh, candidat yi et je pense que ni Euh, le secteur de l' industrie jàpp naa ne am na lu mu mën a faj lu bare bari bari euh, ci euh, développement Sénégal donc loolu itam bokk na ci ci attentes yi attentes yi dafa bari lool lool lool surtout ci secteur yi nga xam te dama ci lim yooyu rek mais bari na tey je pense que ne lu président bi ñu bi ñu fal yees mi ngi koy mi ngi koy bàyyi xel mais mais li may na xaar mooy euh, que ce régime là avec à sa tête le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye xadi ñu xeex wàllu corruption guerre le Sénégal euh, plonge toujours dans la zone rouge avec une note de 43 sur 100 ça veut dire que ne réew bu am corruption mu yàgg fa di fa di fa dund te lijjantewuñu ko réew boobu du avancé mm-hmm. et je pense que nit ci discours am sax dernièrement maa ngi dégg muy wax ni euh, dina dina fexe euh, def lépp ba xeex lu jëm ci wàllu corruption c'est hyper important sëñ Saliou wax na ko sànq la bonne gouvernance sénégalais yi ak ku nu munti fal la bonne gouvernance c'est-à-dire day mel ni une demande sociale et c'est hyper important ngabbin bu baax yorin bu baax seeni àll parce que xam nañu ne yow mi nu fal lii la dénk di ay bànqaas ña fay nekk lañ la fay fay yow moom moo ko sénégalais yi ñoo ko moom donc su man rijaal su ma amee sama mbir dénk la ko li may bëgg mooy nga sàmmal ma ko sàmm boobu la sénégalais yi di xaar effectivement ci ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi la bonne gouvernance ak ku mënti doon ci ci kilifa ñu fal la ci poste de responsabilité bu gën a kii fexeel ba ŋàbb ko ŋàbbin wu baax mhm. c'est hyper important loolu lu am solo la beneen bi mooy nag dégguma kenn ko ko fi wax ci plateau bi balaa ma ciy ñëw loolu dégg naa Fatou Abdou ne nañu wàññi dund bi sëñ Saliou wax aussi wax na ko moi je man man nag j'aimerais bien savoir yan yoon la suñu état yi war a jaar pour wàññi dund bi c'est une question que je pose xam tax oui c'est ça c'est hyper important et même au-delà état mënul ñëw rek Euh, wàññi njëgu dund gi nii lenn rek la mën def subventionné te bu su mënul état mënul dëkk ci subventionné. Mhm. ay la yow it am na yeneen priorité moo tax il faut ñu teg ay mécanismes yu nga xam ne dinañu may effectivement ay ay kii lay doon ay pexe. Mhm. pexe yu nga xam su ma defee lii def lii def lii ay la yow dina répercuté wu ci dund gi ni muy ni mu ko mën a wàññee. Mhm. loolu c'est hyper important mais bu ñu dugal ci bopp sénégalais yi wuy euh, toog ngeen rek euh, wàññi leen dund bi loolu mënul ne. très subvention rek la mën a def te soo te loolu mënu cee dëkk parce que am na am na am nañu ay priorité ñuy xaar beneen bi mooy dégguma kenn ku ko wax ci plateau bi te xadi il faut itam tam nguur boo boo ko yoree ba pare xanaa ay la yoon daañu la évaluer la reddition des comptes encore une fois la la la reddition des comptes sëñ Saliou la reddition des comptes bokk ça n'a rien à ak ma singali la di la topp di la sonal di la enquête pour yóbbu la kaso déedéet dañu laa dénkoon sunu ay milliards lañ la dénk. ay la yéwén liggéey nga ci fan nga ko def fan nga ko dugal yan résultat nga ci def. mais il y a des rapports qui sont là. lu bëri sax des rapports yoo xamante ne nii il faut qu'on en parle. il faut que ce régime là. édifié ci combien de fois xarit colonel ma daanal foofu conc bi dem c'est ça conc bi day dem combien de fois Fatabdou ci sunu ay plateau pratiquement deux trois mois def nañu ay émission ay édition ci fond force Covid 19. ak yeneen ak yeneen boobu rek laay jël exemple. loolu rek doy na exemple li ci xew yëpp xam ngeen ko sénégalais yi xam nañ ko. Mhm. mais quand on parle de reddition des de de reddition des comptes. encore une fois di nga dégg sénégalais ñenn ñi naan la wuy non non nguur gu bees la bu ñu topp kenn waxuñu kenn topp kenn waxuñu kenn singale kenn état état du ay caaxaan kuñ ci dénk mhm. nañu leeral lañu la dénk fa nga ko dugal parce que xaalis boobu mhm. du xaalisu président Diomaye du xaalisu Macky Sall xaalisu sénégalais yëpp sama alal a ngi ci alalu Fatab du alalu Rijal sa alal ak alal loolu aussi man bokk na ci li may xaar par rapport ak asnu régime xarit important alors yaa ngi wax sànq affaire agriculture noonu la ñuy def pour réduire mais il faut que les jeunes savent sachent que mën nañu dem ci bureau yi ñoom ñëpp ñëpp mën nañu dem les jeunes là c'est vrai il faut les inciter à aller vers l'agriculture la pêche ay yooyu bu ñu bëggee réew mi am auto suffisance il faut que ñoom ñu jël suñu récupérer suñuy terre ba pare mm-hmm. ba pare ñoom ñu dem bay c'est important Omar alors n'est-ce xam naa ne di nga ma dagg mais yooyu <laughs> non dama xale yi Omar bëggul man xam naa bu baax li ma la wax gis nga xale yi mm-hmm. seen biir lay ne mm-hmm. il faut ñu wax leen dëgg lu ñuy dimbali dimbali nit ñi il faut qu'on le dise la vérité mënuñu taxaw fii ci réew mi nga toog fële nga toog naan li nga bëgg da koy am mënul ne. c'est clair di dimbali nit ñi aussi. boo demee bay man tu peux être milliardaire. c'est bay. Mhm. il faut loolu ñu def ko da ngeen war a yéen sax di def ay ay ay documentaire di wane ay jeunes yu nekk ci tool yi di bay di am ay kër di yóbbu seeni i doom à l'étranger parce que ñoom xam moom xamuñu ne mbay mi. mën nga ci am ay milliards. donc il faut ngeen dimbal leen ci loolu. très important fi nga dugg Omar. alors waxtu bi ñu cërale woon sax daanaka romb nañ ko mais mënuñu euh, honorable ñàkk wax ci remaniement <coughs> bi ñu nemmeeku ci biir parti démocratique sénégalais ak Karim Wade bi nga xamante ne euh, moom daal fee la toll rek di euh, di buum di buumi. ay idées yu bari yoo xam ne jóge na fi. Mhm. nga wax que ni Bassirou Diomaye Faye il est élu président des Sénégalais. te booy xool ci histoire mooy président bi gën a néewi at ci président yi fi jaar yépp mu xool ni ñu ko falee te lu ci ëpp c'est la jeunesse et tey jeunesse boobu am tey yaakaar ci moom moo tax tey ma ni tous les Sénégalais ñoo ko war a jàppale pour que Bassirou Diomaye Faye réussir mais surtout la jeunesse parce que tey jeunes bi la ñu sas jël ñu def ñu président de la république et que tey bu Bassirou réussiré c'est Sénégal bu ko yéene échec it sa bopp nga yéene échec Sénégal nga yéene échec donc képp koo xam ni sénégalais nga war nga ko mën a accompagner war nga ko mën a jàppale à que mu réussir mission bi nga xam ne moom lañ ko dénk. parce que défi yi koy xaar nekk na défi yoo xam ne défi yu bari la. mu jëm ci emploi des jeunes. mu jëm ci wàllum éducation mu jëm ci wàllum santé santé mu jëm ci wàllu mais lépp xëyul rek sotti. très bien mais aussi am na sànq lu Kader di wax par rapport ak député ak affaire yooyu noonu. Mhm. mooy que ne le budget a été voté pour deux mille vingt quatre. et que la possibilité tey bu ñëwee ñoom def une loi de finances rectificative pour xoolaat li nga xam ne loolu moo la yaakaar naa loolu ce n' pas un ce n' pas un problème d' pour ñëwaat ci li nga wax ci parti démocratique sénégalais. ci ci tënk rek. ci tënk rek mooy. Mhm. le parti le secrétaire général national. du Parti démocratique sénégalais s'appelle Maître Abdoulaye Wade. Hadi, les articles 21 et 22 et 23 du règlement intérieur bu ak statut Parti démocratique sénégalais moom moo wax que ni président Abdoulaye wadd yenn post yi moom moo fay fal su weesoo poste jeunes yi nga xam ni dañuy dem compétition ak poste femmes yenn post yëpp président Abdoulaye wadd moom mooy xool ku fay nommé. président mais faatu dindi tafsir Fatou Fatou Fatou. promouvoir la promouvoir Bachir Diawara Fatou je ne peux pas être membre du PDS nekk un député un communiqué sort signé par le secrétaire général maître Abdoulaye Wade nga bëgg ma wax ne ma est-ce que moom moo ko def. loolu lañ defoon bërki démb non non c'est pas la question que tout le monde se ah mooy kan ni dañoo taam yaakaar ni lu xew PD rek ce n'est pas Abdoulaye Wade ba bërki démb. biñ ñëwee Diomaye Faye la ñuy soutenir mu ne ce n'est pas Abdoulaye Wade alors que Abdoulaye Wade moom seul moo mun a engagé le parti moom kese mooy nommé et le communiqué qui est sorti est signé Abdoulaye Wade bi Abdoulaye Wade di fal keneen tàgguwuma woon tàgguwul ma sàmba tàgguwul kenn dañoo xëy gis mu génnee li nga xam ne moo ne communiqué encore une fois vous avez parlé de Tafsir Tafsir c'est un grand frère pour qui nous avons beaucoup de respect et de considération il a porté pendant longtemps li nga xam ne moo nekk porte-parole lu PDS d'accord li nga xam ne moo nekk fierté xam nga nga mooy Fatou xam nga parti politique dafa am lu muy doxee. quand on est quand on est quand on est. quand on est quand on est porte-parole on n'est pas porte-parole ci sa bopp. très bien tu es porte-parole d'un parti. Mm-hmm. même si que ni parti bi mën na jël décision man abo mën naa bañ a d' accord keneen mën na bañ a d' accord mais si le secretaire général national maître Abdoulaye Wade wax que ni dafay engager le parti. képp kuy militant ci biir képp ci biir képp képp képp ci biir. non xam nga Fatou Fatou Fatou boobu xaar xaar ma may la xam nga xam sinon ñu xoolaat lan mooy définition mot démocratie démocratie weesuwul ñu am ay statut wax ne seul le président Abdoulaye Wade depuis sa création PDS moom moo mën a engagé mooy mu ne mu même bu fekkee yoon may na ma ko am na décision yoo xam ni le président Abdoulaye Wade daf ciy consulter ay nit waxtaan ak ñoom mais le dernier mot lui revient parce que moom moo war a jël décision bi démocratie mooy que ni boo bu fekkee ñu ñëpp dañoo bokk ci dara ñu am démocratie ñu waxtaan kenn nekk joxe sa xalaat bu le président bi waxee rek le secrétaire général moom moo engagé ñëpp te loolu mooy engagé le parti mais lenn laa doon bëgg wax mooy par rapport ak Tafsir Tafsir on a dit que mm-hmm. à d'autres xam nga xam nga xam nga lu tax ñu tey xam nga lu tax ñu parce que parce que Fatou nous avons un gouvernement parce que tey boo demee ci ñuy st dafa am secrétariat national boo xam ni kenn ku ci nekk dañ la chargé xam nga quand on connaît pas les textes et les règlements intérieurs d'un parti politique bu la neexee nga toog wax lu la neex mais ñun ñu koy dund xam nañ comment ça se passe dans les partis politiques ma ni euh, euh, xam nga kañ la ñu bàyyi mu noppale ko ah. bis bu yàlla defee ah. ñu dem congrès ah. ba tànn beneen secrétaire général national du xam nga dafa loo xam ne PDS yéen ñi fi toog ñëpp kenn tànn ci jënd carte PDS ñun ñoo tànn jënd carte PDS être des militants du PDS accepter les textes et les règlements intérieurs et que Abdoulaye Wade reste notre secrétaire général. On a lancé un processus de renouvellement de notre parti mm. on a monté nos fédérations, où on a monté nos sections sur 557 communes pour aller vers un congrès boo xam ne dañuy am secrétaire général national bu bees il y a eu l'élection présidentielle bi nga xam ne ñëw na loolu yëpp daal taxaw encore une fois Tafsir tey am na leneen loo xam ne encore une fois je le dis Khady et je le répète mhm. seul président Abdoulaye Wade mooy engagé le PDS seul le président Abdoulaye Wade moom mooy jël li nga xam ni mooy nommé nit ci yenn postes yi nga xam ne loolu léegi nag on peut on peut ne pas être d' accord ah. wala mais encore une fois c' interne boo xam ne c' est notre règlement intérieur et que prérogative bi Abdoulaye Wade la ko may comme ci beneen parti bàyyil seen parti ah, non xam nga dafa am loo wax war aboo mii nit ku baax la xam naa ko. li ñu dal Tafsir nii amul benn sénégalais ñu si ëpp bopp. rafetlu ñu ko rafetlu. dëgg la. il y en a je parle en connaissance de cause. Tafsir Coy nga am ko si parti. kàngam la de. am xam ak lu muy am lu de. gaw ma communiqué bi Ablaye Wade moo ko signé gaw ma ko. ah non je suis pas d' xam nga non xam nga lan moo tax xam nga xadi dégg nga dafa xadi baal ma ma suuli ma yëkkati benn. non dama bëggee dindi rek baal ma rek Omar. Ah. xam naa ni yow bu demee bien le PDS xam naa loolu. Ah. mais dama bëgg indi benn benn mbir. Mhm. mooy Babacar gay a été le porte-parole du PDS. maître Amadou Sall nekkoon na ko ñeneen nekkoon nañ ko te ñun ñëpp Abdoulaye Wade moo leen ko def. tafsir pertinence am ak melokaanam ak fiertéem kenn du ko remettre en cause au sein du parti démocratique sénégalais kenn du ko remettre en cause mais on ne peut pas tey jii le président Abdoulaye Wade bi muy nommé tafsir tàgguwuma aboo tàgguwul kenn moom moo jël def ko te pourtant ñeneen mën nañoo xalaat que ni c'était pas le président Abdoulaye Wade mais tey bu jëlee tayaat nommé waat keneen ce n'est pas parce que le président Abdoulaye ay encore une fois Tafsir mu ngi ci biir PDS te encore une fois di ngeen gis que ni Tafsir am na leneen sax lu gën li nga xam ne moo nekk. dama lay wax lu am solo. Mhm. dama xëy tey gis article parce que sëriñ nit loo xam ci nit wax ko te yàlla tax te dënnu Tafsir alxuraan da si jiitu mënul fenn. c'est porte-parole le moins bavard. dans toutes les formations politiques dans ce pays tu sais pourquoi. est-ce qu'on porte-parole est-ce qu'on euh, parce que lépp lu muy wax rek. da koy wóor. c'est-à-dire qu'il a porté la candidature en de Karim. il est allé voir Ablaye Wade. ne ko Karim bii laa bëgg ñu def ko suñu candidat. dama lire journal tey ñu ne parce que Tafsir dafa def communiqué. ne dafay jàppale Amadou Ba. c'est faux. non loolu dama ko lire. amul amul amul. c'est faux ce a été dit. connaissance j'ai vu des responsables. quand il a eu sa position. Oh, nit yu nekk ci nguur gi yoo xamante ne ay xaritam lañ parce que ñoom PDS dañ jóge woon. Mhm. ñu bëgg gis ils sont passés par moi. na yow xam nga tafsir. très bien ñu ngi koy jéem a jot jotuñu ko. Mhm. nan la ñuy def pour jot ko. Mhm. tafsir ne man du ma wax ak nit. parce que naa wax ak nit moo ma orienté. très bien Omar. li indi problème entre Karim. ak Tafsir xam nga la c'est des prises de position. très bien. am position mu bañ. ne lii du ma ko def wala du ma ko porte par rapport à la commission d'enquête. il a refusé. merci c'est ça qui est à l'origine d'un parti. voilà on peut pas diriger un parti sur la base de WhatsApp. très bien. alors non non man j'ai défendu le. non non non j'ai défendu le. non attends non non c'est le porte-parole du PDS. c'est clair et quand on est porte non ba muy nekk porte-parole quand on est porte-parole porte-parole parti la. bu parti bi jëlee position bu fekkee yow d'accord ci mais porte parole parti bi nga. mais léegi Abdoulaye Wade mi nga xam moom la pouvoir yi may moom moo demaat jël pouvoir daal di nommé Kébé mais loyauté ak fidélité Tafsir loolu kenn remettre en cause mais président Abdoulaye Wade mhm. li ma lay wax ne la Tafsir fierté wu ñun ñëpp la su respect lañ am ci moom ak considération ku nekk militant PDS mais bu ñu gëmloo nit ñi que ni kenn déggul Tafsir mu wax kenn déggul Karim Wade mu wax c'est le président Abdoulaye Wade mi nga xam ne mooy seul habilité le parti ki nga xam ne mooy nommé moo nommé woon Tafsir tey moom moo jégg nommé waat keneen alors honorable s'il vous nga la Abdoulaye Wade wax xam nga la Abdoulaye Wade wax xam nga lu mu ko wax Omar j'ai dépassé mon temps laaj ma loolu lii laay tëjee lu ko wax Omar. dana ko bu ma la dëggati ngay wax ci micro del wax ci macro. leer na. daanaan euh, euh, la. honorable ma la gisati ngay wax ci ay détails parce que yow dimension bi ak fi ngay waxee foofu foofu merci merci beaucoup Khady dama lay remercier di remercier ni palaato bi demee. Mhm. di rafet lu waxtaan bu baax a baax. xam nga dañ naan mënoo nettali sa gént nettali gént morom. mënoo nekk ci biir parti bëgg a gën a xam parti ba texte yi ak règlement yi muy wax. il faut que aussi am na yenn yoo xam ne il faut éviter cela tey lépp loo xam ne dafay revenir au PDS c'est le président Abdoulaye Wade c'est lui seul qui peut engager le parti quand le président Abdoulaye a pris une décision pour soutenir Bassirou Diomaye Faye on a vu ici ay nit yu génn ne président Wade waxu ko on a ay nit yu fi def ay faux communiqué comité directeur qui ne s'est jamais réuni on a vu autre chose li may wax que ni mooy tey Tafsir avoir tey li ñuy wax mooy que ni lu gën sax li nga xam ne moom la am ci li nga xam ne ci biir parti bi mais bu ñu andi ay amalgame ak andi yoo xam ne amul dañuy ñaanal président Abdoulaye Wade yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu gën fee yàgg et que di ñaanal ki nga xam ne moo nekk suñu candidat yàlla andiwaat ko ci biir réew mi ba ñu mën a yeggalee li nga xam ne moom la ñu sóobu ci sénégalais yi di ñaanal Bassirou Diomaye Faye yàlla defal ko jàmm ba attentes yi sénégalais yi di xaar ci moom mu am ko di nuyu tous les militants et militantes du parti démocratique sénégalais ak waa Grand Yoff bi nga xam ne foofu laa dëkk encore une fois Abdoulaye Wade est le secrétaire général national du PDS. Seul Abdoulaye Wade peut engager le PDS. Seul Abdoulaye Wade peut nommer à certains postes. gu ku mu neex nag nga taxaw nga ni du Abdoulaye Wade wala kële la wala mais jusqu'à preuve du concret c'est la signature du secrétaire général national maître Abdoulaye Wade et je vous remercie merci beaucoup. honorable alors docteur yow itam bëgg nañu am sa avis laata nga tàggatoo. waaw bon damay déplorer quand même. que euh, sujet yu am solo yi fi yi ñu fi mënoon wax. Mhm. en tout cas parce que sur ces débats là il y a yu am solo yoo xam ne mënoon nañ jox ci suñu xalaat xëy na avec euh, le peu d'expérience qu'on a euh, xaw a jox des éléments d'orientation en tout cas pour sénégalais yi ñu gën a comprendre mais on est on est beaucoup rentré sur les gens sur les. alors que il faut aller plus en profondeur mhm. euh, ci liñ ci wax nag man euh, dama am quelques éléments yoo xam ne bëgg naa ko partager aussi avec euh, ñi fi toog ñekk avec les sénégalaises et les sénégalais euh, pour également donner un peu quelques orientations ci li ma xalaat en tout cas ni réew mi war a doxee par rapport aux aspects de rupture également yi nga xam ne war na fi ñëw ak espoir créé d'abord un Euh, je pense que c'est Kader qui a posé la question concernant euh, le budget du Sénégal. Sénégal, c'est 7 000 milliards. Alors, 7 000 milliards euh, avec euh, une croissance boo xam ne projetée à l'origine à 10.3 mais su ngeen gisee li xew avec le pétrole il y a retard euh, à ce niveau-là. Donc, la croissance dafay war a et peut-être que. elle tournerait autour de 8% à peu près, ce qui est quand même euh, très bien, acceptable vraiment pour un pays comme le nôtre, parce que yàggaguñ fa musuñ musuñ fa euh, yegg donc loolu lu am solo la ñaareel bi itam euh, dañ fi poser question yu bëri e bon y a eu beaucoup de mélange de genre mm-hmm. euh, surtout concernant li ñu naan le bilan matériel et le bilan immatériel boo ko mélangé rek mm-hmm. nit ñi duñu comprendre bu baax Euh, li euh, li ngay wax et puis doo focus sur euh, li nga bëgg génne comme comme élément su ma nee tey dans le cadre purement du du du bilan matériel foofu laay génne un peu les aspects de croissance les aspects de réalisation et perspectives yi nga xam ne président de la République mën na ci sukkandu pour pour def ces ces bu ñu jëlee tey des aspects importants parce que ñu ngi naan lan mooy solop dans un régime présidentiel mu am euh, un contre-pouvoir il faut savoir que partout dans le monde dans les cent quatre-vingt-quinze pays yi nekk ci système Nations Unies le contre-pouvoir le plus le plus à même aujourd'hui de de de de de de contrôler d'orienter le gouvernement et surtout le l'exécutif c'est l'Assemblée nationale foog ñu xam loolu déjà Et le rôle de l'Assemblée nationale est important. Euh, au mois de septembre, on, devrait faire ce qu'on appelle euh, la session budgétaire pour voter budget Sénégal. Li nga xam ne loolu la ñu mettre en œuvre budget Sénégal euh, qui a été voté et c'est sur la base de 7 000 milliards que le président de la République doit dérouler. Uh Et dans ce cadre-là foofu la politique publique yi di ñëwee c'est-à-dire maanaam ministre bu nekk day ñëw teg ne man lii secteur commerce lii la proposé kii ne éducation lii la proposé kii ne santé lii la proposé ñu compiler ko mu nekk le budget global et après cela il y a ce qu'on appelle la loi de règlement et la loi de règlement aujourd'hui est à jour pas de règlement mooy lan mooy maanaam bu fekkee ne moo tax mu y a un rôle important éminemment important aujourd'hui des députés et il faut augmenter de mon point de vue seen seen seen pouvoir parce que soo augmenter seen pouvoir rek comme dans certains pays sax y a des yoo xam ne c'est des régimes parlementaires boo demee à la Angleterre boo demee euh, Canada et cetera euh, loolu mooy permettre aujourd'hui képp koo xam ne yow ministre de la santé nga lii nga proposé ñu ne la ñu voté le budget nga dellu si ne budget bi fii laa ko dugal boo paree ci loolu Assemblée nationale aujourd'hui à la latitude de faire ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques maanaam day xool càmbar xool ne que ah li nga proposé fi nga ko dugal baax na waaye mën nañ ko évaluer xool ndax est-ce que am na neneen loo xam ne waroon nañ ko mën a utiliser pour que sur le plan sanitaire mu am plus d'impact je donne juste l'exemple de la santé euh, santé lan la d'abord prévention mi ngi ci offre de soins mi ngi ci maanaam naka la ñu tegee ay infrastructure naka la ñu amee euh, recrutement yoo xam ne ay médecins la ñu recruter ay pharmaciens ay chirurgiens dentistes ay infirmiers et cetera donc loolu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy li ñu naan aspect offre de soins aspect sanitaire d'une manière générale te loolu suñ ko tegee nga évaluer ko da nga naan ah xëy na jóge nañ ci mbirum infrastructure nañ dañ ko dañ ko gën a pousse si ba yenn orientation yi te par exemple ñu ne personnel bi dañ ko yokk naka la ñu fexee ba yenn soins yi gratuité yi am et cetera donc yooyu yëpp c' est des aspects yoo xam ne c' est important ñu ñu ñu saytu ko wax nañ des aspects importants je sais pas si le temps hein, mais xaw ma parce que yaa ngi may <laughs> je le temps mais je pense que c' est des aspects importants yi ma gis yu génn fii uh-huh. bu ñu nee le coût de la vie gis ngeen le coût de la vie dañ def ndànk parce que le coût de la vie dépend de beaucoup de choses maanaam njëg li njëg li boo jëlee réew mu mel nii Sénégal bokkul ak Chine tey bu ñu jëlee Chine dafa am noo xam ne noonu la laloo woon Sénégal ni mu euh, Chine ni mu meloon à l'origine ñoom daanoo jógee sax sa région lu am soo sooy jógee mhm. Kaolack war a dem Ndakaaru amoo droit même en en tant que chinois amoo woon droit bu njëkk pour lan ku si nekk dañ la naan li nga xam ne moom moo nekk sa zone te consommer ko. donc ñoom dafa nekk benn usine du monde nekk producteur non seulement dañu produit pour ñoom ba ba ba pare ba pare di exporter. Sénégal aujourd'hui yegsee guñ à ce niveau là xëy na dina yegsi euh, sur la sur la base des mises en œuvre de politique publique. Mhm. bu dee loolu dafa am ay aspects yu important on importe beaucoup bien dina indi une partie des recettes parce que dans le cadre des recettes su ngeen xoolee les recettes par exemple au niveau douanier dafa bokk ñun li ñuy voté ci set milliards yi mhm. donc loolu yëpp bu euh, bu amee dafa am élément yoo xam ne dañu ko war a war a saytu xool naka la ñu naka la ñu fonctionner parce que lu bëri tey pour njëg li wàññeeku su fekkee ne njëg li dafa yokk fi ñu koy jëndee mu yegg si ba fii fokk nga jël ci gafag ak réew mi ci sept mille milliards yooyu nga ko ci dugal tous les jours pour que sénégalais bi nga xam ne dafay jënd ceeb day jënd diwlin day jënd day jënd day jënd gaz Euh, sëñ Saliou wax na ko dafay dafay consommer carburant parce que carburant lu am solo la carburant bi moom ngay dugal ci yeneen moom ngay dugal ci car moom ngay dugal ci transport bi et cetera moom moo mën a wàcce wàcce ki yooyu yëpp dafa am yoo xam ne danga ko ci war a dugal pour stabiliser prix dafa am ay engagement yoo xam ne da nga koy jël aussi avec les bailleurs Euh, les multilatéraux Banque mondiale Fonds monétaire international yoo xam ne obligatoire foog nga foog nga foog nga mettre ko en nga am dette ay bor yoo xam ne obligatoirement dafa am service de la dette chaque weer da nga koy fay donc soo xoolee le budget il n'est pas extensible mm-hmm. mais il y a des choses yoo xam ne mën nañ ko améliorer c'est pour ça que je dis suñu waxee ne par exemple à un niveau HCCT 16 et cetera am na ay ressources yoo xam ne day dugg foofu te ces ressources la additionnelles maintenant mm-hmm. lañ mën a xool fan lañ ko mën a yokk pour waa ñi njëg li pour xool mbirum santé fan lañ koy avancer et cetera vraiment moo tax bon on voulait développer parce que quand même euh, avec avec euh, l'expérience alors beaucoup de choses yoo xam ne mën nañ ci mën nañ ko partager ak euh, ak ak sénégalais yi mhm. mais c'est c'est dommage maa ngi maa ngi tooñ Fatou Abdou ma ne ko bon c'est un peu un débat de chroniqueur parce que y a beaucoup de choses yoo xam ne bëggoon nañ ko wax je termine par une chose je termine par une chose pour que ñu xam naka la naka la état di doxe boo boo jiitee réew dañu naan da ngay def li ñu naan euh, politique publique maanaam politique bi nga xam ne boo ko tegee moom mooy dem ci doomu Sénégal politique publique ni muy doxee nag euh, dafa am élaboration mise en œuvre suivi évaluation booy élaborer politique publique li njëkk li ngay teg mooy identification des problèmes publics tey le problèmes publics majeurs mhm. dans un pays comme le nôtre di ne tout de suite naka ngay fexe ba régler problème inondation la campagne arachidière mm-hmm. la campagne agricole d'une manière générale les, les, tout ce qui tourne autour et qui, et qui nous font perdre beaucoup d'argent tout ce qui tourne aujourd'hui autour des embouteillages les infrastructures yooyu yëpp mm-hmm. soo ko identifié nga teg ko si sa agenda évaluer ko sur le plan financier est-ce que yow li nga yore mën na ko duggal mettre ko en œuvre soo ko mettre en œuvre ba pare nag nga def ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques et Sénégal dafa dugg mm-hmm. dafa dugg euh, c'est important li may wax dafa dugg si li ñu naan budget programme non il faut ñu comprendre ko ça fait deux ans que le Sénégal déroule ce kon appelle un budget programme loo xam ne la dafa nekk une révolution particulière parce que au niveau sous-régional Sénégal rek actuellement moo koy def maanaam budget ministère yi bu njëkk dañ laan sa budget lii la danga ko war a dépenser euh, ba ba kii bi jeex ba bu année bi jeexee war nga ko dépenser lu si des da nga koy delloo ci ci caisse état léegi c'est différent léegi le ministre concerné dafay ñëw ne man samay objectif lii la maanaam bu dee mbirum faj dinaa tabax hôpitaux yi nii lay toll dinaa recruter lii dina am en terme de mise en œuvre gratuité yii dinaa ko ci dugal du césarienne dina am gratuité euh, euh, nu mu tuddati euh, tout ce qui est également accouchement day am gratuité nga ne sa budget lii la sa programme lii la da nga ko war a mettre en œuvre sur la base de ce de ce budget là c'est là-bas où ki nga xam ne moom mooy jël en charge un état à savoir le chef de l'état bu tegee objectif yi ne ah sur ces objectif la il y des aspects yoo xam ne objectif bii de xëy na du prioritaire mën naa ko changer parce que sénégalais yi lii lañ soxla ma changer teg ci leneen et ça ça permet dans le cadre du budget programme qui est déjà en place de pouvoir changer un certain nombre de choses mais ça peut pas être une une une, une révolution totale bon comme j'ai dit c'est dommage beneen yoon xëy c'est très très important euh, occasion du ñàkkaat pour ñu gën a yaatal en tout cas merci d'être venu docteur ñu mm-hmm. bàyyi la nga tàggatoo voilà de ñi ngi euh, tàggu doomu Sénégal yëpp comme ni mu ko waxee rek di féliciter le peuple sénégalais euh, ci maturité am ci euh, vraiment gis nañ que ne Sénégal am na ndam d'une manière générale parce que foo dem tey mhm. te c'est c'est c'est un aspect important parce que dañu dañ dañu naan ñi ñu jëppi bu ñu jëppante te bu ñu nee ñu ñu jëppi bu ñu jëppante ñun doomu Sénégal yi nekk si di euh, euh, si si àdduna wërngal këpp man gis naa ñu bëri ñoo xam ne euh, du ñu sénégalais duma leen tudd ay ay ay c'est même des des partenaires parfois ñoo xam ne ci sous-région bi de dañ doon dañ doon ñaawal Sénégal ni ah sénégalais yi de vraiment ak li ñu wax yëpp li ñu kii yëpp ñu ngi mel nii ñun mais meluñ nii ñoom cest à fexe nañ ba wane ne meluñ nii ñoom donc je pense que ça c'est des aspects importants loolu peuple sénégalais bi vraiment lañ ci lañ ci félicité di euh, di ñaanal président Euh, nouvellement élu président euh, Bassirou Diomaye Faye mu am des résultats probants également di ñaanal président Macky Sall euh, sur sa retraite mu euh, am une retraite euh, de paix avec une santé de faire te également muy effectivement continuer di di joxe des conseils aviser à, à son successeur je pense que c'est ce que fait le président Abdou Diouf le président Abdoulaye Wade et loolu moom mooy Sénégal parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xarñaan maa ngi maa ngi leen di gërëm di leen sant en tout cas merci beaucoup ñuy remercier suñu ñaari invité yi ci euh, suñu invitation bi ñu accepté ñëw ak leeral yëpp yi nga xamante ne indi nañu ko accepté euh, tontu suñu ay question ñu jaaree foofu amal une courte pose encore dellu siwaat léegi incha allah seen émission Grand des émissions Ramadan au Sénégal fii ci Sen TV la chaîne leader ànd ko kalpe bi gën a yomb gën a leen di ñaanal kooru jàmm Orange Money est un service de Finance Mobile Sénégal Orange Money. Nescafé ndogu bu sell ànd ak cawarte bridel meew nag pire bi ngeen taamu bi gën a neex Ecobank la banque panafricaine ak Yassir application bi lay yombalal say déplacement sa lekk ak say course ci njëg bu yomb Sénégindia numéro ci wàllum ci Sénégal indil ci villa E résidence Évoque ca Bourguiba hôtel Via Blisi Millennium City ca Njaaxirat ak Tulip City ca Bambila Canal Plus dundu leen korgu sell ak chaîne yi gën Beko bi leen indil gamme électroménager bu yaatu Matidi pionnier du luxe africain depuis dix ans ak Sedima bi leen indil poulet terral cent pour cent local cent pour cent sénégalais cent pour cent halal Lama boutique indil leen bazin Fusuneger cent pour cent coton basin bu am brillance bu amul fenn benn motif pour góor ak jigéen bijouterie la solution wa jigéen boo koy bégal la seetil or bijouterie la solution yu bees yi mu indi amul fen Sen TV ak i partenaire am ñoo leen di wax Ramadan mu ren mooy suñu deuxième édition li ñu ne loo def daaw mu jig la ren danga koy defaat ci tàbbali ko ngir gën laa jig defar ay ndogu ay sandwich yi nga xam dañ koy séddoo ak doomu aadama yi Sedima ñoo ko bokk lañu donc ñun lépp lu nga xamante ni tey jii mi ngi ruusee si li ñuy jaay dañ koy jël ñu koy bokk ak doomu aadama yi 02. Vous voulez un style de meuble unique, des produits pour ay chambre à yu raar fii la am ci Touba ameublement. ñu ngi ci rue 3 angle Blaise Diagne Médina en face stade Iba Mar Diop. téléphone 77 431 03 03. Touba ameublement. Nous vendons ce que nous fabriquons. Nous fabriquons ce que nous vendons. attention arrivage yi yegg si na ah gaañ yu baax ñi jigéen ñi xam nga lan la ñu bëgg or jigéen ku koy bëggee loo koy jox or bijouterie la solution madame ñoo aji caam wàccee yu bees tax tax yii mi ngi nii di soog a egg si waaw waaw bijouterie la solution nekk sacré cœur boo ñëwee ba boulangerie jaune da ngay jël ko ñu SDE bi daal di ñëw ba bijouterie la solution bu dee ci VDN bi nga jógee nag alignement juma sacré cœur la kon nag jigéen ñi ñëw leen xool góor ñi ñëw leen xool bijouterie la solution 78 388 61 61 wala 77 720 27 27 wala 78 100 53 53 bu la neexee nga jël rendez-vous pour vente privée ñu yëgal ci kaw tegal la say bijoux au 77 554 58 62 foofu ngay jëlee rendez-vous pour vente bi xanaa ay wax day jeex. ama boutique dafa dem jëli la ko bazin 100 pour cent coton ñu naan ko Fusneger éminent bazin bu am brillance bu parfait bazin boo xam ni ba ci troisième ak quatrième lavage day am brillance même six mois après le lavage waaye bazin Fusneger yamul foofu de lama boutique dafa dem jëli qualité indi la ko mu am motif yu rafet bazin Fusneger noblesse nag mooy daj dëpp gi 55 de coton de viscose dawal gaaw laama boutique

jumtukaay yëpp la ñuy ci xew yu mel bàyyi nañu ci xel waaw waaw ak lii tamit bu leen ci am xel ñaar lii moo tax ñuy saytu ngir ñu jëfandikoo ko nii def nañu suñu kéemtalaay kàttan ak saytu dëgër laay gi ngir dund bu amul benn coono ba béykat state of mind Hey, c'est fini ça. Fini les chauffe-eau avec les réservoirs encombrants. Conçus en miniature et aux États-Unis, les chauffe-eau EcoPro allient commodité et esthétique. Avec une installation simple et pratique, les chauffe-eau EcoPro embellissent vos salles de bain et vous fournissent votre eau chaude selon vos besoins. Leur système d'automodulation basé sur les technologies les plus avancées vous permet d'économiser de l'énergie et de l'espace. Car les chauffe-eau l'énergie nécessaire dont vous avez besoin. Il ne s'allume automatiquement que si vous avez besoin d'eau chaude. Un seul de trois salles vous assisteront de l'achat à l'installation avec une garantie de 12 mois et un service après-vente pour vous satisfaire. Les chauffe-eau pour rendre votre bain plus savoureux. Nous sommes au 134 sur la route de l'aéroport 886 46 46 33 820 88 44 ou le 77 492 87 87. téléspectateurs ci seen dernière euh, partie GP le grand plateau euh, ñu fas yéene nag wuy euh, ganu Cheikh Mbacké sa gan yi egsi nañu jërëjëf euh, Khady lu gan yi exclu maa ah. ci guddee gi ndax xam ngeen ne laayeen yi ñoom dañoo am benn tradition propre à la communauté laayeen mooy dañuy def euh, dañooy son ay ramadan lovers mooy sopp ramadan oh. guddi gu nekk dañuy xadara ba fajar di zikr ba fajar ñu dem bi bis bu nekk uh-huh. nga xam ne si naa limaamu dafa waxoon ne uh-huh. guddi gépp nañu koy màggal ndax la nuit du décret mu leetu xaat dafa ne ci weer wi uh-huh. donc muy taxawaayu am solo xam naa bu ñu jógee fii dañuy dem directement xadara donc 30 euh, jours yëpp dañ koy xadara kon nag ñu ngi leen sant baax di leen gërëm Abdoulaye di la jaajëfal bu baax di jaajëfal Mantulaay ci bundooy mi nga xam ne dox na ci doxin bu am solo kon xam naa rek euh, ku guddee doo guddal euh, sëñ Ablaye kon saxaar bu jubee gaar koorne maa ngi nuyu waa Yoof waa Cambérène ak waa Jamalaay laay sama xarit ñaari jëmm la am ci déet ñaa nga na ñëw ca kaaw ba Mamadou Saxiir nee la chion gëm ni moo di limaamul maadi yu mi wara am sidina limaamu laay gaaña yërinte bat ba ñi na mooma ñi ne du moom ñi ne ku dem le mooma nan santa bay laay minu teeroo taani leeral na sooki buldaani Sidina Limaamu leeram nga jolli naa ba dem bay daani tey jii ki na réeré tulli am soodaan moo toj xërëm ya dàq tuur ya fa ne woon tuuru xamba ya wesaare ndaa ya ka defoon saxal fi wéetal yàlla mi laawoo ci baatu laa ilaha illallah mu nga naa mi ndefi yeewu leen jant feeñ na yàlla ma yónni jaamu leen mbir feeñ na man maay limaamul maadi mi ngeen doon seenu ñëw naa na ngeen tuub si te may noonu gaañe werante baat baa ñi na mooma ñii ne du moom ne ku dem lee mooma ñi naa nan ka jàppa i dammaat ma bu dellu si dente deewul mooma Seydina Limaamu Laay bu laabu jokkee mujizaat muy maya muy def lu lottal gaaya di daaneel mbër ya ku musa naw sa mbër ba àgg ca Seydina Limaamu Limaamu nërmel ko ci suuf ak darajaam bu ko libaas ëffee mu dee ca waxtu wa ba dootul yëg lépp lu xew ca waxtu wa ba saa yu soobee Seydina Limaamu muy ka kaalaam waaj a jug di yéemu rekk waay bu leen wut te limaamu laay ma ci àddina ndax kenn mësula def lii mu fi def ci àddina ku dul yonen limaamu nee na dàllam waa moo ko solaat woote te dugul xalwaa alaaj Mamadou Saxiir nee na li tax ma ni limaamu maasam amul ci àddina ndax ñii dañuy xaatim di yëpp ci suuf tabaay laay utul kàggu gu muy seen laaj yaa ubbiw lay téere di xool maanaaya jàngul bindul yàlla ko muy woote ci coobareem ku yàlla yee doo fàtte ndax aji boo daaye laay du wax joo xam ni mbindéef mu jóg wax ko ku dul xam ni yàlla ka wax loo ndax ndaxte wax ko waat la bu leen werante waat wu jëm ca yàlla ginnaaw rusulullaay déggu leen koo xam ni taxaw na wax ni yàlla moo ni yónni ku dul imaamul maadiyul muntadaro yàlla di gëmloo ku ko sobbul xataru ñii naa jinne ko jàpp waaye muñ leen feek ñetti at dootu fi sax naa wuyu leen baatam bay sax waxam njay yokku te bu yàlla sàkk nit ñay yokku caama rasin la a yaxaloon de judduk mahdi yu moom la gisoon ak rasin la a yaxaloon de judduk mahdi yu moom la gisoon at maa di junneeg ñaari téeméer teg ca juróom fukk ak juróom tëji wax aw ca ca xutbullaahi saaxibul irfaani moo ko yaxal ku nuy woowee sëhraani caat ma mu waree juddeeg léegi Mamadou Saxiir nee na ya teg na boobaak léegi waa ahlu laay ñu dellu sant rabbana moom ki dogal nu gëm li baas ya dinaaw bisub dimaas la mbir ma ñëw ca moom Seydina Limaamu Laay dimanche matin la mbir ma ñëw ca moom muy ki ca kaw kàllaama tax ni din ca kaw di santalaaw rabbana naa jant feeñ na yeewu leen waxaala naasu wal ixwaan jinne ko jàpp sangi leen ko fi awsaani jaddina ndi yaay ja dem ca mbaar ma toog waa mbaar ma naa ko doo fi toog fajil limaamuy doora toog sa doom ju baax ja Amina di yaay ja ñëw limaamu naak waa penc mooma ñu nga naa limaamu dof na jommi naa danoo gëlëm fi amri naa bàyyi laay naan di yaayam góor gi mbiri ci man boo bëggee xam wutal yóbbal nga jóge yoof jublul ma màkk boo yeggee nee am naa kook jommi naa limaamu moo diw turam laq na arbaïnaam quarante ans man de yiim naa ci mbiram kon ñu solo la am ni yaay janaa ko lottanaa ci loolu xaala seydinaa limaamu ilisi ndanaa laa tastamiya jwaalanaa seydinaa limaamu laay maam jiin amoon na fi milaan moo xam ni punkal munu daa naw boo ñëwee sangoo malaan ma dootoo dem naa lottanaa ku weddi laajal ba imaamu yónnee ndakaaru taalubeem ba ñuy wax mamar binta te moom booba dooleem ja yéemu na ba mu njëloo mamadu saxiir nee na mu juum yóbbaale na malaan ma dem ba paase doon julli suba sangoo ka lépp a fàtte naa alaaj Mamadu Saxiir nee na foofa la rot ca suuf ca suba am ñu jóge yoof doon dem ndakaaru seen mu boof foofa ñu yem ilahana ñu ñëw soloo ko siidina limaamu njool ma na milaan ma waaju jugtana subhaanallahi rabbina yi muxtisaat musuñu koo gis déggu noo ku ko jagoo ginnaaw ba yoon nen sangoo suuf ñibbi néegi aljana Seydina Limaamu Laay koy di laajal taalibeem ba njiin doon yedda tax ba moom mu mer banaa man maa ngi dem ak di mu li xiwaani naa mu dal di yen waxandeem limaamu laay ni gaañi ndeem tànkam bi jóg na foofu dem duma imaami rabbina mu yenu yen ba di taxaw ca suba ba ngoon mu taxaw ba ñëpp tëddi mu taxaw yii mu ji daaj kay yéeme na ca xaaju guddi ma ñëw ca moom ni ko ëf mu nelaw ba mu xëyee ca suba ñëw naa tubtu yaa imaamana yii mu ji daaj musunu gis déggu noot ku ko jagoo ginnaaw ba yoon nen suuf ni bi néeg yàlla jana ku weddi laajal ba dammeel ba ñuy wax Samba Lawbe Faal yónnee ndawam ni ko demal yoof cay maami rabbina alaaj Momar Saxiir nee na dameel nga naan boo ko gisee nee ko dameel nee gént na ba jàqalool ca la mu gis tekat waxul ndaw la lu neel gént naa libaas ni ndaw li boo delloo nga ni dameel ba mu jullee geeweg tam xarit ca julli ñaari rakk ci yaasina alaaj Mamor Saxiir nee na Seydina Limaamu Laay nee na ndaw li neel dammeel rakk bu nekk jàng na ca juróom ñaari yaasina ginnaaw faatixa yi nee na ci istixaari rabbina ba mu tëddee la gént a gis ñu jokk ñetti mbuus fees dell deret te du jaas moom la gisoon ba jaxanaa mu séddale réew mi ñu naan ca men na moom donga mu naan meneen ma moom la doon yónnee di laaj fi fattina yi mujizaat musuñu ko gis déggu noor ku ka jagoo ginnaaw ba yoon nen sangoo suuf ñi bi néeg alhamdulilah xam naa ma dem ci mama mu séddale xéwal yi mhm. ñi nga xam ne ñooy bigg si dinaa limaamul mahdi ak waa réew mi nga xam ne ñooy topp grand plateau mama voilà noonu la euh, Cheikh donc euh, mën naa duggaat ci Facebook live bi comme ni ma ko defee woon sànq. Mhm. Euh, nee naa leen numéro serveur bi 88 la 628 89 90 ngeen bës 2 wala 88 628 28 28 wala ngeen dugg suñu page l'officiel Sen TV daal di fay réagir. Mhm. commenter partager ak aimer comme sa ma jox leen ci xéwal bi mën naa ko continuer ak awalo awa sa numéro téléphone nag mu ngi nekk 77 404 14 ak lu ci topp 25 000 francs Diaw su ma jógee ci awolo daal di may euh, faatu Fall faatu tamit enveloppe euh, bu 25000 francs si yow sa numéro téléphone mu ngi nekk 78 315 12 ak li ci topp voilà donc 88 la. 628 89 90 ngeen bés 2 wala 88 628 28 28 di jaajëfal bu baax a baax sama ay partenaires yi nga xamante ni euh, ñoo jàpp ci euh, liggéey bi euh, ku ci mel ni Orange nee naa leen seen ay transactions bi ngeen def par Orange Money boo leen ko defee ci application Max It di ngeen mën a am gagné ci suñu ay sukkaru koor 2000 francs ba jëm kaw boo leen duggee tamit ci suñu ay boutique Orange daay def seen ay achats d'une valeur de 50 000 tamit mën ngeen gagné sukkaru koor bu mat 10 francs parce que Orange 1 million ci table bi pour ay clients juste pour bégal leen comme ni ma taamu di ko defee euh, chaque euh, mois de Ramadan. Mhm. su ma jógee ci Orange daal remercier bu a baax Nescafé mi nga xamante moom la ñuy séddale sànq ba tey. pour euh, nekk en pleine forme mu nekk macha allah café boo xamante ne kenn dootu ko présenté te mu neex lool on commence avec Nescafé et on finit avec Nescafé. Bridel qualité incontestable 100% lait frais de vache riche na bouteille bu mag bi am na bu yem am na bu ndaw bi cinquante centilitres bi su ma jógee ci dara jaajëfal bu baax a aussi euh, jus Presea mi ñu andil jus yu neex yi jus naturel yi avec de vrais fruits mu bari lool ay saveur tànn sa bu la neex la bu tàngee neex waaye bu seddee aussi mooy dàkkati amoon tamit canette bi nga xamante ni euh, macha allah mu ngeen ko gàddu di ko doxantoo fu nekk baax na ci xale yi pour seen ay petit déjeuner wala seen ay goûter Beko mi nga xamante ni euh, macha allah mooy marque numéro en Europe allo. alo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi bu baax a baax. Euh, dégguma bu baax waa tur la. dégguma. Alaaji Daabo. Daabo. waaw. fan nga ñuy woowe maa leen di woowee Tamba. fan. Tamba Tamba. ah naka waa foofu Alaaji fi nga dëkk sori na. waaye dëkk nga fu neex tamit. Oh, waaw waaw waaw. waaw dëkk bu neex waay. waaw mais moo seen plateau bee ko gën a neex. <laughs> plateau bi xanaa gis nga nu mu yànjee. macha allah Jesner yeeg. waaw waaw Precia yeeg. ah Bazin Fusneger la. Fusneger. Fusneger la koy tabi xam nga lan laa bëgg. Ah, ah nga jóge Tamba ñëw Dakar. ah dem Lama boutique. waaw jënd Bazin Fusneger gi basin bu neex la bu nooy ci yaram waay. incha allah xam naa dafa yu dépassé ma. xanaa da nga may yónnee bi rek. mais bien sûr dama lay may vingt cinq mille. nga daal di ñëw Dakar dem Lama boutique jënd bazin Fousnégueur. incha allah ayca jox ma sa numéro téléphone Alaaji. sama numéro 78. 78. 685. 685. 49. 49. 54. 54. waaw 78 685 49 54. 54 waaw. jeex na dinaa la yónnee 25000 francs par orange monnaie. bul ma nar de ñëwal Dakar jënd basin Fousnégueur bi dégg nga. loolu laay def moom laay sàncee ci korité bi. kon jeex na kontaan naa ci yow El Hadj Dabo. est-ce que du ma ñëw ñaan ci la sax. kan man <laughs> ñëwee nga. <coughs> Mm. alaaji waaye mu waxaale wax si soxla. waa alaaji. allo euh. maman. oui ma chérie. man la man la Ndeye maa la woowoon démb man maa dëkk Kaolack. sama réseau fii moo baaxul. Euh, Ndeye Ndeye yaa woote woon démb. waaw sama réseau bi baaxul fii. Ndeye ndey Ndeye naka du ndey fal wala. waaw ah Ndeye Fall jàpp naa sa tur bi nag Ndeye. léegi ma jox la numéro bi. waaw jox ma sa numéro ma daal lay yónnee. 77. 77. 140. 140. 91 35. 140 91 35. 35 waaw. ok Ndeye Fall 77 140 91 35. ay. nday dem nga mais yor naa sa numéro nañ la yoon de euh, vingt cinq mille francs incha allah bu ci kanamee léegi ayca maa ngi tolloon ci Beko nee naa leen Beko euh, daf ñu àndal benn gamme électroménager bu yaatoo yaatu euh, lu ci mel ni ay réfrigérateur ay machine à laver ay lave-vaisselle ay cuisinière professionnelle donc képp koo xamante ne bëgg na équiper këram rek mën ngeen dem showroom électronique corps bu ko defee ngeen mën équiper seen kër ak ay produits Beko jaajëfal tamit Canal Plus mi nga xamante ne weeru koor gi yëpp macha allah mu ngi ñu gunge ak ay chaînes yu neex du ñu wéet benn yoon et euh, Mati di tamit euh, ñu moo ñu accompagné dès le début mu nekk une marque spécialisée dans la fabrication de montres de sacs à main yi nga xamante ne fi Sénégal lañ ko defaree et maroquinerie de luxe au design africain pour hommes et femmes euh, donc gis ngeen plateau bi ñu ñëpp marque yi ñu sol montre bi muy marque Mati di gis ngeen sac yu rafet yi nga xamante ne macha allah foo leen dem rek mun na ànd ak sañse ba ngeen munti sol donc képp koo xamante ne bëgg na ci sac yi ak si montre bi ci korité bi nga xamante ni ma ci seen boutique bu nekk euh, ville ci avenue Lamine Gueye bi si Plaza am nañu benn Mermoz am nañu benn euh, zone de captage am nañu benn mais Saly aussi am nañ fa benn boutique wala ngeen dugg seen site internet def www.matidi.com di remercier aussi Sedima mi ñu àndil la poulet teral poulet 100 pour cent xalal 100 pour cent sénégalais et naturel mu nekk poulet boo xam ne dafay ndimbal jigéen ci biir waañ parce que dafay noppal jigéen te dafa neex a toggee tamit euh, macha allah. Lama boutique ci bazin Fousnégueur bazin 100 pour cent coton euh, bazin boo xamante ni macha allah dafa am parfum oud bu neex a neex euh, ñu defaree ko ak benn matière boo xam ne dafa mën a adapté wu ak climat wu Sénégal Korité baa ngi ñëw ñëpp war a sañse ci bazin Fousnégueur bi donc képp koo xamante ni bëgg na ci. mun ngeen dem HLM juste en face euh, guy gi couleur bu nekk am na am na pour góor waaye am na tamit euh, pour jigéen Touba ameublement ci décoration plateau bu rafet bi képp koo xamante ni euh, bëgg na décorer këram wala équiper këram ci ay chambre à coucher ci ay salon ay table à manger lépp loo xam ne dafa yanjal kër daal boo ko bëggee demal Touba ameublement doo ko rëccu benn yoon waaye tamit Yassir ñu leen jaajëfal lu baax a baax mu nekk application boo xam ne daf ñu yombal suñu suñu vie au quotidien si seen si seen ay service de livraison voilà donc ci biir application Yassir bi d' abord da ngeen télécharger application bi seen téléphone mu ngeen ko télécharger par App Store wala par Play Store boo leen duggee ci application Yassir bi euh, vu ko Korité baa ngi ñëw te xam naa ne fi ñu toll nii embouteillage yi bari na ci dëkk bi mbedd bi tàng na marché yi xat na mën nga toog fi nga toog dugg sa application Yassir ba supermarché daa di fay nag def sa ay courses ravi def sa ravitaillement bu ko defee nag livre moo la koy andil sa biir kër te doo ci bouger benn yoon et la livraison elle est gratuite durant durant tout le mois de Ramadan. donc profitoo leen ci euh, weeru koor bi def seen ay ravitaillement ci application Yassir Khady Colonel. très bien maman euh, dama lay bàyyi sax nga jaare noonu tàggatoo balaa ñoo yëkkatiwaat ñu ñu ñu euh, tàggoo ñu ñëpp. waaye maa ngi leen di remercier bu baax a baax di kontaan ci ci plateau bi tey donc je vous donne rendez-vous demain incha allah. ci ay xéwal ci sañse yu nice ak sumay partenaires. mu ngoog à demain incha allah aussi bu baax a baax euh, Bamba Couture moo fi jaar tey ci tenue bi. Ah, très euh, joli Bamba Couture euh, képp koo xamante ni nag bëgg na ko jot ci période Korité bi mu ngi ko jot 77 419 32 32 pour sañse yanji yi. Mhm. ak Diarra Beauty aussi pour la coiffure Aïcha Salon Maam Awa Mbaye ci coiffure bi ak lépp. Mhm. en tout cas c'est très joli et dafa méngoo ak thème bi ñu jël tey ci suñu nabiyan yi. macha allah <laughs> Mouhamed Diop merci. merci beaucoup Khady on euh, euh, peut-être euh, demain et puis remercier Yastor mi fi mhm. démb annoncé naa ko nee naa fan yii yëpp ci Yastor laay génn. Mhm. Euh, avec tenue bu rafet bi ñu bëri xamuñu day defar tenue homme. donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax. elle est au 77 066 34 98 moo génn fu fu tubarkalla fu simple fu yaañu fi donc merci beaucoup et merci à nos très chers à nos ngoog Mouhamed merci beaucoup et rendez-vous euh, demain incha allah alors Cheikh Bakki xam naa dama lay mujje bu ko defee boo tàggatoowee rek ñu yëkkatiwaat. Euh, mhm. man it may euh, remercier bu baax déjà téléspectateurs yi on doon ñun depuis tout à l'heure di ñu seetaan remercier également. ki jaar tey ci euh, tissu bi muy euh, Adji Badiane di kenn ci sama jëkkër yi ma koy remercier bu baax a baax Adji euh, mën ngeen ko contacter ci 77 420 44 64 77 420 44 64 mu jaay leen ci xeetu tissu yu nekk am na ko tissu yu rafet yomb macha allah teg ci raar bijoux yi bijouterie la solution maman ñëw na si assez largement pour la couture ça change pas Pape Bey le jeune tailleur moom moo fi jaar di ko remercier bu baax baax a baax remercier Papino waaye remercier Modou Clando bi tax ma ciy teel a jot <laughs> Jacques macha allah sañse jekk na de man soxna moom i Kébé. Asta Binta Aram te jeeg bi moomu sañseel waaye nag euh, maami Chérif Ousseynou Laay daf na woon aajiboo daay la man la woon démb ci der bu weex bi man la tay ci der bu ñuul bi kon Serigne Bachir Sack Laay ak mantalaay ci bu ñu ak Fatou Laay Mbaye Diop ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dolli yërmande euh, di ñaanal maam Baye Ablaye Thiaw Laay mi nga xam ne waxtaan si moo Baye Abdoulaye Jamian wala tafarraxoo moo ko dëggal. soo duggee danga fa gis ñëpp maam Cheikh El Hadj Malick da nga gis Serigne Cheikh Amadou Mbacké ni Fatma sama turandoo Laye Makhtar maa ngi koy ziare sëñ Abdoulaye na na na laay ñëpp bég tey bismillah فشدت الدوخ قد يغني عن البشر ndeysaan moo tax samaam ñëw ba dem ñi ëpp réere mbiram yaa baaxi sa durari yow kaay ma wan la bu piir bu kenn raxul te du xuur jawhër la xel lu ko daj daj bu leen ko way ci xalam koora ak ko ji jëlal baxru tawil basit ci xalam Sërif Abdoulaye baayu général bay njiin bu leen ko xalam koora ak ko ji gëstul ma baxru tawil basit ci laa ko xalam ndax maam njaani woon bàyyi leen xàccoo ko fecca di way moo tax ma gëstu arut ngir njee ma way xalifaam Sërif Abdoulaye dem na Baay Abdoulaye yow laay wayantoo alaaji abdullahi yow laay wayanto mbokkam ma gaynde Fatma ak seexu tiijaan si tudde na leeni doom abdullahi mu baax mi naka noonu abdullahi di baayam mu baax baax Mansoor gayit sawaay Abdoulaye mu baax mi Seydi Abdoulaye jërëjëf jërëjëf ci bépp domaine Abdoulaye yaay ci nu yem yaa nu may salaamate Seydi Abdoulaye jërëjëf waaw waaw jërëjëf ci bépp domaine Abdoulaye yaay ci nu yem yaa nu may saramate bilaay walaay xale yaa ngi yaa nu defar ba nu mat ci bépp zaman Abdoulaye yaay ki fi sax xool yi sax rate bilaay walaay jant baa dootu sowi weer la moom te dootu na ba géej gi neex ba daasal noo ngi saaku suwate bilaay walaay Sidi Abdoulaye jërëjëf jërëjëf ci bépp demee nun nu lay siyaar loolu moo nu war yaa fi sosu siyaar nuy siyaar sa baay ma njoon um ngalam baye waaw Sëriñ Ablaay Ba mi ñaan ko la ilaha illallah Abdoulaye Thiaw del seetina ngir wutum ngërëm del ngir wutum ngërëm ma dolli ay bëyit Sëriñ Ablaay doyaluma um ngalam baye waaw Sëriñ Ablaay ba waaw abu moso jamat sanir do kombin to do xëccoo um waaw Serigne Ablaye Abbas ñaan nga ko laa ilaaha illallah yëguloo ni siyaar bi ñëw na nun lay siyaar siyaar bi ñëw na nun lay siyaar yaa bi sos siyaar nuy siyaar sa baay ma njoon um nga lambaje waaw Sëriñ Ablaay de dem na ñi naan yoxo laa ilaaha illallah sama turando sa baay ma njoon dem ba ñoog Isa sa baay ma njoon dem ba ñoog Isa yaa ko taxawaan muy siyaat tanay ma njoon um ngalam ba jeen waaw Sëriñ Ablaay a baaya way ca kaw bay Seydi Caw dem ba ñoog rakkam jaay doomi maam falaay wan mi ndeef kay donom um ngalam ba jee waaw Sëriñ Ablaay ba li naan ko laa ilaaha illallah loxo yi ca kaw yelloon te woon ñépp a xam ne baa amul siyaar yaa ko jiit nuy siyaar um ngalam bañe waaw sëriñ Ablaay yaa ngi nii ñun yow rek la nuy bëgge um ngalam baye waaw waaw loxo yi ca kaw doom yaa ngi nii soppe yaa ngi nii doom yaa ngi nii soppe diine jaangi nii ñun yow rek la nuy bëgge um ngalam